ñu daa indi lañ leen ci weeru koor yi booba bu tere bi ne tay Touba danaan koy met mu julli korité ni sa ñëpp télé rajo yi fi ne nañ ko ni def ne rajo ba ca Mali wala ba ca Guinée sëñ Bamba ni ko baal ma indi la rajo yeeg télé yi ba pare waa kër sëñ Bamba moom ko. lay ndeysaan. ñëwoon fii bugaana ko moom Cheikh Moustapha la yaakaar. demal la Alioune Thiaw na ko moom ngal doole sëñ Bamba la yaakaar demal Touba TV ndax ko moom sëñ Bamba la yaakaar. demal ci télé Serigne Boub sëñ Bamba la yaakaar demal TFM Youssou Ndour Cheikh Mourtala la yaakaar grâce Cheikh Abdoulaye bu télé yeeg rajo yi baree rek ba kenn dootul tas yoonu murid dafa neexut a tas kenn ah Cheikh Cheikh Abdoulaye laa ilaaha illallaah Cheikh Abdoulaye Cheikh Abdoulaye Cheikh Abdoulaye <laughs> bu bu télé yeeg rajo yi baree rek sëñ Abdoulaye yokkum jumaa ji Cheikh Abdoulaye ni mu la teg bi Cheikh Abdoulaye waxtu bi Cheikh Abdoulaye daal yi kaamil Cheikh Abdoulaye kër mag moom Cheikh Abdoulaye armée li bees yi Cheikh Abdoulaye xaadim borom maaro sali Chine ba bala si suñ Mbàkke maar eh, eh, moo ni woon su ma ragalee ku ma jàpp du ma si gor doomi ñappit laa Cheikh Abdoulaye du tiit déedéet bi sëñ Tuubaa yi ñëw Tuubaa dafa tëdd ak sëñ ñoom sëñ Abdoulaye Jaxate ak sëñ Sall ba mu jaag mu leen xetu sëriñ baa ngi may xëy ñu ne ko waa ji Abdoulaye tëddal Mamou Diagne mu ni bëreet naa sëñ Touba ngi ñëw ci dëkk bi Mamou Diagne mu leen dem naa ci denc booba ñëw. ni danu nag Cheikh Moustapha moom Cheikh Abdoulaye Lahad moo tax màggalab gaa gi ñëw. noppee gi Cheikh Moustapha mu ni danu Serigne Fallou fu Serigne Fallou jëm rek bu geesoo gis eh, gis Cheikh Abdoulaye dem nañu ndar bu kaala gi rootee mu teg ko ci maggum Serigne Fallou mu ne ko bu jógee fii foofu rek kooku Cheikh Abdoulaye Lahad. kon bu télé yi bareeg rajo yi yaasin du kenn. kurus Cheikh Abdoulaye xaaj bu walaay ndeysaan moom dong. Mbacke Balla yal na yàlla yokk leeram. <laughs> macha allah fi ne papa papa yaram gi tàng na te dara xewagul. lay lay la. sëñ Saal sëñ Saal papa yaram gi tàng na te dara xewagul. waaw waaw waaw. Samba nuyu nañ la. fay naa leen aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. Mhm. alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah. sayiduna muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ixsaanin ila yowmi ddiini wa radiallahu an seyxina ahmadul qadim wa ala qudwatina al azim maam Cheikh Ibrahima Fall babul muridi barkeb Cheikh Abdul Karim Mbakke faddilu noo ngi sant yàlla di julli ci sayiduna muhammad feddli suñ koolu téef ci seyxul xadim di balu xàq bokk yëpp di leen baal waaye di ñaan yàlla boo leenu jéggal di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa yàlla sama borom yàggal ko fi moom mbooleem ñi mu jaboote ñoo ngi koy ñaanal képp ku lislaam tax a jóg di nuyu bu baax di ziyaara mbooleem ñi toogee ci jotaay bunti kër borom Touba yi mm-hmm. di ko tàmbalee ca buntu kër Cheikh Mouhamadul Moustapha ba ci kër Cheikh Mouhamadul Mourtada sëriñ Ahmadul Mokhtar ba ci sëriñ Mamor mi nga xam ni moo toogee jotaayub Cheikh Mouhamadul Mourtada ñu ngi nuyu sëñ Abul Baraka di nuyu bu baax Serigne Cheikh Mbacke Abdoul Khadir. gaañaango. Serigne Sidi Abdoul Ahad. la ilaha illallah. Serigne Dame Abdourahmane Mbacke moom Serigne Ibrahim. Mhm. Serigne Cheikh Amadou Mbacke Serigne Serigne Cheikh Amadou Mbacke mhm. Souaibou. Serigne Cheikh Amadou Mbacke Salihu. Mhm. mbooleem bunti kër borom Touba yi. borom jële joor ndox. ñoo ngi leen di nuyu sëñ Cheikh Abdoul Khadir. dëgg la. Serigne Mouhamadul Habib. dëgg la moom sëñ Abdoulaye. dëgg la borom seex Cheikh Moustapha Cheikh Sidil Muxtaar seen doom ja dëgg la toogee jotaayub sëñ Baara Mbakke dëgg la moo ko toog yàlla na yàlla yàggal leen fi ci barke say xanaa Ahmadul Xadim di nuyu bu baax bokki jullit yéeg bokki taalibe yëpp kenn ku ne ñu lay jox cër bi nga am ndax lu bari damay wax ni man xawma doom aadama ju tedd di yàlla waxee wala xadd karam naa ba ni aadam laa xamatul jenn doomu aadama ju tedd di mm-hmm. yàlla na ngay ñii di féete kaw ñi ci des du lu mën a ñàkk waaye jenn doomu aadama ju tedd di xaw ko man damay faral sax di wax Baye Ablaye <laughs> ni ku ni nit dinaa la toroxal opposé nga yàlla ndax yàlla dañ damaa teral doomu aadama la ilaha kon ñu ngi nuyu mbooleem mbokki jullit yi mbokki taalibe yi di ci jiital alaaji mbakki yu fay mi nga doon tudd léegi muy sunu jur di jëw jëwriñu borom tubaa ci dëkk bi di nuyu président Bougane di taalibe borom tubaa di ko bëgg sëñ tubaa te koy dund nu xam ci dara ñoo ngi koy ñaanal yàlla lu mu yéene yàlla na yàlla kattanal ko ba mu teg ci loxoom ci barke Seexanaa Ahmadul Xadim maa ngi nuyu bokk télévision bi yépp nag di ko tàmbalee ci ñi ci kaw ba ci ñi gën a néewi at ci barab bi Baye laay maa ngi lay nuyu. walaay walaay Samb. maa ngi lay ñaanal yàlla mu guddal sa fan. amin amin Samb. yow say wax képp ku bëgg sëñ tubaa da koy yëg. waaw parce que wax ji dafa ànd ak bëgg sëñ Touba. dëgg mhm. sëñ bi rek la ñuy seet. Mhm. moo tax noo ngi ñaan yàlla nga gudd fan lool. dëgg la amiin noo ngi ñaan yàlla nga gudd fan lool. dafa am kok ba ci kanam. ka mu bëgg. Mhm. matewu ko. waaye yow ki nga bëgg mate na ko. dëgg la. ku bëgg sëñ Touba. tiit war naa jeex ci yow. dëgg la jàq war naa jeex ci yow. dëgg la moom moo waxoon ñi nga xam ne ñoo ko bëgg te muy dëgg. Uh-huh. mënuma leen a teree tiit nag. waaye li ngeen di tiit du ngeen ko gis de. la te yow ci ñi ko bëgg nga bokk ñun xam ne. dëgg la yàlla dëgëral la. lool maa ngi nuyu sëñ Cheikh Mbacke bu bu baax. sëñ Cheikh Mbacke Gaynde ma ñoo ngi lay ziar bu baax a baax mbubb di la ñaanal yàlla mu guddal sa fan te wéral la ci barkeb Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde ma ka demoon ca ardu Cincinnati kooka Cincinnati kooka nga xam ni jaar na fu ne suñ si àggay waaw def na lu ne lu jommal ku net def na ko muy si turandoo yàlla na yàlla dëgëral la ci barkeem ba may beral ab nuyoo nag sëñ Amidun Jóob mii nga xam ni waaw jeexal nga wax ji benn la nu maak moom dama ko koy wax léeg-léeg ma wax ko ay wax ni ko sëñ am gars yi matuma ci yow seede rek la wax. dëgg mhm. ci yow seede. Saliou nanguwu ko. Hmm. man nangu ma matuma ci yow seede. nit ki ko kotuwaaye ba xam ay qualité moo ko war a seede. dëgg waaye kotuwaaye nit ki lépp lu mu baax le mu wan la ko. Mhm. jëflanteeg yow addunaam yépp lu baax. Mhm. wax jot nga ni matuma ci yow seede. nan la seetaan. intérieurement am na leneen loolal. nit ki ko kotuwaaye ba xam yu baaxam moo ko mën a seede dëgg la waay waaye ànd ak nit ki guddi bëccëg suba ngoon wax jot nga ne ko matuma ci yow seede jubbanti nga man de d'accord ma yow de mat naa ci yow seede waaye yow ñoo fer dama koy wax ni hmm. fu ma newul fu ne hmm. nga ne faa ma gënal dëgg fu ma ne it hmm. bu ma mënee puus nga ñëw toog moo ma gënal Mm. ndax daf may solalub robb <laughs> dëgg la loolooy xarit ndax dégg nga maa la dégg sëñ Moussa Ka ba muy way borom tubaa ci ba muy woy yonent bi ca Yaasin ba mu yàgg daa taxaw daan ni solaat naab robb avocat am laa di laa man mm-hmm. layal naa Bamba nag maa ngi lay li Yaasin moom daa solu robbam rek <laughs> solo robb sali sam waaw damaa solalub robb moo tax fu ma ma ma wuute te mu teew sax moo ma gënal ndax man man naa teew waxe nu ma war ta waxe waaye moom bu teewee bu fa jógee ñëpp naw ma yàlla na yàlla dëgëral amiin amiin soxna yu baax yii yëpp yi mhm. jiital yaa sayda mhm. bu baax male lay wala man du ma fàtte lu baax mhm. xolub gileem laa yor ci lu baax yaa sayda man damaa yaakaar ni képp kuy yëngu ci lii nuy yëngu di yëngu ci diine bu ma dajeeg yow maa la war a jox wallaay ndeysaan peex lañ daje ma ni xinnet janoog moom rek mu tàllal ma junni billahi ak a néew ci moom mhm. waaye ak rëy ci man duma ko fàtte parce que man damaa yaakaar ne ñëpp maa leen war a jox góor ñi sax pour man maa leen war a jox dëgg la loolu mhm. ma daje ak moom rek premier geste bi mu def mooy jox ma xaalis macha allah yéen a fàtte na ko hmm. peex ci yow sa jàng lañ daje woon ci cérémonie ba dëgg la may waxtaan cérémonie màggalu peex moom fàtte na ko waaye man loolu daf ma daf ma frappé daf ma soke yàlla na yàlla dëgëral te bàyyil ak teraanga. naaw ma miin wa yaakaar amiin rasulillahi amiin sàmm sallallahu ñoo ngi gis liggéey bi ak taxawaay bi. waaw ak fi nga ko teg mu ànd ak yar ànd ak teggin ànd ak rafetal joxe xam-xam baax na. waaye joxe win wi moo am solo mm-hmm. te saw joxe win am na solo mm-hmm. yal na yàlla dëgëral la mm-hmm. soxna Yacine jërë ngeen jëf jërëjëf Samb soxna yu baax yi toogit Fatima ak soxna Fatima waaw ak ak Aïchatou uh-huh. ñoo ngi leen di ziar waaw ñooñu ay doomi kenn gi doomi Rasulullah la kenn gi doomi Babacar Sadikh ñu mayeen jool Makka <laughs> ak soxna mama soxna mama mama Diallo moo yor xaalis bi di leen yàlla <laughs> di leen ñaanal yàlla <laughs> liggéey bi ngeen am ci ndam lay sax ngeen yóbbu. jàmbaax ngeen yóbbu groupe bi ba fu seen xel dañ. amiin amiin sàmm yàlla mën na ko. yàlla na yàlla dëgëral leen. amiin ñoo ngi nuyu bu baax nag. ki ma bàyyi koo ci moom damay bañ dem bay jeexal fët. dëgg la waaw. muy sëñ Ousseynou Ndiaye ak soxnaam sëñ as soxna Assou Guèye. Mhm. teraanga yu ne ñu def ko. Mhm. dëgg la yéen ko te Saliou Samb kenn deful ko dara. Mhm. ndax deful kenn dara. lu ko waay defal rek bëgg sëñ bu mag bee tax nga mm-hmm. waaye man defal ma kenn dara kon maa ngi ñaan yàlla mu yokk leen mu topp leen ba ci seen i sët ci barke see xanaa ahmadul xaddim maa ngi nuyu sëñ abdourahman wadd bi ma fi gis léegi mm-hmm. ak sëñ buba ndiaye ak Sidi Diop ñi bi ñuy ñëw mm-hmm. ak mbooleem techniciens yi nag di leen bëggee kër gi sunu kër la jërë ngeen jëf jërëjëf Samb ah euh, papa wax na ko Samb papa Mbaye Peex nee na kër gi dellu si na ah, ci borom kër gi ñëw na ci këram barkàlla Seydina Mouhamed sallallahu alayhi sëñ Touba rek ka tax a jóg Cheikhul Khadim dellu si waat nga sa kër ñu ngi lay bu baax a baax jërëjëf eh, soxna Yacine ñu ngi lay nuyu mm-hmm. eh, di nuyu téléspectateur ak téléspectatrices yi ñuy seetaan yëpp di ñaanal Cheikh Mahamadul Muntaxa mm-hmm. yàlla gën ko fee yàggal lool eh, te mu yeggale yéeneem ci liggéeyal ci lislaam sëñ Muntaxa ku mat a ñaanal la mm-hmm. dëgg la ku fees fi mu nekk la mm-hmm. euh, waxuma sax euh, yoonu murit waaye weeru koor bi rek ni muy dundalaate ruu yi mm-hmm. ak ni muy dollee yaakaar ji rek war naa tax ku ne dib jullit ne Seex mun taxa na ko fi yàlla yàggal te mu wér ñu ngi am mbégte bu baax nag ci dellusiwaat ci mm. kër gi ndax euh, mosuñu fee jóge mm-hmm. li ko waral mooy président Bougane yàlla dafa dogal wax naa ko ko yaakaar naa démb la ko tax a jóg ba mu dem foofee ca baytil al xaram yàlla na ko yàlla mm. def mu mu nangu yëpp nee ko li ñu boole du télévision du politique waaye mm-hmm. relation humaine la mm-hmm. nit ki di ngeen loo xam ne mm-hmm. moo raw ay téléeg ay rajoog ay politique parce que yooyu day jeex mais yi nga xam ne moo dul jeex mooy koo xam ne day taal otoom ñëw sa kër ba fajar bu génn ñibbi kooku wan na leen ne séqumaa ak yow lii te nit ki li sëñ Saali wax lu am solo la mm. Euh, matuma ci yow seede li loolu nit du ko wax nit ñi dañoo bëgg boo amee nit relation ngay daw ngay daw responsabilité yi di wax naan sama wëlër la bu ñëpp toogee nga yemale ñëpp loolu mënul ne am na ñoo xam ne nga séeq ak ñoom sa yablaay mbay peex mën naa ci moom loo xam ne nii ñu bari mën nañ ko bañ a mën te loolu du ay télévision loolu relation humaine yi nga xam da koy séeq ak nit ki man ko ci moom kon ñu ngi koy ñaanal yàlla defal koy ndam ma may sàkku ñiy seetaan ñëpp ñu ñaanal soxna moom i Seck ndax <laughs> eh, dégg ni si daaw dañoo toog fii di def ay ay jataay muy xotti ay mbubb di wut ay enveloppe ku ne mu jox la basi di ko jox nit ñi da ngay jékki-jékki rek xam teranga cag-cag bi wala ci bunt nga génn mu ne la soxna moomee ko jox waaye nag dafa am lu ma ci marqué ndax loolu laa bëggoon a tàmbalee barki mu soxna Alima Ndione daf ma woo ne dañuy defal hommage soxna Momy sekk ñu woo président mu ne nañ ma woo yàlla dogal teelu ma ko woon a yëg ba bi ma yewoo jataay ba jeex te am na ci loo xam ne nii mën naa koo seede li tax ma man koo seede mooy bugaan moom boobaak léegi waxul moom daa noppi ndax xëy na fa ko féete tax. Mm-hmm. waaye da ci am benn geste rek bu ma ci jàpp. Mm-hmm. mooy daaw dañ ko war a dalal fii GP. bugaan ñëw. ma jógee Dakar jëm sama kër. moom mi day wax man téléphone ba ni may yéege pont Patte bi. Mm-hmm. ci président bu ñëwee ci plateau bi dimbali ma ñu jàppale ko mu am ndam jàppale leen ko ci question yi. nii la war a waxe teeg maa dimbali ci gaañ yi ñuy waxtaan ci loolu mujj gi ma xam ne kii di wax nii dafa bëgg borom këram ci la ko jàppale te nit ñi dañuy wax lu baax rawatina ku dem dañ koy waxal lu baax mhm. am na ci yoo xam ne kenn du ko wax ci télé waaye am na ci yoo xam ne da nga koy wax nit ñi xam ne ki royukaay ko wax di ko wax di ko wax di instant ma ne ko soxna moom mi maa ma ne ko teengaawoo journaliste yi waxtaan ak ñoom man comme man du ma journaliste mu ne ma waaw damaa bari nga waxtaan ak ñoom ndax sama borom kër damaa bëgg mu am ndam loolu ku la ko wax mm-hmm. daa yéene borom këram mm-hmm. bi may dugg sama kër dog di bëgg a jot ma ne ko fi ne damaa xiif mënatumaa wax téléphone mu ne ma damaa bëgg defal ko surprise ci plateau bi mooy damaa bëgg ñu jox ko cadeau loolu na dama bëgg ngeen jàppale ma ci bu ñëwee sañ am jëlal kàddu ngeen jug ngeen kañ ko ndax lool dana ko dolli espoir ki la wax loolu daaw ren fekk ko fi ma am occasion toog fii damay toog ne ñi koy seetaan ñëpp ñu ñaanal ko mm-hmm. yàlla te maa ngi sedd ci yàlla ni keroog bi ñu ko dencee ci guddi gi mhm. bi ñu xëyee suba six heures du matin mhm. bi ma ñëwee dama ko ne président te ngaa wàcc ci suuf ndax léegi nit ñi ñëw dana man nañ dem armeel ya jouru sarax si mhm. man ak moom ak chauffeur am bi ñuy yéeg euh, bi ñuy dugg ci armeel yi chauffeur bi ñu àndoon dama fàtte kanati la ne ko xanaa xamoo ni moom yi daf ma doon dolle ci sama salaire pour ma lay garder yow <laughs> pour ma yor sa sécurité pour ma gën laa fonk bugaan da ko xool ne ko yow mi mu ne ko man chaque année chaque mois day ajouté ci sama salaire leneen pour yow bi ñëwee toog ci buntu armée ci buntu ci kaw bàmmeel bu toog dafa teg loxoom rek yooy ma ne ko waa geste bi nga def mu ne man ña ca dëj boobu ñoom ñoo may jaale si waaye man kii kii ma demele nii laa mun taamaat sama àddina loolu bu ko nit ki di séq ak yow soo amee occasion yu mel ni da nga koy wax ndax sénégalais yi diaboliser na nit ñi ba xàmmeetuñ ki baax boo waxee ci nit ku baax sax ñu ne politique a tax wala nangam. Mhm. ba qualité yi nit ki baaxle dootuñ ko wax. Mhm. topp nañ politique beeg coow li ba ñi baaxoon ñu bonal leen. Mhm. ñi bonal leen ñi ba ñu bonoon ñu baaxal leen. nit ñi dañuy garder ngor ak dignité ak relation bu rafet ba pare mën di ko génne bu nit ñëpp toppee naan la peex peex bul xool peex. xoolal li nga séq ak moom li nga xam ci moom saalum saalum yi dañuy wax benn baat naan ñu ne diw daa baax mu ne diw daa baax ak man xar mi ci kër gi mën nay mbëkk ñëpp tebal fi yow parce que la siq ak yow siq koog nit ñi chaque jour nga gis Seex Mbàkke ah, mala buy mbëkkee wala muy màtte bàyyi la fi yow mi mu siqal relation bu rafet ba pare eh, di di jëflanteeg ñeneen ñi safaan ba soxna moom yàlla na yàlla teeru ko ci àjjana yi gën a kawe kero bi mu jëndee bàmmeel bii bi mu ko jëndee ci xaalis dafa woo président ne ko man ne damaa jënd bàmmeel bugaan da ko ne sama tur dani rek bu demee ci panneau bi rek maa ngi yow daañu problème mu ko ne ma mais sëñ am tu sais kii moom ma ne ko non kii dafa préparé ëllëgam xam na ne nit ñi lu mu yàgg-yàgg fii la addinay mujj addina lu mu yàgg-yàgg loolu nag jigéen ju ko def jàmbaar ga fii waxuma la jënd bàmmeel waaye koo fi ne yàlla nga dee mu dëkk la mu tëkk la guerre <laughs> waaye moom daa dem jënd ko ci xaalisu boppam <laughs> bëgg bu génnee àddina moo ko njabootam ñu dem foofu yàlla na yéex te loolu mu doon def geste la boo xam ne nii buñ toogee fii tey bu ko fekkoon fii mi ngi ci réalisation bi ma ngay wax ma woote ma ngay daw ma ngay dugg loolu dama koy dama ko doon ne dama doon su ma ñëwee bu ma waxoon lii képp sax bàyyi sëñ Saaliw mu yeggale jataay bi sax neex na ma ndax loolu lu ma ëmb sama xol la te lu ma denc la te secret la boo xam ne nii war naa ko mën a génne partagé ko doomu aadama yi ñi bëgg baax ñu xam ko waaw ñi lu baax sëñ ko waaw parce que boo ko waxee boo ci xasee tudd bëggaan ñu ne xoolal ña ngay propagande dem nañ ba jamono joo xam ne soo amul responsabilité ci sa bopp ci wax dëgg sax da ngay am problème faaw nga am responsabilité toog wax li nga xam lu baax li nga xam wax ko bul ci ragal nit ki la sëñ Tuubaa doo naan fa kullu ma fiihi ridallahi jara fala taxa fiihi malamatal wara lépp lu ngërëmal yàlla nekk bu ca ragal demee lek fekkale mm. waxal li ngay wax rek mu génn ci yow mm-hmm. yàlla xaare ko ca àjjana gën a a wax ne la waxuma sax ñu bari da ngay ñëw ci télé di wax waaye nga toog waxtaanee sëñ Tuubaa rek mm. doy na nu sëkk noonu mm-hmm. ndax da nga nu yóbbu ne nii sëñ Tuubaa rek moo nu fa a yóbbu yal na yàlla sàmm la guddal saw fan may la nga yegg maa ngi ziyaare baax sëñ Cheikh Mbacke Mbuub Euh, nga xam ne moom li nu bokk bari na waaye yow fu nu gisee rek kóllëre googu la ñuy sàmm mhm. di ko doxal mhm. te mu rafet lool yaru na baax waaw di di di beral nuyoo nag yaa saydaa gis nga li sëñ Saali wax nit ku baax a ngi nii mhm. te nit ñi war nañoo roy ci moom ku mën a sauvegarder ay relation dëgg la jigéen ju nii am doole ji mu am ubbi ay daara di jàngale ba sept heures du matin alxuraan dafa am ñoo xam ne nii bu ay huit mars jotee ñii lañu war a génne waaw wan àddina ne leen ñii ñooy ñu baax ñi dëgg la fu ngeen toogee nga gis ko ci télé ak nga ñàkk koo gis nit ñi dañ lay woon naan la mais kii dañ ko fonk mm-hmm. yoon wi ñu nekk di yoonu murit gënuñ ko gënuñ ko koo bëgg gënuñ ko ko fonk da ciy joxe dooleem di ci doole léppam bam jeex yàlla na yàlla suturaal la mm-hmm. sagal la may la nga yeggale soxna Yaasin am na ñu mbégte jàkkaarloo ci yow ndax nit ki bu fekkee fajar gu nekk mu jóg jàkkaarloog nit ñi am audience di leen jox lu ñuy utiliser lim leen di jox war naa nekk lu leen di jariñ te dal googu la ñu gis ak yar boobu la gis ci yéen ñun tamit fierté bu ngeen am am nañ fukkam ñi ngi ziyaara baax Fatima <laughs> chaque jour dama koy tooñ di ko wax ne ko euh, man ci yow laay laay xoolee information <laughs> ndax in jaakum faasixun bi naba'in fatabayyanu moom da koo jëfee aaya boobu yenn saa dama koy wone ko Fatima gisaguma nga bind de <laughs> parce que yow man li ngay bind may xam ne day wér mu ne maa ngi ñëw bind yal yàlla sàmm la sutural la soxna si noo ngi lay siyaare bu baax a sëñ Touba moo boole. du ay du ay loo xam ne nii addi mbirum àddina la poñet la sëñ Touba moo boole. kii sañ na ci man man tey sama soxna am gone moom laay woon ko demal tuddi ko te loolu du ay jëfalante alal. danoo bokk fu nu ne ci sëriñ bi. ba noppi mën na def si tegu ci baat lool lu ma may ci boppam la may ko fa muy yóbbu murid yi nag mu kawee lool dëgg la yàlla na sama borom sàmm la li nga bëgg a liggéeyal sëñ Tuubaa yàlla na la ko yàlla defal may beral nuyoo nag alaaji Mbàkke yu fay ndax euh, bi ma jógee fii di dem Touba TV dafa am ñaari geste yu am loolu nit ki da ko war di wax bugaan ah jëwriñ ñibbisi de mu ne sañ am amul benn wute yow maag yow li nu boole du bi ma demee itam xamal ko sama digganteeg bugaan dane ma bugaan sa xarit la te sa mbokkum taalibe la nit da ngay jàpp sa xarit la bi may ñëw fii bi ma koy dane ma bu ma sañoon télé bu ñu jàpp dañ cay waxtaani sëñ tubaa dëgg la daan ma fu ngeen mën a dem ngir waxtaani sëñ tubaa rek bu ngeen demee nay sëñ tubaa rek man loolu rek la sama xol sedd bari ci démb ñaar fukki million la yëkkati teg ko ci taabal ji ne nañ ko joxe ndogu ci weeru koor wi bokkut ak lim def ci laytul xadar def ay enveloppe waxtu wuñ naafile ba pare kum daj kum dajal yëkkati teraanga jox la ne la am euh, boo demee nga def ko sa kër mhm. yal na yàlla wéral ko alaaji Mbàkke may ko mu yeggale li mu bëgg a liggéeyal borom Tuuba am nañu mbégte lool nag ndax fii technicien ba ci suuf mhm. ñëpp suñuy xarit lañ te yàlla moo doxal relation yooyu relation du alal nag de xam nga lan la mhm. euh, gis nga muus mi nga yor ci kër gi sax boo ko yëgee ni ngay communiquer ak moom bu déggul olof sax day dem ba yàgg di dégg olof chaque jour nga gis ci réseaux sociaux yi ku ñu kuy wax nan ko toogal muy toog defal loolu da ngay xam ne kii dafa am ak moom. Mhm. connexion connexion. Mhm. loolu moo waral ñi fi nekk ñëpp di sama xarit. soxna si maa ngi lay ziare bu baax. di am ci yow mbégte bu baax ci fekk la ci plateau bi si Ablaye nag nee na moo yore xaalis bi. Ah, moo yore xaalis bi ah, moo yore xaalis bi. ki yore xaalis bi nag moom. <laughs> moo ma toll ma ma ma nuyu lool. koy maa ngi lay nuyu bu baax. jublewaat nuyu nuyu na ko. maa a fay. Ah, ñu ngi koy ziyaare bu baax. ci liggéey bu rafet bi. Mm-hmm. Eh, di ñaanal soxna Yacine bàyyi la kàddu gi dafa am loo xam ne nii soo ñëwee ci kër. waaw eh, ñëpp eh, am lan teg ñëpp. dëgg la da koy da nga koy wax. waaw bàyyam laay <laughs> yow yow yow li nga ubbee ci sëñ Blaat doy na sëg. da maa jàpp ci Sëñ Blaat man Sëñ Blaat rek la am dëgg la te barke Cheikh Ahmadou Bamba hmm. yow murit saadix nga dëgg la day rawal billaahi yow murit nga dëgg la koo xam ne dangaa tànn ko mel ni sëñ Mahmoud Mbacke de bëgg ko hmm. dëgg la lam ñëw peex de mais geste bi dëgg la lim defal sëñ Touba lim defal waa peex bañ leen sëñ Touba loolu nga jàpp ci ñoom moo tax yow dañuy yëg sëñ bi ci yow dëgg la <laughs> jërëjëf Mahmoud Mbacke <laughs> jërëjëf soxna Yacine jërëjëf sëñ am waxtaan bi xam naa dana gën a yaatu Ahmed Ndiaye nekk chauffeur Ahmed Ndiaye chauffeur Bougane mi ngi lay nuyu bu baax a baax sëñ Ahmed mi ngi lay nuyu bu baax a baax Cheikh Mbacke Mboup nuyu naa la eh, maa ngi lay fay Yacine mhm. bismillahi rahmaani alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bihi lana alhuda bada sayyiduna muhammadin wal ali wa sahbihi sabin eh, maa ngi lay delloo am nuyoo di nuyoo ñu ñuy jàkkaarlool ci biir réew mi ak ci biti réew mi di ci jiital nag sang bu tedd ba di ñaan ni ko ñëpp ñaan ne yàlla na yàlla feeñal kii maa ngi gudd fan ci moom muy fadal Cheikh Mahamadul Muntaqa bu ma ko tudd tudd naa mboolem kilifa yu tedd ci boppu turuxu suuf yi yëpp yàlla na yàlla sàmmal noonu leen mag ñu baax ñu bàyyeen di tàmbale rek soxna Aïcha xoon naa ko démb maa ngi lay ziar bu baax. di lay jaajëfal Fatima macha allah di suñu rakk di suñu xarit. Mhm. sama papa Mbaye yal na yàlla gudd sa fan. Mhm, yal na Cheikh Abdou Khadir fépp. Mhm. Eh, sëñ Saliou moom moom dama ko bëgg. moog sëñ am ni ma leen bëggee ñooyam ni ma leen bëggee ndax sëñ Touba laa xool si ñoom. <laughs> màggalu Touba damaa toog plateau di waxtaan. di invité nii ndeysaan kër eh, Diagne Fojeka. mu yónnee ma mbub moo xam ne man rek la. bu rafet. yal na la ko yàlla fay. xam na xam na ne am naa mbubb mooy sol. waaye moom dafa baax. dafa baax mooy jikkoom. ak a baax. yal na la yàlla fay. macha allah taalibi Cheikh Abdou Karim Mbacké Fall di jaar moom di nuyu ci xaritam boo xam ne kenn la ci moom. Mhm. muy sëñ Talla Niang moom dama ko mus a gis mu mer sëñ am da nga mer. day ree rek day ree rek. da nga fay yow nag yaa waxoon ni ku fi sañca da nga fay alamaan mais Yacine xam nga man su ma jógee fii tubaa TV laay topp ba nelaw. Mhm. ak di joxe mbubb. tudd sama néeg di jooy rek di sant sëriñ bi. ak di joxe mbubb. loolu lépp santuk sëriñ bi la rek. yàlla yàlla guddal sa fan Diop li nga wax ci nit ñi ci lu baax lépp ci yow la nekk. jërëjëf yàlla la maman a baax a baax. Eh, yaa Seyda maa ngi lay béggee bu baax damay gàttal nuyoo bi ndax ginnaaw dañu war a tàmbali di eh, may émission bi nag Khadim Diagne mhm. borom White House taalibi sëñ Mbacke Soxla ci Ouest Foire moo ma def nii ci bureau de autriche te bii mooy troisième bu ma jox macha allah yaakaar naa ñu xam-xam nañ prix bi kon da koy joxe ngir jëmmi Serigne Touba mhm. ñett dama ci jox mhm. sëñ Moustapha Mbacke moom sëñ Sidi borom ñaaxar mu sëñ Sidi Ablaat nee na mi ngi topp émission bi yaa si nuyoo baa nga aywa ngi noonu yaa si daa Fall nañ la Yacine di la kontaane bu baax maa la gën a kontaan Fall Cheikh daa mbaa nuyu naa la waaw nuyu nga ma bu baax. ma jigéen. nuyu nga ma bu baax Cheikh Mbacke ngay defaat ma. ay Cheikh Sourat maa ngi lay bu baax Fatima te maa ngi lay nuyu suñu tonton di ko ñaanal bu baax li ñu ñëpp di la ñaanal rek lañu lay ñaanal gudd fan. nga yàgg fi rek te fi gën a yàgg rek mu gën a baax. Mhm. Serigne Saliou ñu ngi koy nuyu moom tam di dalal ci kër gi comme ni mu ko waxee rek euh, frère la euh, soppee la moom tam nekk kenn ci kër gi. am na luñ ci xam te sunu waa ji toog nag moo ñu ko xam tey dañoo am gan nag dañoo am gan maman maa ngi lay nuyu tey dañoo am gan tey ki fi génne moom bàyyi la ci ñun bàyyi Hamidou ni ku sa collègue mais bàyyi la ci ñun ndax amul dara loo xam ne dinaa ko def lu mu guddi guddi te dinaa ko woo wuy ko ba mu wuy ma ma ne ko nangam ak nangam laa bëgg a def mhm. dama ko soxna la solo te du man doo ko de <laughs> yaakaar naa maa ko gën a solo ci kaw suuf mhm. daa mel ni comme man rek maa ko moom su ma gisee mu toog kenn ci télé bi sax ma ne ko yow kii moo la bëgg a nangu léegi commencé di fii <laughs> man Amadou suñu Amadou la yaakaar naa ni ni ñu mel ci moom ci kër gi mhm. Mhm. moom moo ko def dëgg la moom moo ko def dëgg yaa kon lay wax sa kër la ñu la dalal mhm. yow sax yaa ñuy dalal moo ñu dalal rek jóg <laughs> yàlla gudd sa fan ak di nuyu waale bàjjan maa ngi nuyu bàjjan maa ngi nuyu bàjjan <laughs> Yacine aywa Yacine ba si kanam léegi nii maman nuyu naa la ziar naa la. bu baax a baax Yacine sa rouge baax na macha allah. tu es élégante comme d'habitude. merci beaucoup di nuyu bu baax a baax euh, Cheikh Mbacke di nuyu suñu papa Abdoulaye Mbaye Père yaa Seyda maa ngi lay ziar bu baax a baax dala jàmm aussi suñu invité yi sëñ Saliou ak sëñ Am Diop. di nuyu Fatima ak Aïcha suñu mbokk téléspectateurs yi nga xamante ni euh, ñoo toog di ñu seetaan à travers la Sen TV alors comme ni ma leen ko tàmbalee chaque soir mu ci kanamee léegi dinaa ñëw ci xéwal yi waaye tamit ñëw ci partenaires yi. bu soobee yàlla Fatimata Diop naa. Fatima sëñ euh, sëñ mi ngi allah si léegi bu soobee yàlla xam bàyyi papa incha allah dana ko dalal bu soobee yàlla Fatimata nuyu naa la. fay naa la boo boo ma nuyul woon sax amul benn problème parce que tey euh, je pense que ne <laughs> tey jii euh, sunu papa euh, ni mu nuyoo ak sunu ay gani rek lépp yóbbaale ne yëpp macha allah ñu naan alhamdulilah ba ñu fekkee ko à chaque fois koor gu jot mu ñëw. toog fii eh, ci eh, plateau bi eh, di waxtaane li nga xamante ne moo di Serigne Touba mais également uuf njaboot gi yëpp yal na yàlla guddal fanam bu baax a baax papa ñu ngi lay ziar di ziar également sunu gan ñu amal tey jii ci plateau bi rawatina nag sëñ am mu koy wax léegi waaye man à chaque fois au delà relation yi muy wax humaine daf ci daf ci bokk sama diggante ak moom à chaque fois dina la woo dina la encourager en même temps di la joxe ay conseils macha allah yal na yàlla yow itam defal la jàmm bu baax baax nuyu yi nga xamante ne ñoo bokk plateau bi. Diop la sant na. waaw macha allah Diop dong la sant Diop sant moo tax mu baax. macha <laughs> nuyu naa la. xëy naa la Yacine euh, comme ni ñu ko ñëpp waxee rek yaakaar naa tey nuyoo bi du gudd ndax euh, dañ ko ak ay euh, kilifa yu mag yoo xamante ni plaisir la bu baax baax bokk ñoom plateau bi mm-hmm. rawatina sama nijaay bi nga xamante ni moo di peex ak sama xarit rek góoru ñaari Aïcha Thiam yi. Mm-hmm. ma ñëw ñetteel leen <laughs> mu ngi noonu nuyu yaa Seyda mi nga xamante ni chaque ma sonal ko indil ko ay saar yoo xamante ni <laughs> man sa débat duma ko mën a tari <laughs> mu ngoog nuyu borom xaalis bi également di euh, Maman Diallo mhm. waaye tamit di euh, jottali rek nuyoo euh, ki nga xamante ni moo di Basirou Gueye ki nga xamante ni moo di Khadim Gueye Abdou Karim moo lay moo lay nuyu Abdou Karim mu ca Brésil donc nuyu na baax a baax a baax mu ngi noonu donc Yacine ci kanam tuuti ñu indil leen saar bi nga xamante ni rek tey moom dañuy xool kan moo koy firi mu ngi koy yow sax lañuy tàmbalee nañ dem rek ayca nañ dem ci saar bi nii nañ dem <laughs> <laughs> bàyyi ki ko war a tari tari ko yow yaa koy tari nag. <laughs> aywa ban saal la ñuy ñun tey. saal bi ñu indi tey est ce que duñu ñu découvrir rendoo ko ñun ñëpp rek. aywa kon ñu ngi maam Biram. aywa. bismillahi rahmaani rahiim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad Euh, yaa Seyda yaakaar naa saar bi nga xamante ni moom kër Alima moom nee na moom lay jullee ndax nee na moom julli yàgg yi moom day métti ci moom torop donc day day jël <laughs> gàtt bi rek mu jullee ko te yaakaar naa tamit euh, dañuy foox naan euh, bu gàtt bi mais lu mu gàtt gàtt rek am na solo su mag. waaw macha am na solo saaru gàtt la mais saaru rëy la saaru woo xamante nii yàlla mi ngi ciy wane boppam defe naa ñu bëri tam buñ koy tari ci commencement bi dinañ ci def ay. erreur yoo xam ba fa mel ne xale bi doon tari sax uh-huh. sentir naa ko ci sànq mais saar la woo xam ni day kennal yàlla waxal yàlla kenn la te ci moom rek la ñu war a sukkandiku pour am li ñu bëgg jurul kenn kenn juru ko wéet na ci gàngunaayam gi moom yàlla saar wi daal saaru am solo la ci ci tënk uh-huh. tawxiid lay jàngale ni yàlla moom kenn la donc amul ñaar amul ñett jurul kenn kenn juru ko tey saar wi loolu lay loolu lay loolu lay tekki léegi nag damay bàyyi mama tey mu tari ñu ko. mu tari ko neen ah engagé na de neen mooy tari. gàtt na gàtt na mama gàtt mais yow yaa ne te dañoo am ay gan gor ca nga te dañu xaw a yàkkal. <laughs> waaw ñu terele la ko nga sëñ Saliou bëgg na dégg nga tari. agence ndax ah, sëñ Saliou. ndey si dala xaalis léegi ñu ngi lay déglu. mama tari wala am sax. aouzu <laughs> billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. xul wallaahu ahad allahu samad. lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad na naa waaye mën naa. parce que macha bu bëri xulu walaaw la ñuy wax xulu walaaw. tey boobu laay corriger. xulu walaaw keroog inna anzalnaahu. fii layla til til xat gis nga léegi ñëpp loolu la ñuy wax. Uh-huh. kenn du wax laylatul. Mm-hmm. inna anzalnaahu fii laylatul. boobu corriger nañ ko léegi tey. qul huwa allahu ñu bari xul wallaaw rek la ñuy wax xul wallaaw xam. xul wallaaw ah, dëgg la waaw kenn wax xul wallaaw. waaw xul huwa allahu loolu la ñuy wax te yow dafa mel ni wax nga ko. xul xul huwa allahu. xul huwa allahu. Yacine am na ñu naan tamit ahad. Eh, Yacine te boobu laay corrigé. waaw ansay ah, ah, daa ma ne soo soo si mu ne may rek dafa am kuy laajte naan am na ñu naan ahad ndax ahad ahad la ñuy wax. waa xam nga ahadun mooy jàng loolu ngay jàng dangay jàng masque bi yëpp. mais ci rafetal njàng njàngin rafetal rek la nga ne ahad. ahad qul huwa allahu ahad. ahad waaye bu la neex nga ne ahadun wax arafi ba mu jeex. mais loolu mais mais lii ngeen di def nag. Hmm. di wax nit yi baat ndax léeg-léeg nga dem ci Europe. ñu ne naan jàng lixlaas da ngay gis ku naan <laughs> lixlaas lixlaas lixlaas dëgg la dëgg la waaw bi ne nañ jàng fukki gis wax lixlaas lixlaas wallahi wax am solo ah, kenn wax lépp kenn du xam lépp tam wax comme ñëpp nit ñi dañu toog ci plateau du ñàkk ni am na mais da gis ñu joxe sax ab limb lixlaas ci ci ci dëj yi mm-hmm. fukk ñaar yow nga koy jàng balaa ngay am ñaar am ko ko jàpp. est ce que waaw parce que lixlaas la wax. lixlaas képp la wax. dëgg la de. fekk lexlaas lexlaas ba mu mat ki rek mu ah, la de. jërëjëf papa. lexlaas <laughs> li ngi noonu am na solo Yacine li mu wax dëgg la des fois nga dem guddi àjjuma ñu ne def leen euh, nangami lim lexlaas nga fekk kenn ka pare ba toog xam naa <laughs> <laughs> da pare bi bu séeréer rek donc mu ngi noonu Yacine amati na solo bu baax a baax euh, ni koy defee saa su ne à chaque fois ñu ñëw rek li euh, may naan jàng du wees. Mm-hmm. saa lu gàtt gàtt rek solo si bëri na te mm-hmm. yaakaar naa ne tout le temps am na lu ñu si war a mën a jooyanti donc mm-hmm. tey lexlaas la ñu leen indiloon suba incha allah ñu indiwaat beneen yàlla suba nga indiwaat beneen suraat du noonu. aywa tàggatool ak say partenaires. waaw mu ngi noonu tey moom xam nga tey mu ngi noonu. kon gërëm nañu partenaires yi. waaw dama dama dama leen di joxe samay lañ. mais xam nga des moom mu ngoog donc may gërëmaate bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoo fi jaar saa su ne madame Mbaye Gosi xeer si bopp bi Habib Fuddan également ci Fuddan yu rafet yi rek nga xamante ni korité baa ngi ñëw yaa say daam premier client. présidente bu fay dem. Mm-hmm. donc euh, boo paree rek yow nga dem xab yi defaral euh, food de nuit yemb également euh, l' de la beauté fële Liberté 6 extension ci ñoom mbay ak Tafa ci ongle ak li di sud extension ak lépp rek luy taaral jigéen ñu ngi koy def xam nga ñun moom ci la ñuy dox donc on vous dit à demain incha allah et c' plaisir. tout le plaisir pour nous Aïssatou Thiam aywa 23 h moo jot waxtu wi daal di nay jot ci actualité gi dañ ci ànd ak Fatimata jot ci actualité Fatima Yacine euh, actualité bi bokk na ci euh, weer wi nga xamante ne feeñul coordination des musulmans euh, génn nañ janok taskatu xibaar yi ne gisuñu li nga xamante ne moom moo di pour ñu mën a julli ni ki ëllëg ak jàmm janoog nañoo taskatu xibaar yi ñu teewlu ci Serigne Talla Diop la ci ñoom bi nga weer wi te nekk ci biir coordination des musulmans du Sénégal niñ ko baaxoo defee ci weer wu nekk daje nañu tey ci mu am ñu ngoonu altine tolloog ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru koor tolloog juróom-ñetti fan ci weeru avril bi ñu nekk ngir doon saytu lu jëm ci weer bi nga xam ne moom lañu seetlu muy weeru korite gi bi yàlla dogalee ñu gëstu ko ci biir Sénégal ak ci biti Sénégal mooy ci àdduna bi yépp li nga xam ni moom lañu am ci xabaar mooy weer wi feeñul tey kon commission baa ngi yëgal jullit yépp suba ci talaata ji le 9 avril 2024 mooy tolloog fanweereelu fan ci weeru koor mille quatre cent quarante cinq kon gannaaw ëllëg àllarba le dix avril deux mille vingt quatre mooy bis bu njëkk ci weeru shawal muy weeru korite mille quatre cent quarante cinq mel ni nag nee nañ li nga xamante ne moom moo di weer bi donc du euh, mën a wari li nga xamante ne moo di ëllëg euh, peut-être sam pap euh, am na ci kàddu yu muy sànni concernant li nga xamante ne moom moo jëm ci séntu weer yi nga xamante ne parfois day indi ay jafe-jafe fii ci senegal waaw moom day lépp noo ko bokk. waaye ginnaaw suba de séntu bu njëkk nu weer di feeñe tey. suba ñëpp maa bu njëkk. weefente day gaaw di hmm. weer du noonu weer moom nan ko baag yàlla hmm. xam naa daal li nu Sëriñ Tuubaa battaleel nun nu ngi si hmm. weer jàkk baa fan weer sënkam Tuubaa moom mosu ñoo laam-laame nun nu nu def nii tey yàlla dañu ñuy dimbali ñëpp di àndandoo di julli te àndandoo di julli di sëlmalandoo ndax la la koy tax a niir riir ga muy riir waaye ñuy julli tey gee ni selaw gee ni teg gee sol robb gee sol xaftaan wóor nanu si waat xol yi tappee ko li fi mag ñi def du fi jóg réew li fi nekkoon si jaaji Maalik ak sëñ Bamba ak maam Limaamu borom Njaasaan ak waa Kaolack ndar képp nañu ko mhm. dara gis xanaa déglu du ci du duñ ci jóg. ok waaw noonu daal ah, duñ ci jóg. am na solo que ñun tàmmatuñu di woor lii di trente jours vingt neuf jours rek la ñuy woor. xam nga nag koor dafa mitti xam nga it nag euh, dafa loo ci waaye mënta wax yàlla képp ko mën a def lu nii. bilaay moo tax bu dëggu ci xol. moo koy fayal boppam. ku la ne woon kaay wooral ma da ngay bàyyi ba tisbaar ba muy julli ji nga ñoom ñaari ñëbi ceeb ñëw naan ndox ni ceeb kaw jàkkaarloog moom. koor nag yàllaa ko moom yàllaa ko santaane te ñu teel a génne muurum koor parce que muurum koor luy defal koor la beneen bi Cheikh Mamadou Mourtada moom ma waxoon ni ma Abdoulaye ma ne ko Mbàkke ca Louga mënu ma indi rajo bi may ni micro bi toog ci wetam mënu ma nañuy génn asaka asaka ak yàlla ak yàlla kenn du ko denc bari na lu ngeen di coow ci réew mi lu leen di dal lekk asaka la ne ma asaka yàllaa ko moom ak yàlla Cheikh Mourtala ne ak yàlla kenn du ko lekk delloo ko borom. am na solo mu ngi noonu euh, kon ñoo ko déggandoo li jëmoon nag ci wàllub koor gi mais également dañoo dugg ci marché bi xam nga ne euh, euh, mën nañ wax ne ne ñaari fan moo des ci korité gi te itam marché bi am na njëgi nag yu cher rawatina li leen di ginaar gi ak ndawal aussi itam dafa cher loolu bokk na ci li tax nag Ramatulaay Aka daa di doxantu ca marché tu leen doon xool njëg yi ñu seetaan ko daal dellusiwaat agsi nañu ci njeexantalu weeru koor bi fii ci marché Tilène Dakar ràññewuñu fa xumbaay biñ doon gis chaque veille korité. ñu ñëw nag ñu ngi ñëw mais bu a ñëwoon ñu jël de. xumbagul noonu pas encore de xumbagul noonu normalement tey dafa war a commencer xumb ak suba mais gis nga nu mu mel euh, vraiment moom doy na waar. non ñëwuñu comme ni ñu doon ñëwee de vraiment parce que korité heure bi da doon fekk clients yi commencé bëri mooy loolu mais mooy mooy ni déjà mu ngi def naa sama frigo ba mu fees gisaguma client pour le daal dinañu seetlu ay njëg yu yokk rawatina njëgu ginaar. boo ko dee xool comme yii nii 3000 francs lay jar te xaw na fi mais sekk daf ginaar dafa bëriwul cette fois ci atum ren moom ginaar bëriwul. te pour le moment amagum nañu ku teel a jóg daal di nga am ay ginaar yi nga bëgg. seer na tuuti de. waa jënd naa ginaar. Euh, ginaar maa ngi jënd 3500. pour ginaar bu baax moom 3500. chaque fête dañu yokk muy korité di tabaski fête yëpp dañuy yokk moom souvent dañuy yokk léegi na bu fête yi paase ñu waat prix yi waaw loolu je sais pas peut-être manque contrôle des prix la rek maa ngi jëndee quatre mille cinq waaye nag lu ci mel ni soble ak pomme de terre daal dinañuy wàññeeku bu baax ba ku nekk mën ci gis boppam. jërëjëf Ramatoulaye xam naa sama mbokk siyeen yi ak njaayeen ni ñu ngi xaw a tiit loolu ci li nga xamante ne moom moo jëm ci njëgub ginaar gi ni mu xawee yokk waaye nag xëy na ak gouvernement bu bees bi nga xamante ne teg nañ ko wax na itam dinañ indi ay coppite jëm ci wàllu ah. li nga xamante ne moo di dund gu cher gi ci noonu la ñuy waxee ci wàllu actualité bi ak passation de service yi ñu nemmeeku bokk na ci euh, njiital élimaanu jëwriñ yi di Ousmane Sonko daal dina euh, def li nga xamante ne moo di passation de service ak maître Sidiki Kaba dañ ciy ànd ak euh, Younousa Baldé de premier ministre Ousmane Sonko di rafetlu ci ambiance bu ñu amalee cérémonie de passation bi lee ko ci anam bu gën a rafet ak ni ñu doxalee passation bi ci document yi nga xam ne defar nañ ko jébbal ñu ko may ñu gis liggéey bi nu mu tëree. maître Sidiki Kaba di premier ministre sortant moom de ay semaine rek la def ci bopp primature wante nee na accomplir na mission bu baax a baax. lu des mooy di ñu ñaan pour les nouvelles autorités premier ministre moo nekk sama wet yàlla yombaloon ko liggéey bi. mu def ko ni ko peuple sénégalais bëgg. bañu sukkandiku ci kàdduwam bi léegi nee na falum président Bassirou Diomaye Diakhar fay ci bopp réew mi dafay wone nii rek démocratie Sénégal bi mu ngi dox bu baax. di féliciter le président Bassirou Diomaye fay ndax askan bi moo ko fal ci ay élections yi nga xam ne élection apaisée la maanaam dañ ko def. amul benn coow preuve bi ñëpp ci d'accord premier ministre Ousmane Sonko di xam ne nii rek ministre yi yëpp daañu leen di installé fii bi ay fan yu gàtt ngir ñu mun a jublu ci liggéey bi nu mu gën a gaawee mu ngi noonu na joxe na signal bi jëm ci wàllu passation de service yi ngir ñu mën a soobu ci liggéey bi naka noonu également ministre de l' intérieur def na passation de service moom itam sànq muy euh, général euh, Jean-Baptiste Tine ak euh, Mouhamadou Mount Mouhamadou ki nga xamante ne Makhtar Cissé jërëjëf Papa ñoom ñaar def nañ li nga xamante ne moo di passation de service ba noppi ëllëg ak jàmm nag la ñuy wax ne ne dinañ def lii di conseil des ministres bu njëkk ci gouvernement bu bees bi ñu installé muy Euh, son excellence Bassirou Diomaye jaxaar Faye donc lii bokkoon na ci li gënoon fës ci wàllu actualité bi tay jii. Euh, jërëjëf Fatima ñu ngi lay jaajëfal bu baax. c'est moi suba di nga dellu si. incha allah incha allah jàmm je remercie tout simplement Momo Talibé Serigne Saliou bi nga xamante ne moo euh, ma ñawal tay jii ma ci grand plateau mais également di remercier keneen kii di Tafa Nguer moom nag dafa yëkkati ñaw bi ñawee ko Touba yónnee ma ko ba fii ci Ndakaaru mu daal di yegg si ñaw boobu incha allah ëllëg ak jàmm moom laa fas yéene sol incha allah pour plateau bi merci beaucoup. incha allah Fatima sa jaajëfal nañ la bu baax waaye li nga sol tamit rafet na tuwaat kàlla. incha nga ne loo bëggoon wax. Euh, euh, jaaree fa nag nuyu sama euh, yaayu xool di Miliane Ba depuis Cambérène mu ngi toog dañuy seetaan donc dama koy ñaanale gudd fan bu baax a baax a baax je très fort. nuyu nañ ko bu baax a baax sa yaay jooju <laughs> ay naam dafa matière a réflexion dafa am lu ñu war a jàngal. Ah, mooy lu waay yor nit ci àdduna. Hmm. dañ ko jëkkoon ci say loxo. Hmm. dinañ ko jël ci say loxo tegaat ko say loxo. Hmm. kon na rafet. ndax Sénégal rek moo ci gagné. macha allah. Euh, ñuy wàññ di wax lu ñaaw suñu ay nawle parce que ëllëg du añ du reer waaye lu mat a sóor la parce que lu koy firndeel mooy lii tey jii euh, ci passation de service bi ñu gis un Ousmane premier ministre remercier jaajëfal bu baax a baax ki nga xamante ne moom moo di le premier ministre sortant c'est très eh, important te gis nga Yacine ku ne wax na la sa morom sa morom lu baax mm-hmm. kuy xuloo di xuus mm-hmm. booy laayoo tefesu mm-hmm. mën a dem penc yóbbu fa dëgg moo ko gën loo mën a dégg ci sénégalais benn ambalul morom jar bon dégg nga Sidiki Kaba mooy dugg yi mooy doomu Tamba bi mm-hmm. waaye gis nga li wax gos yi ko mm-hmm. war a jël lenge yi di mm-hmm. Ousmane Sonko ci lu baax dégg nga li ko Ousmane Sonko tontu ci lu baax lii nag mooy Sénégal kese mooy àddina mooy Sénégal waxante lu baax defante lu baax xeex xuloo ak saagaante ci internet bi xewi na. ak xewi. liggéey ci des. rek ñii ñu jox leen ngay nag ñu war a liggéey. Mhm. yal na leen yàlla jàppale ba ñu yeggale ci jàmm. allahumma amiin wa yaa dañ leen a yónni te yàkkam ci leen. kon nag nañ leen may ñu noppalu dugg def la ñuy def. macha allah la seen conseil ministre bu njëkk. Mhm. yàlla na yàgg waaye nañu leen déglu nag te jàppale leen. te ku ne jàpp senegal ñëpp ko bokk. rekk nag. te benn bopp kenn du ko xar jërul waxante lu ñaaw. Hmm, papa jërul waxante lu bon. dëgg la papa jërul dem ci Facebook yi. tey. ñoom la fi yàlla teg. Macky sàll bi fi nekkoon def na li mu war a def. Amadou Ba def na li war a def ñeneen def na waaye yàlla ne nag maay joxe. ñëpp réew mi def kër kër kër mu ni Bassirou Diomaye laay jox. mooy mbirum yàlla. rek loolu rek mbirum yàlla. daam daam day bàyyi boppam ak yàlla. Hmm. te yàlla du bind fu mukk ci fukki fan rey ci juróom. déedéet. wéeru ci yàlla rek baax. yàlla rek dul daanu. jërëjëf Pape. waaw kàddu gi am na solo looloo nekkoon actualité bés bi. aywa merci beaucoup Fatimata Diop suba bu soobee yàlla eh, danañ dajewaat fii ci plateau bi di fàttali ni rek eh, suñu ganu tey gi moo di Serigne Saliou sàmb waaye ki tamit eh, ki nga xam ne moo di Serigne xaadim Gueye bu soobee yàlla ci kanam dana ñëw léegi nii danañ waxtaanee borom Touba ak it boromam. Euh, laata nag ñu yegsi si waxtaan wi xanaa àndaat ak euh, borom xaalis gu bëri gi xéwal gi ak addiya gi tey tey di nga joxe waat addiya. waaw ah? day tàng chaque jour. tey lan ngay joxe ah? xaalis wala. pañe ndogu tey damay joxe tamit pañe ndogu bi vu euh, joxe naa démb cinq pa quatre pañe ndogu. te cinq laa bëggoon joxe. waaw donc benn bi tey laa koy matal comme ça mu jeex. kon six ngay tey. set laa joxe set ngay joxe tey. waaw macha allah sa yaram tàng. non set laa set pañe ndogu laa yoroon. joxe naa six mu des benn muy bi. bëgg naa après ni ñuy dugg comme ma jox leen seen xéwal yi. mais ba tey mun nañ ko commencé ci Facebook live bi. mun nañ commencé joxe ci euh, suukaru koor gi. Euh, nee naa leen euh, mun ngeen woote dès maintenant ci ngeen bës 2 ngeen dugg suñu page l'officiel Sen TV wala ci YouTube bi daal di fay réagir maanaam ngeen commenté partagé ak aimé ma xool nga xamante ñoo gën a réagir rek ma jox leen ci xéwal bi 25 francs ba jëm kaw ma daal leen ko yónnee par transfert d'argent bi gën ayca mun naa ko commencer ak Yoro Dia Yoro nag euh, sa numéro téléphone mu ngi nekk 78 685 67 ak li ci topp 25 000 francs yow allo allo. alo salaamaaleykum. maaleykum salaam maman naka bon. ça va chérie yaa ngi ci jàmm. ça va alhamdulilah yaa ngi ci jàmm. waaw ça va bien merci tur bi naka la. tur bi Fatoumata la. Fatoumata naka. Fall Fall. Fatoumata Fall. waaw. Fatoumata fan ngay woote maa ngi lay woowee depuis Casamance. depuis Casamance. waa et Fatoumata man dama laa bëggoon may pañe ndogu waaye nu may def ba nga jot ci. maman est na de nar a sori na kay sori na. na kay jox ma sa numéro te la vingt cinq mille Fatoumata. jox ma sa numéro. waaw 76. Anta. Fatoumata sëñ bi noo def waaw sëñ bi nag nuyoo ba pare. Ah, maa duggoon dem Mbaye Dieng. sëñ bi doo nuyoo ba pare. naa def te am jàmm ça va. maa ngi ci jàmm. waaw ah, dama duggoon dem mu dagg quoi moo <laughs> tur bi naka la. Mbaye Dieng la. mbay Dieng. waaw euh, Mbaye fooy woote. Kaolack. Kaolack. waaw ah, yaa ngi am jàmm fa. maa ngi si jàmm Mbaye yow moom xam naa mënuma la may ci ma ngi ndax yaa ngi ba kaw Kaolack. mais léegi da nga ma jox sa numéro téléphone Mbaye ma yónnee la vingt cinq mille francs par Orange Money ay waay ay waay du gàttal ay crédit connexion ku ko ñàkk dootu ko am de nii mu amee ci nii mu nii mu amee nag ci téléphone yi la amee ci nit ñi as gor day téye connexion allo <laughs> allo salaamaaleykum dem sëñ bi wàññil télé bi. dañoo duggandoo. wàññil télé bi. Ah, allo salaamaaleykum ginnaaw suba la tamit eh, ginnaaw suba la korite. allo. soxna si wala sëñ bi maa ngi déggaat sama bopp boo mu ne wàññi télé bi rek comme ça déggante bi mën a neex. waaw moom tamit daw na. daw na Alaaji Ibrahima mu baax mi nee na. allo boo gëntee julli bul yow. allo allo oui allo salaamaaleykum. maman man la Fatou watawaat léegi. Euh, Fatoumata depuis Casamance. waaw. d'accord Fatoumata yow euh, vu que la jox ci pañe ndogo bi. waaw da may jox euh, sa numéro téléphone. jëlal. Aïcha. 78. 525. 41 64. xaara xaara Fatoumata rappelé ma sa sant. ah. rappelé ma sant bi. Fall. Fall. waaw. 78. 525. 525. 78 525. allo Fatoumata Fall. dem na. réseau bi dafa saturé. Eh, ay ca ñu ñëwaat na keneen ñëwaat. 88 la 628 89 90 ngeen bés 2 88 628 28 28 ku woote léegi rek ma daal la jox paña ndogu bi nga xamante ni euh, Yassir euh, ñoo ko joxe gis ngeen sànq euh, ñi nga xamante ni may naa leen barki démb ak démb ñëwoon nañ jël seen paña ndogu gis ngeen image bi mu ngi nii donc nag ma bàyyi leen rek ngeen seetaan ko après ñu daal di ñëwaat ci ci xéewal yi bu leen neexee wala tamit ba tey ba fekkee am na keneen koo xamante ne moo nekk ci li bi ngeen jox ma ko ma daal di koy jox euh, ci pañe ndog yi benn pañe moo fi dese te vraiment yéene naa leen ko balaa may dem donc woote leen gaaw ma jox leen ci pañe ndog bi mais avant que kenn di ñëw rek mën naa ko na joxe ci xéewal bi comme que mayee naa benn vingt cinq mille euh, mën naa continuer ak ki tudd Dabakan euh, Dabakan nag yow yaa ngi ñuy message de Purifisque sa numéro téléphone Daba mu ngi nekk 77 442 61 ak li ci topp 25 000 francs si yow daba euh, su ma jógee ci moom ma daal di may euh, Serigne Modou Fall Serigne Modou Fall tamit am nga fi 25 000 francs sa numéro téléphone mu ngi nekk 78 470 92 ak li ci topp ma daal di koy jeexalee ma xool kan moo gën a commenté moom ma daal di koy jeexalee ak Ndongo Dramé Ndongo Dramé nag yow yaa ngi message depuis euh, Kaolack sa numéro téléphone mu ngi nekk 77 597 02 ak li ci topp 25 000 francs si yow bu ci kanamee léegi yéen ñii ñëpp ma lim naa leen yónnee seen euh, xaalis par Orange Money transfert d' bi gën a gaaw te gën a wóor donc Yacine xam naa fi ñu toll nii réseau bi dafa saturé mais bu ci kanamee bu ñu ubbiwaatee téléphone bi rek ma joxe paño ndog bi. ma nga noonu laata ñuy bi incha allah. incha allah maman dañuy dem des émissions Ramadan au Sénégal fii ci Sen TV la chaîne leader ànd ko kalpe bi gën a yomb gën a wóor moo leen di ñaanal kooru jàmm Orange Money est un service de Orange Finance Mobile Sénégal Orange Money. Nescafé ndogu bu sell ànd ak cawarté bridel meewu nag pire bi ngeen taamu bi a neex Ecobank la banque panafricaine ak Yassir application bi lay yombalal say déplacement sa lekk ak say course ci njëg bu yomb Sénégindia numéro un ci wàllum immobilier fépp ci Sénégal indil leen yaatu ci villa appartement au E résidence Évoque ca Bourguiba parcelle viabilisée Millennium City ca Njaaxirat ak Tulip City ca Canal Plus dund leen korgu sell ak chaîne yi gën Precia Beko bi leen indil gamme électroménager bu yaatu Matidi pionnier du luxe africain depuis dix ans ak Sedima bi leen indil pouletiéral cent pour cent local cent pour cent sénégalais cent pour cent halal Lama boutique indil leen bazin Fusuneger cent pour cent coton bazin bu am brillance bu amul benn motif pour góor ak jigéen bijouterie la solution wa jigéen boo koy bégal la seetil or bijouterie la solution yu bees yi mu indi amul fenn Sen TV ak i partenaire am ñoo leen di wax Ramadan Mubarak ci weeru sell bi am nu solo ñuy taxaw suñuy mbokk xarit ak am di jàmm wala faj suñu soxla ak service de transfert express cash bu Ecobank mobile mën nga yónnee xaalis wala def retrait ci Gap wala Point Express pi lu gën a jege. te lépp ci 1% de dong la biir Sénégal ak zone yow tamit téléchargeel Ecobank mobile ci App Store wala Play Store ubbil compte express wala nga relier ko ak sa compte Ecobank rek daal di commencer générer sa code wala def sa retrait ci point express wala gab Ecobank te lii yëpp mën nga ko am ci dièse 22 22 dièse Ecobank moo ngi leen di ñaanal Chez Beko, nous testons tous nos appareils pour des occasions comme celle-ci. Oui, nous avons pensé à ça. Exactement, nous testons même ça. Et ne vous inquiétez pas, nous testons pour ça, pour être utilisé là-dedans aussi. Nous poussons tout à l'extrême dans nos tests de résistance pour une vie sans stress. Beko, state of mind.

ameublement ku ko xamul dégg nga ko liggéeyam dafa ànd ak jamono xool leen yile meuble de qualité made in Sénégal ñii ñooy Touba ameublement xarañ lool ci meuble am nañu ay salon en tissu velours des salons en cuir authentique ci couleur bu la neex ay salon capitonnage ay huit places ak ay salon sur mesure bu leen amati benn jaaxle salon marocain yi ngeen bëggoon mu ngi nii ci dimension bu la neex téléphone 77 555 64 78 Pour une maison qui vous ressemble, contactez Touba Ameublement au 77 430 02 02. Vous voulez un style de meuble unique, des produits pour sublimer votre intérieur. ay chambre à ci ay design yu raar fii la am ci Touba Ameublement. ñu ngi ci rue 3 angle Blaise Diagne Médina en face stade de Iba Mar Diop. téléphone 77 431 03 03. Touba Ameublement. Nous vendons ce que nous fabriquons. Nous fabriquons ce que nous vendons. nganda yooyu mel ni bërigo nekk ci sa salle de di ko xatal loolu jeex na technologie supprimé na ko kaay ma wax la lan moo génn chauffe-eau EcoPro yi ñu defaree États-Unis mooy yu bees yi te yegsi na Sénégal di chauffe-eau bu xew ci jamono noppale yomb te neex a jëfandikoo installation bu gaaw te yomb benn machine bu ndaw booy teg ci sa salle de bain sa ñaari loxo yu ñu dajale mu daal di indil ndox mu tàng ndox mu tàng jër benn machine boobu mën n alimenter lu toll ci ñetti salle espace te dañuy ñëw dong branché ko teg ko muy indi ndox mu tàng xanaa ay wax jeex na ànd leen ak jamono ànd leen ak technologie ba noppi nag chauffe-eau Eco Pro yu bees yii bàyyee ko États-Unis boo ko jëndee ay professionnel dañuy ñëw installé la ko garantir la ko douze mois ba noppi nag dañoo am service après vente bu mucc ay ma ne xam naa ni bëgg ngeen ko ñu ngi nekk ci 134 route de l'aéroport ci Yoff wooteel ci 78 586 46 46 33 820 88 44 wala 77 492 87 87 chauffe eau Ecopro daal moo lay jox ndox mu tàng saa yoo ko soxlaa te du jël courant bërëngal bërigo yi mu génn salle de bain bi waaye. attention arrivage yi yegg si na ah gaa yu baax ñi jigéen ñi xam nga lan la ñu bëgg or jigéen ku koy bëggee loo koy jox or bijouterie la solution madame ñoo aji caam wàccee yu bees tax tax yii mi ngi nii di soog a egg si waaw waaw bijouterie la solution nekk sacré cœur boo ñëwee ba boulangerie jaune da ngay jël ko ñu SDE bi daal di ñëw ba bijouterie la solution bu dee ci VDN bi nga jógee nag alignement juma sacré kër la kon nag jigéen ñi ñëw leen xool góor ñi ñëw leen xool bijouterie la solution 78 388 61 61 wala 77 720 27 27 wala 78 100 53 53 bu la neexee nga jël rendez-vous pour vente ñu yëgal la ci kaw tegal la say bijoux au 77 554 58 62 foofu ngay jëlee rendez-vous pour vente bi xanaa ay wax day jeex. laama boutique dafa dem jëli qualité indil la ko bazin 100 pour cent coton ñu naan ko Fusneger éminent bazin bu am brillance bu parfait bazin boo xam ni ba ci troisième ak quatrième lavage am brillance même six mois après le lavage waaye bazin Fusneger yamul foofu de laama boutique dafa dem jëli qualité indil la ko mu am motif yu rafet bazin Fusneger noblesse nag mooy daj dëpp gi de coton 45 pour cent de viscose dawal gaaw laama boutique boutique avenue Cheikh Ahmadou Bamba HLM Jano ak Guy gi téléphone 77 507 31 21 wala 77 972 96 46 ak Lama boutique allée Léopold Sédar Senghor wala Lama boutique deux voies HLM cey waay cey Lama boutique lii ci bazin Fos Naguère amatu. 23h56 moo jot fii si Sen TV mu di la chaîne leader dal leen ak jàmm bu fekkee yéen a ngi ñuy soog teewlu xam leen ni euh, ñu ngi ci ñaareelu pàcc bu fekkee mën naa ko waxee noonu ci seen grand plateau bi nga xamante ni ci weer wu sell wi en tout cas saa su nekk nii lañ koy defee fii ci euh, chaîne leader di remercier képp koo xamante ni nag yaa ngi au niveau de la régie ñu ngi leen di jaajëfal caméraman yi jërë ngeen jëf amuñu seen fay bu dul woon yéen xam naa ni noir et blanc la ñuy daal di génnee du dëgg yaa si daal waaye kon seen liggéey nag am na solo loolu fii sur Sen TV aywa euh, sànq maa ngi leen doon wax ni que am nañu ay gan yu mag mu di euh, Serigne Saliou Sam mu ngi fii ci plateau bi wante itam ki nga xamante ni moo di jàngkat bu mag bi kenn daal du koy euh, présenté fii ci Sénégal mu di sëriñ Khadim Gueye ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko dalal xam naa ni damay bàyyi sam papa rek mbay peex mu daal di leen di dalalaat fii ci plateau bi incha allah. waaw waaw dalaloon nañu léegi Serigne Saliou Sam ndax. toogaay bi sax dafa xaw a yàgg ci moom tey moom laa bëgg mm-hmm. ndax danoo bëgg a dugg ci moom mm-hmm. soo ko defee ñëw ci xaadim sëñ xaadim sofe ko waaye kii nu jàkkaar loolu nag tey mm-hmm. muy xaadim géey bi ma leen woo ci dama waroon a dem waaye dama ni damay del siwaat ndax jëmmi Saliou sàmb ak Amidun ak jëmmi xaadim géey xaadim bari na ku mu seqal xasida waaye ku ko seqal def na la ne boppam ab yaram nag yar na pële ñëpp loolu waaye mën a wax ci àddina as gor day yaru yaru na bëgg na xasida yi fonk na ko te du fo du jàng xasida yi nii mu ko jàngee nii jàkkaarloog mën na koo jàng ci kanam sëñ sëñ Muntaxa looloo di mu jàng mën na koo jàng ci ki nga xam ne moo tax ma gën koo téye sëriñ Moussa sëriñ Moustapha Mohamed borom Ahibaayil Xadim. Mm. borom niveau ji. Mm. borom Nayde. borom Tindoo ji. tubaarkàlla borom Taïf. siyaar sëñ Moustapha ñaanal ko yàlla fa ko sëñ Mbàkke bàyyi woon ma nga fa jaamu yàlla ak liggéey ak mën ci àddiya sëñ moo ko seereel siyaar bu baax sama xaritu mbokk ba sëñ Cheikh Aliou moom sëñ Aliou moom Cheikh Moustapha tey nag euh, euh, Yacine. naam papa waa kër lañ dalal. xam nga nag sëriñ Moustapha sëriñ Modou Moustapha moo wuutu sëriñ tuuba moo jëlee raay bi njaarim indi ko Touba. fondation jumaa ji bi muy jëlee raay bi njaarim di ko indi Touba booba réew mi kenn mënu fa am rang-rang. rang-rang mu waxaaleeg tubaab bi. nii dee du fay. sëñ Modou Moussa Faye ba mat xam nga tubaab bu tiitee day sonn bu weexee bu tiitee day sonn bi sëñ Modou Moussa Mbacké fayee jumaa ji ak li ci war ak plan beeg yëpp tubaab bi daa soon dafa weexoon tal bi ñu toog waaye bi sëñ Modou Moussa jëfee tubaab bi dafa sonn mu jëlee raay bi njaarim indi ko Touba kooku nag moom lañu dalal tey mhm. kon tubaarkàlla Cheikh ma jox la kàddu gi nga dugal sëñ Saliou Samb. Euh, jërëjëf papa damaa bëggoon euh, euh, comme agsi nañu. Mhm. sëñ xaadim yëngal jotaay bi tuuti. tàngal nu. bu mhm. ko def daal di daal di chargé batterie sëñ sëñ xaadim sëñ sëñ sëñ Saliou noo ko gisee Yacine. aywa dafay yàgg. bismillah. te bisimilah ñu ci moom sëñ Saliou. bismillah. bismillah. ngeen <laughs> def xam ni. Uh-huh. Mhm. moo féete ci sunu ndeyjoor. Uh-huh. moom la ñuy bàyyi rek mu dugal ñu ci li nga xam ni mooy thème bi. dëgg la sëñ Amidou. mbir mango. ndeysaan tàmbali ko. <laughs> jërëjëf jërëjëf sëñ Saliou. Eh, jërëjëf sëñ Abdoulaye jërëjëf Soxna Yacine Cheikh Mbacke. Eh, ñi ngi ziyaare sëñ Khadim Gueye. Uh-huh. lii sëñ Abdoulaye Mbaye Peex wax. lépp yaa sayda dafa nekk ci moom. moom sunu jëwriñ la. di sunu kilifa. yàlla dafa dogal moom école la. Mhm. génn ci moom réussir dafa. kenn xamul lu mu toll. kii sëñ Mbàkke soxna loo ko defar. Eh! lay la waaye defar nañu bari nag moom mii. gay na borom tayif bari nañu bari ñoo xam ne tey. Mhm. sëñ Baye Abdoulaye dafa ko doy war kii lu mu am ak dala ko ko may ak yar. Mhm. ku mën a dékkoo ngi nii. la may lu àddina bari bari bari dara yëngalu ko. danaan dégg rek. te boo nee tekki kenn du xam lu la naax ak lu la naqari. yàlla yàlla sàmm ko. amiin amiin. ñun référence nga ci ñun royuwaay nga ci kilifa nga ci ñun am nañ mbégte lool ci jàkkaarloog yow te fii nga ñëwit xam naa ne sa kër la ndax président Bougane ëmbal na la cofeel te Cheikh Modou Sall kër bi waral ko yal na yàlla sàmm la may la nga liggéeyal Sëñ Tuubaa li nga ko bëgg a liggéeyal def ci yoon wii ci bégal ko ci muridi ci réew meeg bitim réew faww Sëñ Tuubaa dina la ko fay yàlla yàlla gën la fee saxal sëñ Ablaye mm. sëñ Saliou dafay bëgg a waxtaan ci diggante bu sensible mm-hmm. boo xam ne képp ku mas a wàcc ci àddina kooku nga doon wër mu ne la da nga yem escalier door a ci man moom mhm, yàlla mhm. balaa kenn yegsi ci man da jaar ci yonent bi man yutihi rasula faqad ataa allah qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah moom la sëñ tubaa tëgg xasida ak midaadi gaa yépp yàlla lañ doon wër sëriñ bi jaar ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko anta suluki ilal maliki yàlla la wër ba téyeku looloo waral mu ne walastu asalu xayran naafian laay faxultu xasbiya rabbi waktafaytu bihi walastu raadiya xayral almi wa diggante sëñ tubaak ak boroomam ci la sëñ Saaliw war a dugg ba muy sóobu ci yàlla desewul dara ba ko yàlla di fayit ñépp teg nañ ci seen bët sëriñ bi di géejug yàlla ndax ba mel ni ñeex sëriñ boo lambaajee mbooti biiram moo indi teex tërub wolof ak boobu yaaram ak wax yépp yam lu jóg ngir rasulullahi baatin ba saf xorom danaa xelli meew moo xam ne yaaram ya sawti ko sëñ Saaliw diggante bi ngay waxtaanee dafa am jabolis mm-hmm. jàpp nañ ñu ay mushrik ñuy bokkaale yàlla jàpp nañ ñu ñu fonkul sunna jàppe nañu ñoo xam ne sëriñ bi leen def sunu yàlla déedéet bara anil ilaahu min shirkin wa min kulli nifaaxin wa sahaadati damin biñ ko dëgmalee def na yàlla laa leen joxoñ diggam ak boroomam ci ndawam ba fii muy wax ak ba démb ci heure bii ba tey ci tàkku saan tàkkusaan cheikh mamadou muntaxaa ngi fi toog toogal fi sëñ tubaa waaye nekkal fa lam waxoon ni walastu asalu xayra naafiillahi diggante bu doy waar nga nar a waxtaan sëñ saali jërëjëf sëñ Amidoune maa ngi nuyu sunu jëwriñ ju baax ji di door a yegg si. walaay mhm. walaay. Serigne xaarim géey mboolem lu ngeen wax ci moom rek lu yàlla def ci moom la. jëwriñ ju mag la. ju baax ju xaritoog ñi nekk ci yëngu bi ñépp la. amu cee kenn xar xarma yàlla. kenn du ci wax sëñ Khadim Gueye ma wax lii mbaa moom a ko def. Mm. yàlla na yàlla dëgëral la. amiin amiin li sëñ Hamidou wax ni ab école la. école la. ndax ba mu dalee dox ci yoon wi ak léegi moo ngi def fan. te kenn gisagul koo xam ni taxaw na rek wax ni moo ko defub safaan. Mhm. kon royuwaay bu mag la. ñoo ngi ñaan yàlla mu guddal sa fan lool. amiin yàlla mu wéral la. amiin ñoo ngi ñaan yàlla mu téyal nu la. xasiday borom Tuubaa yi nga xam ni mag a ko wax ba man li ma gëm mooy ku ci man dara dootoo gone. yow am na foo ko yóbbu. am na niveau boo ci nekk. Mhm. yow xam nga ni ma nga ko wax. dëgg la ndax sëriñ bi daa waggaroon boroomam. Mhm. ba boroomam yenkeewal ko xasidaam yi ndax moo wax ni maa ko jële ca alluway maxfoos mhm. waggar gu mu waggar yàlla ba boroomam peegal ko lu mu denc ca alluway maxfoos nag ku koy wax dootoo gone hmm. war ngaa xam yow la kan dëgg dëgg na damay Baye Abdoulaye damay wax ni hmm. xasida ak borom Tuubaa ku ci mën a wax benn baat bu jub ba nit bëgg lu sa ni at yi néew néew am nga cër boo ko xamee boo ko xamul ilaa illallah ndax ka ko wax balaa daraa xew la yàlla d'accord ak moom moo tax sëñ Mbay Jaxate wax ni ndaw rek laa lu ni ràpp ak mag ma mag caña mag ki wax xaside yi moo mag caña mag nee na mu def ci man jëfi mag may mag tinaati na ndaw eh sëñ Mbay ko wax ci wolof waaye moom moo ko wax ci arab moo ni ajaabani rahmaanu qabla alxalqi sabaina alfa sannatin bil haqi dëgg la yàlla d'accord naag man soixante dix mille ans dara xewul tey Cheikh Ahmadou Bamba nga may waxtaan loo nag ci cadre bi nga xam ni ñii dund ci diggante temps ak espace moom la xam la muy nit ñi fii ma duggoon léegi am na ñoo xam ni da leen tiim ba mu ëpp ndax ndab yi yamul xel yi yemul bopp yi yemul mhm. loolu xasida yee tax ma jaar noonu dëgg la waaye fi nga may waxtaane loo dama koo bëgg a indi fii nit ñi ne ñiy dund ci diggante temps ak espace li nu xam laa bëgg a waxtaanee borom tubaa ak boromam da ngaa wax baat bu garaaw mooy dañ ñoo def ay musrik taalibeeb sëñ tubaa du bokkaale yàlla ba ab lay taalibam sëñ tubaa bu jàngee mbindum sëñ tubaa du bokkaale yàlla bu déggee waxi sëñ tubaa ci wolof du bokkaale yàlla mm-hmm. benn bu liiree benn jëfu sëñ tubaa ci diggam ak yàlla du bokkaale yàlla dëgg la taalibam sëñ tubaa mënta bokkaale yàlla dëgg la ki ci gën a néewum njàng jàngul dara bu déggee ñu wax benn jëfu borom tubaa dootu bokkaale yàlla dëgg la de ki jàng su liiree mbindum sëñ tubaa dootu bokkaale yàlla ki nga xam ni jàngul xamul déggul jëfi borom tubaa waaye dégg na baat sëñ tubaa wax ko ci wolof mu jëm ci yàlla dootu bokkale yàlla xalaas la ilaha illallah boo jàngee mbindam sëñ tubaa dani hmm. wax buur bii may wax ni mu moome penku bi la moome soow bi moom kenn noonu mu moome penku beeg soow bi moom kenn de te beru ci noonu la moomee jéeri jég géej gi eh. malikun lahoo charqun wa xarbun wahdahoo wa kazalahoo barrun wa bahrun yukmilu ñu ni sëñ tubaa koy wax mu ni ki may wax mooy aji teew ji nga xamante si nii teewam gi ak jiitoo ko njëkkoon moo fi mhm. jiitu woon mhm. avant teew gi moo fi des bu ñëpp demee te lu dul moom ala la ma déglul sëñ tubaa eh. lahul wujudu alladi qad sanahu xidamun ma al la ilaha illallah lahul wujudul lazi xat saana xoo xidamun nakam gi moo fi jiitu woon maal baxaa i mooy aji des wa xayrullaahi lu dul yàlla lillaahi alal yàlla sëñ tubaa nee na <laughs> may wax moo fi jiitu woon te amul fu mu tàmbalee moo fi des te amul fu muy yem mooy kenn koo xam ne amul ñaareel te du dañ mukk di aji màgg mbir ji. dëgg la. wa huwa alxadim maa lahu bidaaya wa zu baxaain maa lahu nihaaya wa waahidun maa lahu min saani wa huwa walam yazal jalla alimu sani du dañ mukk cay di aji màgg mbir ñu ne sëñ Tuba koy wax lii ñoom yaa Seyda doon décortiquer léegi sëñ Tuba indi ko ci bopp genn xasida hmm. allah jalla ahadun wa huwa samad laysa lahu min walidin wala walad walam yakun jalla lahu kuf an ahad wa sarmadan bil mulki wal hamdin farad asadu annahu l ilahul wahidu wa anna ahmada rasulul abidu ñu ni sëñ Tuubaa ki ngay wax mooy kan mu ni allahu rabbun jalilun malikun ahadun barun latifun karimun lam yazal sama daa la ilaha illallah la ilaha illallah xanaa ñi jàng dégg nañ lii dégg <laughs> ñi jàngul te fekke mooy boo nee yàlla rek kay buur ci wetam mu ni la saabaram nga xool mu ni la tasxir ge ko yàq del wax yàlla daal buur boo nee yàlla rek day mel ne am na keneen ku des te moom kat wax dëgg laa sarika lahu daal te moom kat wax dëgg laa sarika lahu la ciy teg sëñ Tuubaa boo nee yàlla rek kay buur te yàlla rek kay buur Sénégal nangu na ko ba tey waaye boo ma yàlla rek kay buur ci wetam daal naan saa ni la tasxir ge ko yàq nga di tekk mu la del wax yàlla daalay lay buur boo nee yàlla rek day mel ni am na keneen ku des te moom kat wax dëxoo la sërika loxoo loolooy waxi wala fam ma wax la jëf tis hmm. baara jot daal gi toll fii ci Petite Côte oh. le 21 septembre gaal gi daw ba Petite Côte tis jot du yéexal wenn waxtu te mas la fay faat la koy wax raw na montar mooy boroomam jibril ni ko sa boroom nee na waxtu wi jot na cheikh ahmadou bamba jàpp tubaab bi yebal jigéen mu ñëw laal ko mu tàmbaliwaat jàpp ma doxal tuuti ba muy masa kooku ñëwaat bàyyi Moussa nee na bi mu gestoo soxna si ne tuuti kon mu tàkk faf mu bal ko cheikh bamba daal di jàpp julli tisbaar fu jullee tisbaar ca ndox ma ndox jëm ci gémmiñu gaal gi la borom Touba def tubaab bi gëm ni day xaru murid du bokkale yàlla de seen sëriñ moo def geste boo xam ni joxe wax joxe jëf ndigalu yàlla tax mu def ko moom borom Touba jëf ndigalu yàlla moo tax mu def geste bi bi mu ko defee tubaab bi daa gëm ni day xaru ku jëf ndigalu yàlla jaral def loo xam ni ñi nga jarool ñëpp danoo gëmoon ni da ngay xaru sa taalibe du bokkale yàlla waaye dëgg la jëm ci kimiju gaal gi mu doxee jëm ci kimiju gaal moom borom Touba tubaab bi daa gëm ni day xaru waaye yàlla mi nga xam ni moo may sëñ tubaa di ko may di ko may ba mu ne yàlla lu ma bëgg nga defe ko fi mu fi ma ko bëggee mu dox jëm ci kimi yu gaal gi gaal gi dëngaa ñu dox bu fudd ñu tolloo kooka du cëppeelu déedéet sëriñu sëñ Mbàkke Buso eh. du cëppeelu Baay Ablaay ku leen di daa cëppeelu da lay nax daa dox jëm ci kimi yu gaal gi moo ni sëñ Mulaay Buso gaal gi dëngaa ñu ndox mi fudd ñu tolloo ma wàcc xalaas waaye li ma ñor mooy gest bi jëf ndigalu yàlla tax mu def loolu sëñ Touba ba bëggee xam diggam ak yàlla xoolal diggam ak alxuraan ba bëggee xam diggam ak yàlla xoolal diggam ak jaamu yàlla yi ni ni mu daa jaamoo yàlla ba bëggee xam diggam ak yàlla xoolal diggam ak Sayyiduna Muhammad fi mu teg yàlla góor mu ko faa teg moo tax yàlla fayal na borom Touba noonu genn góor dootu ko am dëgg dëgg la kenn mësu ko am te kenn dootu ko am ñépp a ngi ci biir nag ku dul rasulullaay fi nga ko féete moo wax ni lahu xitaabi xablu rabbi habli maalam yakun li saalihiina xabli ku baax ku ma mës a jiitu bi ma janoog sama borom li ma jox mësula koo jox mësoo koo am maalam yakun li saalihiina xabli nañ dem lan am aya 85 wa zakariya wa yaxya wa isa wa ilyas kullun min as-saalihiina li mu am góor mësu koo am Sayyiduna Muhammad rek ne ci kanamam te yàllaa ko ne eh. Sëñ Tuubaa dem na ba wax ak yàlla njool makka yàlla ni ko njool makka mooy raccourci bi waaw wax naag boroomam de li ñu naan Cheikh Ibra Fall mas nay xibaarum njëbbuloom ba wax ni yàlla mi ko moom moo ko ni Bamba moo la moom Cheikh Ibra Fall góorgóorlu woon na ba ca boroomam boroomam ni ko Bamba moo la moom waaye Sëñ Tuubaa it farlu woon na ba janoog boroomam boroomam ni ko eh njool makka mu ni dallani allahu ala xayril wara waxaadani xayrul wara lisil wara dallani allahu ala muhammadin waxaadani muhammadin li samadi mu toppee rasulullah nu ko kenn mësta toppe def yonent bi nu ko kenn mësta def sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yabalee ci rasulullah def na yonent bi nu ko kenn mësta def moom si Amadou Bamba wax na yonent bi ko kenn mësta wax bëgg na ko nu ko kenn mësta bëgge nee na lépp lu nit di bëgg lépp lu nit di am muy njariñ muy nit mbaa muy richesse mbaa muy lu nit di soxla ci kaw suuf si soxlaatuma ko fi rasulullaay toog ci man moo tax dara mënta placé ci sama xol mahat mahabatiyal muxtaar sayidina xubbil maxaanie wal ahlina wal wala daa ñu ne sëñ Tuubaa noo demee kooku mu ne xanaa xamoo leen ni buñ doon asamaan seeg suuf si wurus ak jamaa ba mu fees ni ma ahmadou bamba yaa ko moom seen rasulullaay ma ko gënal yaminu rabbiya masaarul mujtaba afdalu min mil il biladi zahaba sëñ Tuubaa nee na sama fajug yaram sama doktooru yaram ak sama doktooru xol sayiduna muhammadu rasulullahi la sifaau jismi wa sifaau qalbi muhammadun sallallahu alayhi rabbi la ilaha illallah kooka moo jox cër rasulullahi ci ndigalu yàlla damay faral di wax su may waxtaan di diggante sëñ Tuubaa ak Makka boo gisee mënta mel ni digganteem ak ñeneen ñi diggante sañ tubaak ak alxuraanu karim mënta mel ni diggante alxuraanu karim ak kenn mooy yàllaa ko digal ci alxuraan digal ko ci rasulullah ñaar ñi yàllaa ko yabal ci ñoom moo tax mu wax ni kaw niya xadima nabii wal kitaab fadlun min al wahaabi la min iktisaab sëñ Tuubaa nee na du fàggu téef liggéeykat bi ma doon ci rasulullah doon ko ci téereb alquran bi du faggutee fadlun minal wahaabi yàlla ma ko jenkeewal moo ma ko may moo ma ko defal moo ma ko wërsëgale fadlun minal wahaabi laa min iktisaab du ay paggu moo ma def may liggéeykatu rasulullah yi ak téere bi yàllaa ko yebal dafa am ñaar nag yu bokkul nga am na koo xam ne lam def baax na yonent bi noo ko liggéeyale baax na alquran noo ko liggéeyale baax na waaye di liggéeyal alxuraan ci ndigalul yàlla bokkul ak di ko def ci sa coobare gis nga sayyidina jibril mii alayhi salaam mi nga xam ne moo gën ci malayka yi bi nga xamee ni su jootal na yàlla fukki junniy rakka yàlla laaj ko ana loo ci jublu mu ni ko ni nga taarale sama jëmm laa la sant sama fukki junniy rakka yi yàlla da ko wax ni aw xeeta ngay ñëw mu mujjub jamono duñ gudd fan duñ am kàttan waaye seen ñaari rakkay fajar moo ma gënal sa fukki junni yi ndax maa leen ko sant maa ko sant ji wax ji gis teg baraada soxlawul ndawal naanaa soxla ndax a gën a seer de waaye naanaa la soxla sëñ tubaal li mu defal yàlla mooy li yàlla bëgg. Hmm. dégg naa dëgg de. est que dégg nga ma. dégg na la ndawal di yëpp soxlawu ko. naanaa lay wër. Hmm. yàlla bëgg mu defal ko la ko defal. moo tax mu wuute ku ma sa liggéeyal yàlla. moo tax mu ni yàlla mi nga xam ni mooy seen borom moo ma jiital ci liggéeykat yi xadamani laahu ala alxuddaami bil mustafa al musabbiti al aqdaami mulkul aliyil baaqil xadim jaalani asna al xadim suñ tubaa nee na ku ma sa liggéey maa ngi ci sa kanam laqad sabaxtu falaa yaxfa ala ahadin illaa ala ahadin aqsaahu mawlaahu sëñ Touba nee na yoonu rasulullahi ak liggéeyal ko man rek maa ci premier bu amul deuxième premier boo ma sa gis danañ jiwee deuxième sëñ Touba nee na bi ma jàllee danoo tëj bunt bi faraxtuhu bi xidamin la saaniya laha min al xidami laysat faaniya sëñ Touba kenn la ko amul ñaareel bu doon am ñaareel ceernoo koy doon eh. te nangu koo doon moom ceerno moo lànk bi ray fati sami ci bu doon am ñaareel Cheikh Modou Moustapha Cheikh Modou hmm. Moustapha lànk ku ko xam wagar nga ko na mu wagare yàlla boromam wagare ko rasulullaay sépp góor gu mu mas a dajal wagare nga ko noonu dub tubaab du nit ku ñuul sëñ tubaab ku mas a jëflante ak moom ba ngeen di tàggoo wagar nga ko teg nga ko foofu masoo faa teg kenn teg nga ko foofu kenn dootu fa teg kenn ndeysaan mu jëfandikoo ci njool makka li mu jëfandikoo ci njool makka ba yàlla amee ko ni ko bëgg ci rasulullah mu aj loxoom ni ñaara ngi nii xaritum yàlla yombul maam Ibrahima la ko yàlla waxaloon waaye ba ma xamee man Ahmadou Bamba ni yàlla mën naa am xarit laa fexe ba mu ne ma Ahmadou Bamba sax sama xarit nga Sayyiduna Muhammad it du ko jóg muy sa soppe di sa xarit waaye maa ngi ni di waatal ci yàlla ni lu ma bañ la bañ lu ma bëgg la bëgg ndax maay ab xaritam eh. aqsamtu billahi inni li nabi wax xillun wa hibbun wa maa abaahu yaabaahu nabiyuna al mustafa xayrul wara garadi fi kulli shay'in wa maa yaabaahu abaahu daal di eh. wax lii ma doon wax nag xasida tara xasaida tawhidi li malika nekk ndeke xasaid wéetal yàlla la la ilaha illallah la ilaha illallah tara qasaida tawhidi li malikina ñu ngi may laaj sa numéro téléphone faaw ma joxe ko rek ndax àddiya gi 77 512 34 21 21 512 34 21 àddiya gi tara qasaida tawhidi li malikina shawahid al haqq manhatan liman bahu xasaa yi tangoog sëñ tubaa nee na taraa xasaa ida tawxiid yi sama xasaa yi ñi nga xam ne wéetal sama wéetal yàlla li maliki naa sawaahidal xaq man xaatan li man mbaaw moo tax bu wayee ba noppi lu dul xadis ba alquranul karim waaye mi ñoo ko gën tey xasidati faqat xasaidal kiram wa lii taxuulu abadan xayral maram sëñ am yaa ngi may laaj digganteem ak boromam ma wax la secret waaw mm. moo tax mu wax nii yajiduni inda malikin muxtadir kullu waliyin lil jinaani yabtadir ci boromam la gënee jamono moo tax ku fa ñëw fa nga koy fekk xam nga lu tax bi muy gën a jamono dafa fekk waajuram di dëkkaaleeb yàlla hmm. jaaratulaay mooy lan dëkkaaleeb yàlla waa ku ku jaar tur laay meññ foo ganee jamono. xanaa xanaa ca yàlla dëgg la. moo tax sëñ tubaa ca yàlla la feeñee. moo tax mës ta génn yàlla benn cerce mbaa benn seconde suñ tubaa amul cerce bu mu mës a génn boromam ku mës a ci sa bopp gontu ci yàlla sëñ tubaa du sa morom. billaahi. ku mës a fàggul sa bopp dara lu jëm àdduna. sëñ tubaa du sa morom. bokkoo leen dëgg ku mës a dem ba mu yàgg nga noyyi ni liy metti na ci sa xol sëñ tubaa du sa moroom ku mës sa dem ba mu yàgg nga toogaat ni liy neex na ci sa xol sëñ tubaa du sa morom sëñ tubaa xamul luy bànneex yàlla la xam moom lu yàllay saf rek la xam te ni sëñ Abdu borom tër boo gisee du ma xasenu du ma toxoñu damay bañ a am bànneex bu dul yàlla du ma xasenu du ma toxoñu du ma xasenu du boo gisee du ma xasenu du ma toxoñu damay bañ a am bànneex bu dul yàlla te ku xasenu am bànneex bu dul yàlla moo tax du ma xasenu du ma toxoñu ak lu mu métti métti cey boo gisee du ma wàcce du ma def dara ci poos damay bañ a yor loxo mu dem ci poos ndax ku yor loxo mu jëm ci poos la nga dencoon ay nekk sa xel sa xel day bàyyi yàlla nee na boo gisee duma toog lu dul jotaayu julli du ma toog yegg suuf damay càppanu damay bañ neexaayu toog jàppam ma yegg lu dul yàlla du ma samay loxo ndax daa neex du ma geesu doom du ma jub ma muuñ man yàlla rek mooy li may bégloo benn bëgte laa am benn bëgg-bëgg laa am ak luy bëgg rasulullahi mooy yàlla sëñ tubaa nee na awma lu may bëgg bientu muraad yi bi muraadillahi wa bi masarrati rasulillahi muraadu qalbi muraadullahi maa masarati rasulillahi Cheikh Amadou Bamba ta ta ta la ilaha illallah jërëjëf ba hmm. nga ñëwaat euh, euh, sëñ Amidou macha allah euh, Yacine naam papa tey tey xool yëpp gis nga ñuy somb téléphone bi di la ko laaj waaw xool yee sedd wallaay ndeysaan mhm. léegi rek la ma Mori Xusa ak waa peex woo Mori Mbacke Mbay ak Bëja Mbay suñu doom nii dafa tudd sëñ Mahmoud Mbégéré dëkk bi génn allahu akbar da ngaa tudd sëñ Mahmoud rek Mouride Khoussa nee na ma peex génn. ndeysaan. doy na sant yàlla. gàcce ngaalaam maa nag bugaan. dëgg la gàcce moom it. parce que. ngay maam góor weeru koor wii. tarixa yi ku ci am cër. jox na la ko. waaye wan na ñëpp ni sëñ Bamba laa féeteel. dëgg la. te nag ragal péete day xañ a wërsëg. dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la ak sëriñ bi. nii la mel. dëgg la. àdduma gaaw na bis doxu fi. sëñ Tuubaa li ko yàlla jaral moom rek la ko yàlla jaral julli gii mu wax léegi ba ki bi ju gaal gi ñëw toll moomu julli koo ci julli loo ci piscine balaa ngoon mu dee. Mm-hmm. julli léegi dee léegi. Mm-hmm. piscine piscine. boo julli di dee. lii nag wax. ku yàlla bind munoo tee ñu wax ko. kon soñe ko wér. barke Sëriñ li mu liggéeyal yàlla te bala nga koo xam génn Sénégal def nañu fii benn mars jógee affaire étranger jëm jëm ci mairie Dakar yi waaye yéen mën leen Sénégal ñoo mujj a mars ñoo mujj a mars Sëriñ Bamba. jaarale demal ñu jaar ci mbedd yi gën a mag ñëpp ñëpp waxandoo baatu laa ilaha illallah ca góor ñu bi nation ci nii Cheikh Mourtala Tabita. ndokk ba lay sax. demal Espagne mars nañu. demal Amérique mars nañu. demal Italie mars nañu. demal France mars nañu. mars nañu. Cheikh Gala bu jëm mars. te bu ñuy mars nit ñi faxal seen i nopp. <laughs> lay ku xëjoo wut ak moom génn nii. waaye Ablaye benn erreur rek am. loolu la nit ku ñuul daa gëm ñaan te gëmul may. Eh, nit ku ñuul. daa gëm ñaan te gëmul may. la ilaha nit ñu ñuul ñi senegal nangu nan ñaan may lañ nanguwul. dëgg la. bu ñu rànganoo woon fii léegi julli ku nekk def nii yàlla loxo ñu bokk luñ ko ñaan yàlla may ko bàyyi Ablaye Saliou naan jaay dorog. baaw. ñun gëm nañ ñaan may lañ gëmul. waaw day blanchir. waaw. dégg nañ dëgg. lii yàlla def borom Touba. ñun ñu koy wax rek moo tax ñu naan dañuy bokkaale waaye nun bokkaale wuñ suñ xaritu yàlla te xarit day sañ ci alali xarit ba dara murit du bokkaale yàlla wallaay sàmm sëñ sa sëñ Tuubaa xaritu yàlla la sabata kaw ni ya xalilallaahi billaahi sarmadan habiballaahi wallahi inni qillun lil ilahi bihi hibun lahu doona kasbin fii ujsaahu allahu xilli abadan wallahu hibbi wala ilaha illa allahu murit bokkaale yàlla sëriñe may xaritu yàlla incha allah. ana sëñ Xaadim Guèye. sëñ Xaadim ah sëñ Xaadim. sëñ Xaadim bisimilah. bisimilah rahmaan rahim. Uto umuri wazan bil azim. لرب الخدير الغفور الرحيم العزيم عبد القدير الغفور الرحيم سكوت أموري وسن بالعزيم برب القدير الغفور الرحيم سكوت أموري وسن بالعزيم القدير الغفار فكل مسكيا لي وهاب للمنى بجاه النبي إذا في الكرم وعسى بالعزيم القدير الغفار وسلي عليه بخير انتعاء وسلم سلاما عليك يا دوار عسيم قدير الخبر وكل ولي ينونا وخدا وكل نذيرا فإني عدل أسيم بالغد تنغفر وقل بلادي بن وهب لي وكل لي غفارا فإني مولاي أعطم إرسال بالعزيم قدير الغفار وكل محين على بطل به وكن مقديرا لفإني سائر بالعسيم قد رقبا ونعير جناهني وسيدني الله لتقى وأنفر جناحي وهب لي نجاة وزدني هدى وأصلح أموري وزدني نجاة لتقى وجنات وأخرجوا يا بواسيدني وأبري سخامي وفرجهم Go. لتقى وانجانا ولا تخسيا نيقني مالوكا ولا تفديهني بكوني لا مالكا ولا تفديعا نبيك فإني لائب العسير الغوى وحاسن ولكن إلهي عليه ولكن وعافية أبونا وخدا لنا ولمن لهدى يستقيم أبونا وخدا لنا لمن ليوم يهدى وصلي صلاة على المصطفى وسلم سلاما عليه يا دور على المصطفى إلا من عليك ما رغبا ما رغبا ما رغبا باكي ما رغبا ما رغبا سنغوب سنغيا waaw sëñ Saliou Mbacké baax moo baax mara ban maraax ban sangop sang maraax ban maraax ban sëriñ Saalihu Mbàkke baax maraax ban maraax ban sangop sang yaa ban maraax waaw sëriñ Saalihu مبارما راغبا راغبا زنقوم ما راغبا ما راغبا سرن سالق بكي باغ ما راغبا ما راغبا زنقوم زنقيا ويا ألاج فللو مبا مرادا مراخ بالزم مرحبا مرحبا شيخ عبد القادر مبكي باخ مرحبا مرحبا سنغوب سنغيا داني شيخ عبد القادر mooba waraban maraxban tangoob sey maraxban maraxban Cheikh Abdou Khadir Mbacké baax maraxban maraxban sangoob sangeya

waaye Cheikh Abdou Khadir amul morom mara mara ban sango sange jërëjëf Xaadim euh, laal na ma nag laal na ma te nii wax na dëgg de mm-hmm. nii muy jàngee jàng naa ci moom sëñ Saliou. Hmm. kër bi yaayam génne àdduna. kilifa gu baax gu ne ñëw na nuyu fekk na ko ci kër ga jaal ko. ma dina siyaar xaadim kebe day sama xarit. Hmm. ku ne xam sama digg ak moom. ajuma gaawale bi toog fi. Hmm. sama nuyoo moom maa ko koy teg ca loxo. naa ni ngeen demee. waaye tey nit ñi yëngu nañu njàng mii. gën nañ koo dégg ci Abdou Khadir Sey lii moo di njàng mhm. njàng day tege ci yoon nga jàng ko te muy dëgg te doo regeju lii muy dëgg daaj bi su ko Abdou Khadir sëy ma see daaj sëñ Mahamadan Jobbe ni ci biir nii bi waa kër sëñ Masamba ni nag sëñ Modou Fati xarit ca xam njabootu Cheikh Massamba gi génn Abdou Khadir Sey daaj ko foo toll di ko déglu lii mooy njàng mi yoon wi nag a ngi nii lu daal koy xaaraan koy toggantoo ko ko teg kuy toon jutta kuy fay du mucc kuy xëccoo du noppalu coodoo cooloo dégg ca teen ba ñaamul baa nga te bëgg duy waaye ñaan nag sëñ Bamba duy nañu ba dem soowunoo kenn lii waaw du euh, sëñ bi duy nañu ba dem sëriñ bi moo mën a fay moo mën a teralas gor. Mhm. moo tax tey dëkk bi yëngu na. wallaay yëngu na papa. Yacine. papa dëkk bi yëngu na. Mhm. dëkk bi yëngu na. Cheikh Mbacke Mbuub. kay macha allah fi mu ne xol yi tooy na. xol sedd na sëñ Xaadim. yàlla na baat bi wér bu baax a baax incha mën nañoo delluwaat mën nañ ne ci waxtaan wi. sànq rek euh, yaa Seyda bu fekkee mën ngeen ma koo may kilifa yi nee na am na benn euh, question mu bëgg a posé. sëñ euh, Saliou Samb. ci alir bi nga nekkoon rek. Mhm. parce que thème bi am solo la. te it jamono du laaj. Mhm. ñu leer dëgg-dëgg. Mhm. lan mooy mission Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul. damay ba léegi Sénégal jariñoo jariñoo guñu dëgg-dëgg. lan lii nga laal léegi digganteem ak yàlla nga xam tey. yaa ñuy jàngal tawxid bi nga xam ne moom la incarné woon ci waxtu woo xam ni kenn ñemewu ko woon euh, sëñ Saaliw bëggoon naa xam dëgg-dëgg fi nga nekkoon lan moo waral lahu shukuri bila kufuri wa nasir minhu fii da'i foofu laa bëgg nga téye ñu fa jàngal Sénégalais wala nga jàngal àddina beneen facette ci Sëriñ Tuubaa lahu sukuri bila kufuri xam nga lu ko indi lan la tontu waskuru li askurukum waskuru li wala takfurun waskuru li wala takfurun lahu sukuri bila kufuri la ilaha illallah yàlla ku ko santul da nga koo weddi te loo bëgg a xam na nga xool loo bëgg a xam nu mu toll ci baax xoolal contraire lam nu mu toll ci safaan mhm. weddi yàlla gën a bon ci bon bon yi moo tax sant yàllaa gën a baax ci baax baax yi te yàlla bu tubbee sant rek weddi lay teg la in sakartum la azidannakum lu ci topp wala in a inna la sadid moo tax ba muy wàccaloo yàlla lu nekk mu koy wàccaloo barabu safaan ba dani ko wa anzili sukra makaanal kufri lahu shukuri bila kufuri aaya bee la tontu waskuruni wala takfurun moo tax bi mu nee lahu shukuri bila kufuri <laughs> moom lay sant te du ànd ak weddi parce que yàlla xamal nañu ni sant mooy contraire weddi moo tax moom bu santee day xam le ni yàlla man ci sant la laa dëkk xam nga Sëñ Tuubaa dafa wax yàlla ni lahu xitaabi shaakiran laa shaakiya dafa yàlla ni ko maa ngi janoo gi yow di sant shaakiran laa shaakiya du ma mas a jàmbatu Sëñ Tuubaa bu doon kuy jàmbatu fa mu bind xasi dag yaa xayra day fi maa ngi koy wax am barki démb ci émission bu doon kuy jàmbatu foofa jar na jàmbatu comme ko bindee baa fali mhm. jar na jàmbatu bu doon sëñ Tuubaa bu doon kuy jàmbatu waaye laa chaque yàlla wax du ma jàmbatu sant rek shakiran laa la laa shakiya sëñ Tuubaa nee na du ma jàmbar yàlla dara lu mu def ci man moo ma neex li ma ko jooyalee sama mbir sax dootuma ragal lori kenn mhm. lastu axaaf durra xalqin baadama fa wattu amriya ila rabbi sama wax feneen ni lastu ufawwidu ila gayril jalil amri wa ma faala bi fa huwal jamil sëñ tubaa nee na su ngeen yeewoo sama kër yi tàkk sama doom faatu kontaan naa bi mu neexee yàlla laa amatul droit mu naqari ma nit ñi war na noo xam kooku de nit ñi war na noo xam kooku fan la nekkoon ci yàlla sëñ tubaa nee na boo gisee lu ma tubaab bi mas a def mu neex ma mooy lu ma mas a def xam naa ne bu yàlla àndul du jàll moo tax dara jàllul maa ngi ko wax sëñ ni ko dunduk sëñ tubaa yanuwul maanaa ci mbiru nit koo xam ne mës def lu nit man musuñ koo teg lu nit attan te mësuñ koo teg lu jàll lu mas a def jommal nit ji amul daray sëñ tubaa loo xamante si ni yanu na maanaa mbiram yenuwul maanaa ci doomu aadama musul la def waaw musta def lu nit man musuñu koo teg lu nit attan waaye luñ koy waaj a teg day wëkkirlu ci boroomam balaa nu ko koo teg xam ne bu ci boroomam àndul du jàll moo tax dara musta jàll sëñ tubaab bu ko bu ko tubaab bi ma soon a jub dara mu rët mbaa xalaat ni lii man na maa gaañ day jàll waaye nee na man musumaa tiit walastu arju wala aqsa walastu arju wala axsa si wallaahi <laughs> musuma yaakaar te musuma ragal kudul yàlla walastu arju wala axsa si wallaahi am na feneen fu mu wax ni walastu arju wala axsa siwa maliki booba ñoo ngi koy wan ni kii buur la mu naan leen man aw xaw ma benn buur budul bi hmm. boobu rasulullaay bi rek man yàllay rasulullaay rek laa xam moom jenn yàlla la xam Cheikh Amadou Bamba jenn benn buur la xam xamul ñaari buur fi mu tubaab beeg riiram mépp sëñ tubaa jàppewu ko woon lu dul jaamu yàlla bu yàlla sadd ci kawam ba tax lu ko tubaab bi def mu neex ko ay la ilallah waaw sëriñ Saaliw dafa wax ni ca ca xasida innamal amalu bi niyaati li ko tënkee muy xooxal bu kaaw dafa wax ni dafa wax ni gaa yu baax ya kaanu iza nabahu min nahwihim dararun taabu ilallahi min kusril xati'at sëñ tubaa nee na lii ma tubaab yi doon def bu jàlloon sax magam ni damaa war a tuubal yàlla yàllaa yeble ngir ñu ngir ñu mbugale ma ko isa nabahu min nahwihim dararu taabu ilallahi min kusril xati'at maanaam nekkul woon koo xam ni am na lenn lu tubaab bi mës a def ba mu yaakaar ni tubaab bi def intention la boo xamante si nii mu ngi ko jëmee ci sama kaw te moo ko tay te du dogal yàlla moo tax lu ma sa ñëw mu jàkka dogal yàlla nag moo tax dara jàllul waaw bi ñu demee ba dara jàllul mu xëy ni afawtu anil aada yi mel ni dañ ko ni sëñ Tuubaa ñi nga baal ñan la ñu xees ñi wala ñu ñuul ñi mu ne turran ñu xees ñu ñuul ñi <laughs> tax nga baal leen mu ne li wacc man nafaahum li xayri sarmadan lastu ah. adfau ah. man musuma défendre waaye yàlla mi nga xam ni moo moom jaam ñi te lu jàll moo ko jàllale moo fexe ba ñoom defuñ lu jàll jëmmi yàlla moomu moo tax man Ahmadou Bamba ma baal leen léegi nag sama borom boobu bi ma baalee gars yi ba noppi damaa jën moom ni ko yàlla mu ni waaw mu ni ko sa noon yi sama noon yi baal naa leen ngir sa jëm ma bëgg nga baal sama soppe yi ngir sama jëm yàlla ni ko baal naa leen mu ni murid yi duñ dem àjjana bu ma fa wàccee àjjana lañ jëm ñoom ñëpp murid duñ dem sawara bu ma fa mënee cëpp Sénégal ku bokk ci ñoom dem àjjana ijaal rujoo yi ilaa xaw mi saadatana wal tag fi naa yow ma jami xalxi niiraana waaw wax naa ko sëñ am barki démb mhm. naa ko sëñ am mhm. soo nee àjjana rek ñu ni ñu yéen ngi yombal àjjana. moom moo moo ñun nu ñuy yombale àjjana Baye Ablaye ñun xamuñ foo àjjana ne. Ah. bu dul woon sëñ Touba du Rasulullaay mi wallaay xam ngeen ni ñun mënuñoo defal yàlla lu ñu yóbbu àjjana. ñun dañoo mën a defal yàlla lu ñu yóbbu àjjana. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. moo ni ku yàlla atte ci ak maandoom feneen fa nga jëm. dëgg la ñun ñii ku ñu yàlla ate woon ci ak maandoom feneen fa nga jëm waaye bëgg noo yërëm a tax mu boole noog Ahmadou Bamba. Ahmadou. yàllaa ni Seex Ahmadou Bamba Ahmadou. mu ah. wuyu ko. mu ne ko ku warta dem àjjana maay fexe ba du la jublu ahmadu mu ne li xayri intaha bil muntaxa kulla zi shaqa wa yanxoo bihi naxwi saidun wa zootuqa sëñ tubaa nga ni mu ne daw na képp ku war a dem safaan ba fu mu jëm sëñ tubaa mu ne xaw ma ko waaye du ci man haraba kullu man lahu shaqaawa ilaa siwaaya waliya tilaawa waaye ñun nag jublu nañ ko bu nu neexee kon mën nañoo dalal xel dëgg la moo tax murit ñi murit dafa war a mm. dalal xelam ci diggam ak boromam mm-hmm. te jaamu yàlla nag ngir jëmmi sëñ Tuubaa mm. bokk ci ñu koy jox ndam bu ëllëgee dëgg la jaamu yàlla waaw murit yi mm. danoo war a jaamu yàlla ba bu ëllëgee yàlla seedeel leen ni samay jaam ngeen woon yéen ndax ki leen ci boole ñoom jaamu yàllaa ko jox lu mu am. dafa wax ni. bu ñu demee ba ca yàlla. bis yeegu weer yi dinañ taxaw ni yàlla kii sa jaam la moom xaw ma keneen. kii moom sa jaam waaw kii moom sa jaam la. suhuur yi weer yi ma fekk ci kaw suuf si. Eh. soixante quinze ans yi weer yi. weer yi ci am boo calculer soixante quinze ans chaque chaque un an douze mois nee na boo leen boolee ñoom ñëpp dinañ taxaw. wa ayaam yi soixante quinze ans ñaata jour la. nee na dinañ taxaw ñoom bu ma nee tëll pis penc ñu ne yàlla kii sab jaama moom ndax mësta def lu jaamu la suhuuri wa ayaami qadat lii sawahilun bi kaw ni ya abdallahi eh. ki nga yow ma isin tuhaddisu axbaaraha la yàlla wax mm-hmm. bisa ngi ñëw bopp barab yëpp dinañu seede li ñu def ci seen kaw mm-hmm. mu neex ki ko def ak mu naqari ki ko def gis nga bu ñu demee ba yow ma isin tuhaddisu axbaaraha bu océan Atlantique di wax géej gi buy wax kenn rek la naan moo julli woon ci man tisbaar ci sama kaw tisbaar ak takkusaan bàyyi Cheikh Saliou Mbacké lay doon dëgg la waaw waaw yow may li tu xaddisu axbaaraha ah. géej gi bu demee bay wax laa wax géej gi bu demee ba war a wax mhm. ba war a nett li ñu def ci kawam kenn rek la naan moo booleen tisbaar ak takkusaan julli ko ci sama kaw ci benn bisu bisu gaawu bàyyi Cheikh Saliou Mbacké bàyyi Alaaji Fallu Mbacké lay doon bàyyi Cheikh Mouhamadou Mourtada mii tasaare mbir mi ci àdduna dëgg la góor yàlla dëgg la lay day laa Mourtada ba julli ca kaw dëgg la waaw ki yee julli ci géej gi doom jaa julli ca jaww ja ca kaw Mouhamadou Mourtada mm. waaw Salim waaw am na leneen lu mu def Cheikh Mourtada mm-hmm. dañuy jógee Arlem jëm New Jersey nu mm-hmm. dugg ci limousine bu gudd bi mm-hmm. xam nga New Jersey boo cay dem euh, euh, tëli bi dafa nekk ci biir ndox mi ñu mëtt ko nu jaaree limousine bi ci biir ndox mi nu dugg ci biir ndox mi ndox ne ca kaw ndox nekk suuf ndox mi wër ko ba nu génn mburgal mi dem kër Mouhamed Mballo ji waaw ñuy ndékki nag mu toog man ko ah, sëriñ Touba di bég na tey moom ci kaw ci kaw ndox mi la julli yow da ngaa dugg ci ndox mi ba nu génn mbàkke te tooyoo sa bàyyi tax ndekete wax naa lu ba danoo yegsi rek mu laaj walis wa teg ko ci wetam ni nañ ma wool peex ceeb yi nag dana bari dana ma téeméeri ceeb yi waaye bi muy ubbi rek lay def na ci téye fu mu ko roof mu ubbi li ceeb yi bari bari ci musuwaar bi la ko fas borom Tuubaa la mu ni nii ni musuwaar ba cuqat mu nga ci ceeb ni cas benn roof ni till roof ni till jox ma takk ni ma waaw euh, ku wax dëgg fayu parce que borom Tuubaa ab takk wax dëgg fayu Cheikh Mourtala bu la may bu la joxe digg xam nga lu tax lu tax xam lu tax hmm. lu tax bu nee nikk caabi hmm. fu mu ko dugal mu dugg ah. fu mu poussé mu ubbi ah. mooy yàlla ubbil baayam màggatin yëpp yàllaa ko moom yàllaa nu waxoon wa in min shay'in illaa indana xadainuhu sëñ Tuubaa ni gees boromam ni ko lakkal xadainu faftax lii wa sit busari yàlla may ko mu aj loxo ba ni xadainu rabbi futihat li wa zahzahat li xayri ada dunya wa oxra wa barsaq faaw nga synthétiser ñu lii waaw <laughs> euh, jërëjëf soxna Yacine fi mu toll dafa kawe mhm. yaa say daal da ko ne loxoo sukkuur yi bilaa kufuur yi mhm. sëñ Touba nee na sant naa yàlla mi ma musal ci ma weddi ko daal ne moom yàlla moom moo ma defal su ma su ma sama njaay damay gañe maanaam suñ taxawee fële moom la doon wax léegi fi mu toll yowmal qiyaam daanaa ko wax naan leen naar ba ko ne yow ma yakunu naa su kal faraasi ahmadu bamba mbàkke taxtal xarsi mu ne yàlla loxoo sukóoriya bilaa kufraani yaa man xamaaniya anil xusraani su ma réglé rek damay gañe borom Tuubaa du perte sëñ Tuubaa léppam daa yàlla moo tax nun dañoo bëgg sëñ tubaa bëgg goo xam ni nit mun ta wax ci àddina li des ci àddina mm-hmm. nit mun ta wax mm-hmm. lu toll ni benn seconde nit ñëwoon ginnaaw sëñ tubaa nit munu ko ci àddina loo mën a wax nag ci àddina mën nga koo wax ndax li fekk sans borom a ngi exister mbirum sëñ Tuubaa di jëm ci kaw mm-hmm. tubaab bu bëggee yàq aw askan du ko yàkkamte da koy teg en long terme mhm. même bu dee sax du ko fekkee sax garaawut mais askan way ñëw nañ yàqu rek moo tax suñ kere créé loo xam ne tamit à long terme fii ba wal bufta biy jógee maanaam li mbiram day samp ñii nga gis ñii ñuy coow ñëpp di wax kenn ku ci mën a yëngal benn jën amut koo xam ne dañ su may bind su may bind aras ak kursi yu dañuy jaayu ñoom seen juróom-ñetti pieds yooyu ko xam kursi yu mooy gàngu naay gisant borom di mhm. biñ ko sampee dugg na juróom-ñaari suuf ku mënta yëngal loolu mënoo yëngal mbirum sëñ tubaa moo tax ma ne su may bind arasa kursi yu di di jaayu mhm. diggante sëñ tubaa ak yàlla jii mu dugg nag day thème d'actualité xam nga dama dégg sa yëpp laay wax ko bërki dem dañ sax yóbbu sax ci beneen yëf mhm. beneen mbir Cheikh mun Muntaxa mi su génnee dugg ci Rolls Rolls lay dugg ñu wër ko mu def loxo ba nii di tàllal nit ñi di ree te moom jógewul ci sëriñ bi direct sëriñ Basiiroo dox diggam ak sëriñ bi mm-hmm. waaye tey mooy borom Tuba bu namee million million ñëw bu ko nam bu ko million namee mooy ñëw waxtu wu ne bu ubbee mbaar mi fekk ñëpp toog ñëpp dañuy yor addiyey téeméeri million ñuy cinquante million xam nga lu ñuy xaar mu tifli leen foofu laa waxe mu tifli leen dong la ñuy xaar bu génnee loxo bi lay tàllal am ñoom duñ ko jox loxo dañ naan séen leen ko rek bu ko kenn jox loxo mu ne bismillah ne tif ñu joxe xaalis ba di jooy ku nekk naan tif bi man la dal loolu kenn mënu ko dindi ci askan wi ndax sëñ tubaab moo tax ne may na ma dama may na ma dalu lislaam saf leen ma jóor leen ma danaa ko jaam lu ne nag mu daj ko nag sama boroom xañ ko barke bi toogul mos ko dafa wax ne Cheikh Modou Sall Karim ak Thierno maa leen xañ barke bi loolu moo waral ñoom mosuñ ci lii nga xam ne nii mooy barki bii ñuy ñoom dañoo jàppoon ne sëriñ bi daf leen ne génn ci cadre doomu aadama sëñ bi nag yorul loo xam ne ci tariixa lay aju yorul loo xam ne itam ci ay daayira yu yàggul sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaye defaat naa ko moom li li nekkoon yitteem mooy allahu rabbi wa waliyi abada asamani min kulli man tamarada boo wax itam ne nit ñi seere leen ne benn sëriñ laa am muy yonent bi te nag daf leen a détaché ba mu xamee ne li mu yor li mu soxla yàlla rek a ko yor ci la sëñ Touba jël léppam nag daal di koy jeexal ci biir yàlla mu jeex tàkk. se soxna Sayda euh, sëñ sëñ sëñ Saaliw laal na ko léegi àddina seenu wër dafa bari foo xam l'islam du fa référence chaque jour nga gis ñu bind téere xam nga lu ñu tudd yonente bi Maomé Muhammad sax mënuñ ko ko tudd mu sell mm-hmm. Maomé lañ koy chaque jour nga dégg ñu ne caricature caricature nañ ko dëgg la dëkk yi nga xam ne l'islam am na fa sens interdit yépp sëñ Touba réussir na yonent bi dugg fa te bal takkul coow jibul amul fenn fu ci àddina wëral ba mu daj du ci Afrique Afrique am na dëkk yoo xam ne ni ba tey weesoo guñ taxaw di tuur ndox bariwul dëkk yu ma ci demul am na ci ñoo xam ne soo demee civilisation bi ñu yore da nga naan ñii ndax àddina xam nañ fi àddina toll sëñ Touba moom réussir na fenn fu ci nekk yonent bi am fa kër ñu am fa jàkka di jaamu yàlla di tudd wuuteeg nag wuuteeg nag li sëñ li doon wax. keroog ba korite ga jotee mu génn di wut ku mu àndal. Mm, xool ba bëtam sës. gisul kenn nee gisul kenn koo xam ne ni bañ ko séenee sax muy woote ngir ñu sunnaal korite nee na dañ ko doon ree. nee ay nit ñu tëñu la gis. ñu koy ree ngir moom julli xamuñu ko fu fépp foo xam ne ni jaamu fa yàlla dañ ko interdit sëñ Tuubaa taxaw na fa tudd fa yàlla. Ah. te ba mu koy tudd yoo yaa ngi koy sàmm ak fel yi. muy bind te juumul. sëñ bi su ñëwoon ñu xool lim bind sax ñu ne ak sàdd damm nañ ci sax ñu pardonné ko parce que xel mu dalay bind woykat yi dàqaway boo leen gisee ci wetu géej la ñuy dëkk am fu dal ngir mën a am xel mu tey ngir mën a bind texte yoo xam te benn livre lay doon nga bind sept tonnes cinq cent yoo xam nit mënu cee yokk virgule nit mu mënu cee wàññi virgule kii ku ko tàqaleeg boroomam dangaa bëgg indi shirk te ñii ma gis nii ñu jàng dañoo jàng génn réew mi waaye dégguñu sax arab am na ñoo xam ne leen tegaloon bax baxaa mënuñu ko firi mm-hmm. mbirum sëñ bi du ñëpp koy firi de. gaa yi arab yi kese lañ dégg nii de. waaye moom diggante ba muy waxee gis nga demal ci biir bax baxaa da ngay gis ay ay kàddu yoo xam ne nii maanaam ay maata jax-jaxaa ah bajaxaa am na ay xeet yoo xam ne boo ko doon xool ci dictionnaire arabe amu ci. Mm-hmm. sëriñ bee ko indi moo tax ñoom mënuñoo yegg ak sëriñ bi foofa te gis nga sëñ tubaab bu ñëwoon defar borom xam-xam yi rek dañ naan daa fekk ñi man alxuraan mu orienté waat leen bu ñëwoon defar buur yi dañ naan daa fekk ñi xamul dara. mu indi leen ci lislaam waaye dafa équilibré kajoor ak bawal siin saalum ak fuuta ak jolof ña ngay walwali jëm mbàkke jàppoo xëlëf-xëlëf kenn ku ci nekk dangaa bàyyi da ngay man alxuraan am xam-xam yow ci sëñ tubaa mu ne la ma désinstallé la installé waat la sëñ tubaa day sa borom xam-xam da ngay ñëw ne lii laa man mu tropicaliser la dangay dem Amérique jëm dafa matériel boo xam ne 110 la voltage bi ngeen ni ko Sénégal muy 221 soo ko yóbbul ci ak technicien du daw fii Sénégal mm-hmm. sëñ bi da lay da ngay ñëw man alxuraan di ko tari nu mu la neexee. Mhm. mu ne la ma tas la takkaat la. loolu sëñ Tuubaa rek ko mënoon jeex na ci àddina. Mhm. nga ne ko ah mu ne la ma fàtte loola loo ma sëñ ma sëñ Ahmadou Faa Jama Ñang neena topp naa koy bis mënatumaa wax benn baat mel ni ku musta jàng alxuraan waaye nee na da ko ne dégg ndey la neex na waaye fekke ko fexeel bay fekke lay xew fa ñuy décréter léegi kay lijjanti ba nga fekkee nag fa ñuy fa ñuy dégg kookaay kan moo tax fii jamono ju toll diggante bi muy waxtaanee ndax bu jógee ci diggam ak boroomam ba muy dem ci boromam daa amul yoon wu mu jaar. yoon woo mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam. te sans borom daa xam ne doomu aadama yi mu bind dañoo dëgër bopp suñ defoon li yàlla digle du fi indi cent vingt quatre mille prophètes kon kenn rek lay indi mu regle situation yi xam na ne li mu leen di wax duñ ko def muy indi di indi ba ñu jeex te yonent dootul wàcc mu ne xaaral ma indi xaadima rasul dana régler problème bi te geer du am bàyyi faal yii nga gis ñu yóbbu ndogu sax takkusaan kat lañ koy defal. maam Cheikh Ibrahima Fall julliwul wóorul te mooy baabul muridina nag waaye sax ngoon danañ dajale li nu am yanu ko duñ ko mos jëm ci seex mun muntaxaa jébbale ko dëppaat dem seeni kër ka def loola te lijjanti ba loola am nga xam ne mën ngaa boole sëñ Mbàkke Buso mi nga xam ne ni ta faatu waxtu xelam sax da bañ ne ko ba de ko sax bul bind ndax boo bindee ñu xam ma mhm. te bëgguma ñu xam ma dafa am genn tabaski ci njaaree mu woolu sëñ Mbàkke mu ñëw mu ne ko dafa mel ni ñëpp bëgg nañ Mbàkke euh, Buso mu ne ko Mbàkke ñam yi kay ñu ngi koy wetti sax ci ci mbedd yi mu ne ko ndeysaan cey ki ko liggéey cey ki liggéey loolu daane ko xanaa wuute nag daaw de mu ne ko Mbàkke barke bi fees na dell mu di ko tooj ne ko sama mbokki bu suba yi nu ñu def ak ñoom mbaa xar mi mbëkku leen nee na ñu jékki-jékki rek ne sëñ Mbàkke waa kër ga boo yéexee ñëpp sedd ndax lim doon kaf rek mbaa xar mi mbëkku leen sëñ Mbàkke ne ko gaawal dootoo doomi nijaay kenn dootoo doomi bàjjani kenn ndax loo wax sama borom def ko léegi foofu la sëñ Tuubaa toll ak sama borom moo tax soo jigee ci wàllu googu di nga ñëwaat ci diggam ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax coupe du monde bëgg yonente bu ñu ko doon teg sëñ naan cas dem ndax ku bëgg yonente bi ba nga yegg ci loo dégg sax ñu tudd ci turu yonente bi sax nga ne kooku nañ ko wormaal ndax baat bi muy wax dem ba li nga ko bind nga di ko fàtte naan ana ko wax wax ji ci moom ndax lu mu wax salli ala babil huda boo bëggee yonent bi bëgg koo xam dëgg demal ci sëñ Tuubaa nga laaj ko mu indil la wa huwa akmalul wara xalxan waxul xan zahara ay question la sëñ Tuubaa posé teg mm-hmm. boo bëggee laaj yonent bi kan la fan te kat kaay ma wax la su koy tagg di ko tagg di ko tagg di ko tagg ba war a yegg fu mu ko war a tuddee foo xam ne nii kat da koy leer su ko tuddee dana yegg biir néegam day taxaw da koy warmaal da koy warmaal man maa dem Madinatul Munawwara keroog ba ma ñëw ci barrière ool ba jàppandu dama ne su ma ñëwul fekk mu mel nii dama naan sëñ tubaa daa baax rek waaye kii rek a mën a doon sëriñam ku dul yonent bi mënoo doon sëriñu sëñ tubaa foo dégg mu jaar fa lu baax a fa ne mu doon ko ñongal waaye sëñ tubaa benn sëriñ la am hmm. wasilati li maaliki wa junnati muhammadun xayrul baraaya jannati faw faw mu ñëw faw soxna Yacine da nga ci ñëwaat ne bu soobee yàlla papa waaw Yacine naam euh, sëriñ Amidoun <laughs> macha allah daaneel nanu mhm. li mu indi. ndax tey mais sëñ Ablaye bu ñu ne sunna nañu andi sëñ Abdou Khadir teg. waaw su dëgg la xam nga xam nga xam nga Serigne Lamine Diop ancien ministre lu mu waxoon. Mm-hmm. booy dox ci àll ba penku réer la. Mm. boo séenee sëñ Abdou Khadir kabaral mooy penku. Elimani Elimani. Eh? benn bis toog nañ ci Baxdaad ma ñëw toog ci tànk yi ma xool ko man ko yéen ju ko yi kenn fekku la ci. yow dong yaa ko am mënuma yóbbu doon man ko lam ñu musta juum xol boo amul kiñaan bis biir bu musta lekk riba cër yu musta faat waxtu mu de addina def ni baaraam yi ni ma Ablaay yent yi rek yent yi nga wax rek doy na tagg keroog la jël loxoom ni tagg saa bopp ni ma naa la defee matu loo dégg xam ko bul bindati bul liir teggi loxo bi. waaw kay. moo tax ku ñu gumba gumba bu la nee nañ sànnante bu nangu dafa jóge ci xeer boo nangoo mu toj sa bopp. <laughs> jàmbaar amul. déedéet ku ñu dimbali rek am. rek Pape Amidou. Samb ñu ngi lay gërëm. Mhm. dellu ah. Moustapha Alaaji Bara nee na mi ngi leen di siyaare dëgg la ma dinaa neexal waa plateau bi yëpp dëgg la am na ku yónnee léegi addi sama téléphone <laughs> ni ma euh, Serigne Ba mu sëñ ma di ma si la dëggal loolu rek ndeysaan Cheikh ànd ak sëñ solo ànd sëñ Tuba rek moom <laughs> euh, Serigne soxna maam Fatim soxna Xadi Mbakke mu soxna maam Fatim nay de mu sëñ Cheikh Fatma. Mm. waaw ñu ngi nuyu waa plateau bi di leen ziar ak soxna Xadi Mbakke Mbakke ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax ak Cheikh Samba Xees Cheikhub Cheikh Tili Muxtaar sëñ euh, Cheikh Cheikh Seck Cheikh Seck woonoon démb moom soxna Mbène Sylla ndeysaan moom soxna Marème Kunta walaay ma maa ngi moom dañoo am bis nuy nuy reer sëñ bi sëñ Abdou Xaadir tegal nu cere mu nuy lekk bu yar mu ñëw rek sotti ci mi moo tax bu ma rombee Cheikh mënu ma cere jaa. yaay papa yi mosi na du. sëñ Saar yaa ngi fa am solo mooy. diggante sëriñ bi ak borom bi tabaaraka wa taala. Mm. ko kenn ni mu jëlee mm. léppam jox ko. Mm-hmm. Mm. waaye tamit mu jaar ci ni ko sañ am waxee. Mm-hmm. Mm-hmm. Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba am lu kenn mënta am. sëñ bi dafa def déclaration bu solo ne ma bëggoon nga ñëwal ma ci. muy jaawastu naasi. wa maa fii aydi naasi. ila rabbi naasi. falamaa wasultu ila rabbi naasi. aataani naf u naas wa kafaani dura naas romb naa nit ñi romb lu ci loxo nit ñi jëm ci yàlla nit ñi ba ma àggee ci yàlla nit jox na ma seeni njariñ daqal ma seeni lor liggéeyal sa salaam ba ba kenn amul moom sëñ Tuubaa fay gi ni mu woo jaar nag ci wéetal sallallahu alayhi wa sallam waaw jërëjëf ngeen di siyaare. waaw nee na nee na ngeen siyaare waa Màkka gépp parce que ñoom it ñu ngi topp ñu ngi topp kii bi. nee na kontaan na lool ne ko de na ma noon ko lool ñu ngi bëgg a wari. te gisuñu ko. sëriñ Sida Bougane <laughs> kon kon gisuñu ko déglu. ne ko gisuñu ko de. nu lu ko yóbbanteel ma ko nee na nee na gisaguñ leen. te moom soxna Kalla. ay sëñ Saliou waaw. jaawaz bi naas ila rabbin nas moom rek ko mos a wax. romb naa fi nit ñi ak li ci seeni loxo. Hmm. soxlawul lu ne ci loxob nit. billaahi sëñ Touba. Hmm. soxlawuloon lu ne ci loxob nit. moo tax bañ ko waxee ca Mbàkke Kajoor ni ko kaay ñu nuyoo la ak Lat Joor nga féete ko fii mu féete la fii def ni leen. waxultu xasbiya rabbi waktafaytu bihi walastu radiya gayra al ilmi wa diini walastu arju wala axsa siwa maliki li annahu jalla yunini wa yunjini ñu ne ko wéroo mook ñoom mook ñoom mook ñoom mook ñoom ba ci déwén sama wote yoonu murit mook ñoom mook ñoom mook ñoom ba ndiir su gàtt at mu jàll Mbàkke Bawal ndiir su gàtt mu jàll Daru Salaam ndiir su gàtt mooy ko sëñ gaawaan wàcc Touba def sept ans sept yi jeex ñu wari ba mu am fukki fan ak ñett mu départ Ama Bay Sassine 1312 lésirs. Eh, ñu teg si ñetti ñetti weer. Jay Sassine dugg. Mbakke bari Jolof mu départ. def juróom-ñaari at ak juróom-ñaari weer ak dara. ca juróom-ñaari at ya la waxe katabtu fil bahri ani la amuddu yadi ila nasara abidil ma i wattiini sama loolu musuma koo tàllal ñi nga xam ne ndox ak ban la ñuy jàmm tubaab yi li moonin karimin naafi an samadin laa li darahimi taati min sulaytini wa maa fi aydina sango sëñ xaari wala maa wasaltu ila rabbi naas laay ñëw sama yeggee foofa ataaniya nafu naasi lii jëriñ nit ñëpp yàlla jox na ma ko waaye wa kafaaniya duru naas adduna bépp sunu àndandoo woon ñoom ñëpp dajaloo def coalition bëgg lor sëñ Tuubaa lu tor ni kers du mën a am ndax wa kafaaniya duru naas gëy yow rek sëñ am daa wax lu am solo. sëñ am daa wax lu am solo. dafa wax xeetu defareem yi ni équilibré ci borom xam-xam yi ak gor ñeeg jaam ñeeg ñëpp sëñ Moussa Ka résumé ko ci benn way dani ko àll ak kër ak jaam ak gor ak ceddoog sëriñ buur ak i dag bokk ak i jàmbur ñëpp a jag yaaraama daam ci xarnu bi. ndeysaan. dal xa madal xaar

خدان الحق في سبيل بعق مبين لا يحني من سبيل جاء الحق عقل العقل في سبيل بعق مبين لا به نرجو من الله رحمة وننجو به دنيا وأخرى من الكرب نرجو من الله رحمة وننجو به دنيا وأخرى رجونا من المولى بغير مطلب وفزنا به كل لدف وفي جلبه مطلب وقصنا به في كل وفي جل لقد سار كنسا هي عيسة لنا يقنا به المولى فز كل زيد به كلا هذا كل ذي ندب إذا ما تلونا الآن فزنا بما اختفى على خيرنا من شر الجانب الوباء كفرنا بما اختفى وعلى خيرنا من سر رجال من خارنا بالأحداث وخادنا إلى الأكرب الجلبون والخرب أكرم وقادنا إلا الأكرم الوابق المهد والغرب تفارقنا الأحداث وساك والبالا بواؤنا الخير وبهدلنا فالجد بيه الأحداء وسطوى البلاد وأمن الخاص بعد النتفل سفرنا بهم ممن هدانا تلاخيا بجاه الذي أمدى وقد قدت دهبه ممن من لاقيا بجاه الذي أمداه قد alayhi salaatullah jalla jalaaluhu bi ashaabihi anda li afdalil hisbi salaatullah لالو بأصحابه عن آله عبد للإسلام عليه سلام الله ما دام مصطفى وما لينا المولى بأصحاب عليه سلام الله سلام الله ما دام مصطفى مصطفى وما لينا ajaba lay ko mel nii ko am léeg moom na leen wóor ni yaa ko tooñ waaw waaw yaa ko tooñ ya ko am lekk moom na leen wóor ni yaa ko tooñ ko am lekk moom am lekk moom yaa ko tooñ ku mel ni yaa ko am lekk moom na leen wóor ni yaa ko tooñ ko am lekk moom yaa ko tooñ ma du mel ni yaa am leeg moom ne leen wóor ni yaa ko tooñ am leeg moom Mbàkke du tooñ nit boo tooñee bu jéggal la tinin la ko ko tuddu nit ñi tabooto ñeen Cheikh Ahmadou Bamba tuddu nit tabooto ñeen bu jéggal la timil ko kat kat tuddu nit ñi tabooto ñeen magi Cheikh Massamba tuddu nit tabooto ñeen bu jéggal la timil ko kat kat tuddu nit ñi tabooto ñeen magi Cheikh ma Samba du tooñ ñi taboo tooñi ku jéggal la ci lu la ko kat kat kat dañu ñi taboo tooñi bala ay sabure du tooñ ñi taboo tooñi ku jéggal la ci lu la ko kat kat kat dañu ñi taboo tooñi Mbakke amul lu jàmbu góor ak ko mag ak ndaw ci aw melo Mbakke xaalis wala ila daa bu di jox ña ila dukuy ne gënde këleem gi toloo laaj lu rëy yi ngay pufa bu lool la joxol waa adduna jóg leen taxaw ci kaw màggal borom Touba waa adduna jóg leen taxaw ci kaw màggal borom Touba jar na ko melaw Bamba waxaar baax ya jaaxal na gaay biir way dile taxawal la fekk naat ya way baax ya yëpp buur anak moom murid yi ni leen wóor ne bambay waati ku mu sopp soppi ko soppi ko soppi ko ni leen wóor ne bambay waati ku mu sopp soppi ko wóor ci bambay waati sopp ko jilal saahira se gaaya bi daa war ci naaru góor luy naaw Mbakke ñu naa bu jël waa Mbakke def leen ni di lingeer mu far ko ti Mbakke murid saxaar gaa ngay dem Tuuba daw tilim ba teen gi ma ngay dem tegi ko Kajoor ba wal Siin Saalum ma nga Fuuta ak Jolof ña ngay wal wali jëmbat waaye te ñoo yay ni Bamba aaye bur Yàlla moo ko def be ganaawan Bamba ne leen ko sutuubul ba dee def naa rija anam ya maat ko sutuubul ba dee def naa rija gaañi ko noonu bamba sutuubul ba dee def naa rija anam ya maat ko sutuubul ba dee def naa rija gaañi ko noonu bamba sutuubul ba dee def naa rija anam ya maat ko sutuubul ba dee waaye faral noon bi yow Muusaa gire gumba ràññeewul lum leer ak lëndëm Mbakke bu gumbo raw bërëm gët yu feetagul لا تحمى أنفا ولا يبني فلا ومات كوك غير تمبا يرنكو Mbakke jullil nak ci yoneen gan ji kuy doomi Aasimi إبراهيم بنتي جنة على آل والأصحاب يا رم يا وخنكو لا يا صابي يا رم وخنكو tubaarkalla doole ci kanam incha allah bég nañu loolu sax sa xarit ma jëmb jëng nee na mi ngi jooy rek ma nga kër Mballo. Bassirou Fall ca Espagne. wallaay wallaay El Hadj moom itam mi ngi lay nuyu. Euh, Yacine. naam papa. tey xol yi sedd euh, parce que Xaadim Gueye mii. Hmm. njàngam mi dafa dugg ci xol. Euh, tey ñu bari kilifa yu bari ñu toog seen saal. Mm-hmm. di jooy. waaw Cheikh. Xaadim. dëgg la Cheikh Moussa Ndiassane ñëpp ngay. concentré ñu ngi nga ni génn na. Uh-huh. waaw tubaarkalla. Uh-huh. Euh, sëñ Ba Moussa Taalib sëñ Madiba Sylla. Uh-huh. nee na ñu ngi ànd ak yow. waaye tey nag da nga noo indil Serigne Cheikh. ngay defaat ma. loolu eh! la ko jox. sànn junj nga ko Habib. sëñ Saali wax na ci bis yi xam ni. Hmm. ak weer li leen Sëriñ Tuubaa defal amuñu ko fenn. déedéet déedéet. Cheikh Moussa day tukki ñëw ci Serigne Cheikh ñu waxtaan ba pare munu ko dama doon dama doon génn sax waaye dañ mel ne àllarba ji sëñ Cheikh ni ko bul ko defati. Hmm. bis bu la neex tukkil mis hmm. bu ne sa bàyyi ngi lu sa bàyyi liggéey na lool ci bis ba bis baa ngay wër lu bokk ci moom ba bëgg koo fay. moo tax Cheikh Mourtala tukkeem amalu ko ab waaye nag amiin li baax di baax baax dem bàyyi ku baax moo gën Cheikh Mourtala dem na waaye bàyyi na fi ku baax gis nga sëñ Mamoor wallaay bu fekkee dëgganu daab ni du ko wax lu fi Cheikh Mourtala bawoon yokku na ko te boole wu ciy wax boo demee Amérique kër sëñ Bamba ya fa ne woon kër sëñ Bamba nga Harlem kër Bamba nga Memphis kër Bamba nga ba kër sëñ kër sëñ Bamba nga Chicago kër sëñ Bamba nga Atlanta kër sëñ Bamba nga Memphis sëñ Mamoor nga dem nag Italie ah Bamba nga Rimini. ak fan. kër sëñ Bamba nga Këliyaan. ak fan kër sëñ Bamba nga Singoñi. ak fan kër sëñ Bamba nga Brescia. ak fan kër sëñ yëpp sëñ Mor yokk na ko. bilaay maam Mor daañu ko ñaanal. wala dara ki wax. kon noppi la. te am jëf. dëgg la te ku dem ci université bee mu tabax ca ndaam da nga xam ni li ko Cheikh Mourtala battaleel maam Mor fayewu. déedéet. dégg nañu bu baax Amidou. ala jablaay. waaw dugg ma la démb dama ne ko. Mhm. Mhm. keroog bi ñuy joxe diplôme promotion yi dama ne ko Mbàkke li nga def ci ciment ak fer def ko ci njàng mi boo ko defoon ci suuf da nga tabax ay dëkk. dëgg la waaye nag maama moo ne woon inni ujaahid bil ulum wa bi tuqaa abdan xadiman wal mu ay mu sahidu te fa mu def université ba fa la dëgg la dëgg la foofu université ba moo waral adduna sëñ maamam sëñ Amidou macha euh, euh, ngi sant bu baax ci plateau bi ndeysaan waaye xam nga mbokki taalibe yi da cee am ñoo xam ne bu ñuy seetaan dañuy àndandoo ak yow jataay bi yaa sayda dëgg la di ñëw di yónnee seen i addiya dëgg la ñenn ñëw di fekk si plateau yii ngeen di gis. macha allah ñu koy distribuer soxna Yacine. macha allah suñu mel mbokkum taalibe mm-hmm. moo xam ne dafa ubbi benn restaurant ca Touba. Mm-hmm. ci wetu kër Serigne Touba gi. Mm-hmm. muy kër Cheikh Abdoul Akim muy sëñ Kamal Niang moom sëñ Abdoul Akim. la sax sëñ Kamal Niang. moom Cheikh Abdoul Akim bu soxna Bali. moo defar lii. wax ne da koy indi ci biir plateau bi. yemu ci yemu ci yemu ci. lii ma ah. sol moo ko ñëw joxe ñun ñaar ñii lii nu sol. Ah. moo ko jox moo ko ñëw joxe ko yónnee ci bunt bi. sëñ Kamal ñang moom. te jàpp naa ne man moo moo joxe lii. moo joxe lii joxe lii. macha allah sëñ Kamal mii de. bii ma sol nii mm-hmm. mooy sama juróom-ñaareelu mbubb. ci weeru koor ci weeru koor Xaadim dina la ci boole ah, lii. bokk nga ci bokk nga xam nga xam nga li ci neex sëñ Xaadim <laughs> at mi yëpp Mm-hmm. bu la woowee téléphone. Mm-hmm. danaan la jaar fa sa mbubb mi noppi na. ndeysaan. sëñ Saliou biig la jot bosam man léegi laa jot sama bos. te bi uh-huh. mooy sama septième mbubb man. macha allah mu ne du ci yem. dafa am soxnaam soo xam ne nii moom la ñuy wax soxna jaare jus moom moo defar jus moo defar jus yi jus yi neex kay la allah beneen bi ci dolliku mooy mbub mu ngeen gis Cheikh Mouhamadoul Mountakha sol ko hmm. ñu def ko ci nataal ba mu rafet hmm. sañ Kamaan lay woo mooy ñëw jël mesure am dem ñawal ko kooku waxuma sax ñu defal mhm. waaye Cheikh Mamadou Muntaxa rek war naa tax ñu jàpp barki dem da koy mhm. gërëm ba yàgg mu ne ko mënatuma laa gërëm ndax jëf ji ni muy yegsee dafa tegaloo li ma lay def mooy dama lay bàyyee sëñ Touba waaw li cëpp solo na waaw si ñuy defaree Touba waaw Poroxaan ak ndoxum aynu mhm. bi sëñ Ahmadou Badi yu di defar te aynuy faj mun i dañoo war di jënd aynu dañoo war di jënd wallaay di ko naan xale bi ñuy wax Murtala euh, Mbaaj te mu ubbi diwlin gi ca Touba diwlin sooda mat naa siyaare. dëgg la diwlin bi ñu defaree Touba. bokkut ak beneen. dëgg la dëgg la. moo tax doomu Mourtala Mbaj jooju le Sidi Mbaj ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal yàlla yii nag ñu am léegi Touba. na ko taalibe yi jënd. dëgg la dëgg la taalibe yi bu ñu bëggee faju nañu jënd ndoxum aynu. waaye Ablaye waa kër sëñ Basirum sëñ Modou Moussa Dieng. waa kër sëñ Basirum sëñ Modou Moussa Dieng. Ah, ah, ñoom it lii nga wax. mais sëñ Abdou Karim Binta sëñ Karim ah. ñoom it ci waa Touba la. mais mais sëñ kon kon nañu delloo Touba suñu yëf rek. day defar di xool. waaw sëñ Abdou Karim day defar dawlin day defar dawlin bi. waaw defar bineegar. Mhm. defar mayonnaise. defar saabu ak ndox mi Touba dootuñu jënd lenn <laughs> waaye xam nga ni xaalim kebe bu njug a kebe nag indi na fa loolu ku bëgg a dugg te biir génn waaw waaw léegi du léegi la la sa ñëpp du borom dër bi daa def léegi moom Tuubaa dëgg la napp ci ndox mi génn dëgg la bay sàkk ci supémési boole koog lépp dara génnul tool mhm. léegi la sa ñëpp du laahi borom jën ak yor ndox bëggoon Tuubaa léegi maa mat Tuubaa ba muy ñàkk ndox tey metti am Ablaay daa am ku ko nuyu ci njaareem waaw nga ni moom dëkk ba rek la bëgg mhm. boo fa jógee day wax ak yow mhm. kooka yàlla dimbaliwu ko mu xam waxin nu ñuy wax ak sëñ Touba. mu ne kon na nga def ak sama dëkk ba kontaan ndax li kooku jóge tubaa eh. mu ni sëñ bi maa nga fay ñàkk ndox di metti di tàng wax wax yu bari rek. Eh. sëñ mag bi ni ko léegi mu mel ni daal. bilaay romb na ndar. Ah. mu ni ko mu ni ko loolu day mbàkk xanaa ku gàtt fan doo ko fekk sëñ bi ni ko ku gàtt fan du fekkee dara. du fekkee dara booba la booba la faatu. dëgg la waaye la mu waxoon ñëw na de. ñu ngi koy gërëm bu baax. waaw sëñ Kamaan. yére bi ma sol léegi la ma kamal ku baax bi ma ko ëndee yaatu ñu ko sol ku ko soxla itam da ngay dem ci moom M3 couture mi ngi ci Sicap Rue 10 ginnaaw cosaan cosaan ñoo dend waaw numéro téléphone am di 33 825 65 64 ak 77 985 85 60 sëñ Kamal moom sëñ Abdoulaye xam <coughs> soxna Yacine li tax ñu di ko tudd waaw dañu bëgg murid comme li sëñ Abdoulaye wax ñuy mm-hmm. solidarité waaw bu nit xoolee sëñ Abdoulaye Mbaye Peex solal ko mbubb su joxee numéro am wala mu ne wala mu nuyu ko dañuy bëgg bokk yi di solidarité. Mhm. di ko jàppale ci li muy def. ndax euh, di seetaan nit mu neex la nga ne neel diw jox naa ko mbubb wala defar ay teraanga bi ma ñëwee dafa ne ma du ma ko indi sama doom du ko indi. ndax bëgguma cee feeñ. waaye nag nit bu lay defal teraanga da nga koy wax dëgg la nit ñi koy déglu mën cee te daf koo dëkkee ak ñun sañ Kamal mhm. yàlla na boroom borom gën koo sàmm sëñ Sidi Ñang bu Touba mhm. euh, moom sëñ dëkkaw bal la léegi la may wane ma plateau bi dama leen amal nii léegi léegi lañ ko fi téléphone sëñ dëkkaw bal la door a woote ci plateau ñu koy ziyaare bu baax sëñ Sidi Ñang moom sëñ dëkkaw bal la moom sëñ dëkkaw bal la mi nga xam ni mook sëñ Modou Awa Bal la ñoo bokk soxna Awa Bal ak sëñ Cheikh Awa Bal la ak sëñ Cheikh Awa Bal la ba pare sëñ Madou Faye damay maamam. waaw ñaari yoon la bokk waaye sëñ Sidi Ñang jëmm ji dafa murite. tamatib tab. wér na lu fanaan ci moom daa guddee yegsi. dëgg la ak sëñ maa ngi loo ci waaj doo ko def. ak xaru. waaw <laughs> dëgg ñu ngi koy sant. Euh, sëñ Cheikh Mbacke. Mbacke soxna Momi Kebe. ah Assa Binta Arab Joray si mboj mu jigéen Diop. toog nii yónnee na ma fi addiya. macha allah. Euh, te xam nga moom ni ñu demee suñu diggante. dëgg la mii bala maa yegg si fii. yónnee na ma addiya. kon jeex man mi jox na ma jox na ma addiya. yàlla na ko sama borom sonn moom i kebe. amiin na yàlla yokk. ak sëñ mm. xarit boo xam ne mënuñu koo fàtte mukk. sëñ jaxasoo kenn ci wàllu addina. nga xam ne dañuy toog suñ xëyee duñ dem fenn man ak sëñ Saliou mi. Mm-hmm. sëñ Ibrahima Ndiaye. sëñ Ibrahima mm-hmm. Ndiaye. dafay la addi am ci man te moom li muy def rek doy na. Ah. ndeysaan cey murid yee baax moom moom moom suñu Ibrahima Ndiaye moom mënoon naa yem ca lam daa def rek. mais nag sëñ Amidou. d'accord soxna Momi Kébé. ah soxna Momi Kébé. dafa dondu alaaji bi ak a baax. Mhm. alaaji ñu ko baayam. Mhm. day murid sa mu jigéen Jóob dafa ñëw di nuyu sëñ Mbàkke fa sëñ Mbàkke Madina alaaji ñu ko. benn waaye daw rek ñu indil ko toogu bu bëgg ko toogu ba ne ko xaalis moo bon may nuyu sëñ Mbacke Madina nga di ma wutal fu ma toog. borom Tuubaa mm-hmm. Sëñ Njaay Alfaay ma yoroo. la ko ak jiin lañ ko gisee ak alaaji àll seen. Mm-hmm. joxe milliard. jooy teg ca. njugo alaaji jiili mbay alaaji àll seen gis nga alaaji njugo amuloon complexe. déedéet ci doon milliard ba pare day takk ndox baax. akub laabu. murite woon moom murit la. dëgg la murit saadixu. boo tuddee sëñ Bamba mu jooy. ay muritit la jur de. waaw ay muritit la jur lii moo lii moom i kebe natu moom i natu kebe di def. yàlla na ko yàlla jàppale. amiin amiin amiin xaadim doomu baayam ci xoolal li mu liggéey li mu li mu liggéey Touba. soxna moom i. Bousso yaayam Abbas Abbas Seexu Seexu sëriñ Bousso bi. càmmiñeel soxna Jaara yaay Cheikh Mat Bamba. dëgg la xaadim bur mi. macha allah gis nga nag bu doon sëñ Bamba Touba benn way de. Ah. Mm-hmm. te nag Serigne Touba li way wi toll la jëf ci la jëf ci toll xaalis ba war a tëli maamam ku ma jëng lañ ko jox mu taaloo Cheikh coroog Balla coroog ma tay bi ñu joxante Njaay Mbàkke maam Cheikh Antaak Afi Antaak Fati Antaak Mbàkke Anta ñoo toppante eh. ñu jox ko sa jiy maam Cheikh Masamba si jiy ñu jox ko soxna Fatou Issa maam Cheikh Thierno masay bàmba yu ni woon ndar mu ne borom ndar ndar nekk dafa da yàgg juddu woo da nga dee bàyyi fi ndar ñu jox ko nag soxna jaara mi waral coow ni maam ca maam Mor Jaara ak sëñ Bamba ëppi ndongo sutu sooroon gën jumaa ñetti mag dañu ci moom koo koy xaadim soxna maam Penda Aw soxna maam Penda mu baax mu waaw ca France la nekk nant mhm. dafay koo xam ne eh, sëñ Touba daf noo boole man ak moom ak Serigne Saliou dëgg la sunu xarit la mu di nu taxawu taxawaay yu fés tax te mhm. feeñalu ko sëñ Cheikh bu Diop ñu ngi koy ziyaare bu baax waaw ku baax Cheikh bu ku ñàkki ñaan la dégg la ma sëñ Faali bu Ndar jànkat di ma wax ne ma siyaaral ma sëñ xaadim Gueye ndax ñëw na ma fam ngont te loolu loo yàgg sa diggante ak ñoom la eh, sëñ Faale ñu ngi koy ziare sëñ Cheikh bu Diop ñu nuyul nu ko bu baax yaa sayda macha allah eh, commissaire Chicago moom it ngi leen di ziare soxna Yaasin bu baax a baax ak moom seen ci New York sëñ Mamour Abibou ah borom ah, pass fall moom sëñ Manumbe kooku mhm. ka baax eh, fi ma toog nii nii nii nii nii xam naa ne jokkowuñu man de mën naa ko lool <laughs> ak man. loolu laa ko nuyu. waaye sëñ bi comme yaa ngi seetaan sëñ bi namm na la. ak abaa ak sëñ bi laay namm daaw fa daaw faral nañu mu jox ma teraanga ju bëri. macha allah wallaay namm nañ ko kon <laughs> ñu gi ñu jotee xéwalu sëñ Kamal. ñu koy gërëm bu baax a baax borom Touba Couture. Mhm. ñoom soxna moom i kebe ñoom tam ñu ngi leen di ah, ziar bu baax a baax. aywa maman ñu ñëw ci xéwal waxtaan bi neex na lool Yacine waaye ñi nekk ci euh, Facebook live ak YouTube bi aussi ñoom tamit kontaan nañ lool lool ndax gis naa ni view yi day gën a yokk di dem que ça soit sur Facebook Live bi que ça soit sur YouTube bi euh, macha allah gis naa ni murit yaa ngi daanu leer bu baax a baax euh, moo tax dinaa continuer joxe ci xéewal yi mais ba tey mën nañu ubbi téléphone bi bu ko defee euh, panier ndogu Yassir mi ma daal koy joxe ci 88 ngeen bës 2 wala 88 628 leen diggante démb ak barki démb maye naa fi lu mat 5 panier ndogu 6 panier ndogu autant pour moi donc tey nag bu ma nar a joxe moo nar a sit moo nar a woon septième pañe ndogu bi euh, moo tax woote leen gaaw dès maintenant ma daal leen jox euh, seen pañe ndogu waaye nag balaa kenn di dugg euh, ma joxe ci Facebook live bi seen suukaru koor ku ci mel ni Fatoumata Lo Fatoumata nag sa numéro téléphone mi ngi nekk 78 952 15 ak lu ci topp cinq 000 francs si yow su ma jógee ci Fatoumata ma daal di Amina Touré Amina Touré tamit mille francs si yow sa numéro téléphone nag mu ngi nekk 78 074 72 ak li ci topp dinaa la ko yónnee bu ci kanamee léegi par Orange Money mu nekk transfert d'argent bi gën a gaaw te gën a wóor euh, su ma jógee ci moom may Wali géey Wali Guèye tamit 25000 euh, francs si yow yaa ngi message depuis Sokone sa numéro téléphone nag mu ngi nekk 77 099 12 ak li ci topp 25000 si yow. ma daal di koy jeexalee ak Modou Tine Modou Tine tamit 25000 euh, francs si yow sa numéro téléphone mu ngi nekk 77 578 48 ak li ci topp donc mu ngi noonu joxe naa 100000 euh, francs ci euh, Facebook live bi bu dee mën nañu ubbi téléphone bi rek au niveau de la régie 88 628 89 90 ngeen bës 2 wala 88 628 28 ko defee na ma jox leen seen pañu ndogu yi nga xamante ni macha allah Yassir moo ko joxe pour téléspectateur. indicateurs yi donc régie bu dee am na kenn ku fa nekk rek ngeen daal ñu koy jox bu dee kenn nekk fa nag xam naa peut ñu xaalaat ba ci kanam tuuti rek ñu daal di joxe waa ci suukaru koor yi. ñu daal di delluwaat ci suukaru koor yi incha allah maman jërëjëf. sëñ am papa euh, Cheikh Mbacke xanaa ñu luwaat ci waxtaan wi rek. Mm-hmm. ba tey rek Cheikhul Khadim rek ñu ñor. wallaay kese Murid mm-hmm. eh, eh, waaw Euh, Ndiaye Touba ca kanam mi ngi lay nuyu di la ziare. waaw ñu ngi leen ziare sëñ Cheikh Mbacke. xam nga yow tuwaar kàlla da ngaa mën a sañse. <laughs> maa ngi ziare sëñ Mouhamed Mbaye ca Mbacke. Suley Jaañ Suley Jaañ sunu waa ji. moom sëñ Abdou borom dër bi. Suley Jaañ moom Cheikh Abdoulahi borom dina joor ndox borom sàmm ci bëccëg la ma woo. wallaay. tubaar kàlla xolam sedd lool. wallahi moom itam moom itam woote na. ndeysaan mbubbam yi daa tegloo ci ñun. wallaay wallaay mbubbam yi ak li koy ñëw daa tegloo ci ñun. suñ Suley Jaañ wallaay keroog ñu tegee photo Sëriñ Tuubaa bi waaw di ko wecc ku président Macky Sall toog. ba muy bëgg a jóg mu def fukki photo juróom ma annoncé ko. président yi toog de. mu ni jënd naa ko. jënd naa ko wallaay wallaay wallaay. moo tax murid yi. wallaay sëñ Bamba rek buur seen bët. dëgg la dëgg la. dara. dëgg la. buur xool ñu kenn gisuñu kenn sëriñ bi rek lañu gis. dëgg la dëgg la. buñ la fa gisee nag bàyyi ñu seen lëfa. Mhm. lu ñu jox la. dëgg la foo jëm ñu ànd yow. dëgg la dëgg la. mun i sëñ Tuubaa rek leen la wallaay wallaay dëgg la sëñ Tuubaa rek leen ascenseur bi yóbbu jumaa ji sëriñ Suley Jaañ Suley Jaañ la wallaay lam bëtim Seexul Xadim alaj njoo kebe murid yooyu saa yoo duggee jumaa sax dem ci ñoom waaw waaw waaw dëgg la ah! dëgg la dëgg la dëgg la de xam nga xam nga xam nga damaa dem Poroxaan siyaare Cheikh mun taxaa gis nit ñi ni ñu koy jegee di ko gaañ man ma am sama yaram daw ma ne ñi mën nañ koo laal sax. ma génn rek am inspiration. ma woo ko téléphone. ne ko sëñ Souleye gis naa loo xam ne liggéeyal sañ Touba la. Mm. moom la ma ne ko xaw ma noo mën a créer lu protéger sëñ Mountakha ba kenn du oh. lekk si ci tànkam yi. mu ne ma foo nekk ma ne ko maa ngi poroxaan mu ne ma maa ngi yabal technicien bu jógee Touba dem xooli ko. Mm-hmm. ñu dem xool ko natt ko ba xool fi sëñ bi toog. mu defar ko ma woo sëñ aboo moom sëñ taxaa mm-hmm. ne ko sëñ Souleye Diagne defar na addi joo xam ne nii dañ koy teg ci kanamu photo yu sëriñ bi. Mm-hmm. ñu defar ko ñu teg ko sëñ bi gis ko rek dañ ne ah lii am na solo mu woo ma téléphone ne ma addee daamel sëñ bi yegg ma ne ko sëñ bi sëñ aboo yónnee na ma li ci sëñ bi wax mu ne ma kon nañ defar boo xam day mobile bu sëñ bi dem ñu démonté ko def ko ci oto bi mhm. daa ne ma ndax nay dem foo xam ne fa tey ba du fa ne oto bi du loolu sëñ su lay def na ko waaye soxna Yaasin ñu gërëm sëñ Bougane dañ doon tabax benn forage boo xam ne dañ ko doon def ci bàqiya ngir euh, fi ñuy yeesale fi ñuy sang néew yi biñ koy defar mu desul toll ci juróomi million yu teg cinq cent mille francs am nit ñu ma woo ne ma naa ko ko wax bi ma ko koy wax soriwu ci daf ne ma waaw waaw ok ok chef naa ko seer daal di coupé ndekete booba moom dem na fa ba xool te bi ma koy wax booba quatre heures jot. Mhm. vingt une heures la jógee Dakar dem Touba yóbbu ko. bi mu ko yóbboo am kilifa gu ma woo ne ma sa waa ji de santal na ko. ndax indi na li desoon ci liñ doon tabaxe forage bi ma ko woowee mu ne ma damaa bañoon ànd ak kenn muy am bruit moo waral ma dem ci guddi gi parce que lii day farata bëgguma waroon a wax ne maa ngi ci loolu tamit bu ko defee uh-huh. euh, nit ñi dañ ko war di wax parce que loolu day tax ñu xam ne mi ngi ci biir sëñ Saliou nag ñoo ngi jëm ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom la moom la sëñ Tuubaa tàgg xasid ak ma waax yi ba mu jeex te tudd ko da ko normal da ko naan huwa nangam anta nangam ba xes dégg jeex tuddul yonent bi day mépp moo tax bi mu demee ba ci salli wa sallim alal mukallim ñu ne ko xes dégg neex na waaye du fi dagge de mu daal di koy continuer xalal rasuli babil wasuli ñu ne déet na waaye ndax sëriñ bi ca nga yem mu ne déedéet yemuma ci de daal di ne nabiyun lahu sha'nun azimun mubayyanun huwa al mustafa wa huwa al muayyanu dafa xool yonent bi di ko tagg mbub moo xam ne da koy jot sëkk benn rek bu doyoon sëkk sëñ saaliw mu doy ci moom da ko ne bi gaa yëpp daje al isra wal mi'raj ñëpp a taxaw dugg sa ginnaaw julli sa ginnaaw la anta imaamu rusuli xat jaa annahum talaaxaw ko fil isra'i wal kullu xat salla ne ko nag sol nga mbubb moo xam ne kenn dootu ko sol ndax jikko yi nga amee labista siyaabal majdi wal fadli wal laa ndax wa fiika minal axlaaxi ma ajisal kulla ku ñemee sa mbër ñëwal exposé man ma indi yonent bi teg ci sallallahu alayhi wa sallam eh. Mustafa noo demee yonent bi mu ne moom laa bëgg lu ma mës a am yonent bi laa ko jox ba mu jeex dese lu ma ko dara moom laa jël daal di déclaré gaa yi neex ne yàlla sax màbb na mboolem yàlla yi ñu tegoon yépp daal di dug mu dëgmal na ki nga xam ne mooy rasulullaahi hadama maa banaahu kullullaahi man jaalal muxtaara abdallaahi sëñ Saaliw kooku diggam ak moom bu nuy wax sunna dan nuy sonal ndax nun ki sunna lañ juddoo lan nga ne jamono luñ lalaat ci sëñ Tuubaa defar na ko pare koo xam ne pour tontu looloo tax bu dee njàmbaar indil cerno bu dee tabee indi sëñ gaawaan bu dee fit ak gëm ak mën a topp indil Cheikh Ibra bu dee xam-xam ak sunna jëlil sëñ bu so ak sëñ Abdul Xaadir teg lépp luñ la laaj ci diine sañ Tubaa defar na ko pare ngir tontu loolu koo xam ne bu ko indee ci penc mi teg ko loola leer sëñ Tubaa mooy jëwru yonent bi alayhi salaatu wasalaam sëñ Saaliw mhm. relation la boo xam ne li abdin bihi asra waxat jaawa sa sabha alayhi istimaad yaraat yéen xaadiman li abdin bihi asra ñu sëñ Tuubaa fu mu yam mu ni romb na septième asamaan mhm. waxat jaawaza sabaan sallallahu alayhi wa sallam <laughs> da nga wax lu am solo léegi la antal imaamu rusli mooy kullu nabiyin wa rasulin yatbaun xalfal wasilati yi ndax wal mutabaun sëñ Tuubaa yonent bi ak guddi ga guddi googa la alaaji Fallu Mbàkke gane jamono moo tax mu daa wax ni guddi gam ne lay laa ni cëpp Cheikh Modou Fadal ka jubóog yàlla <laughs> netti li nga wax ci ñoom wa amahum laylatal isra wa jaawazahum xataa dana birtixaa in min sama li sama suma ranaa fatadalla mu ni fa haaza maa haaza min sirin yuqassu bihi wa haddanaa fatadalla bil munaajaati suma danaa fatadalla suma danaa fatadalla awhaa ilaa abdihi maa awhaa maa kasabal fuaadu maa raa afatumarunahu alaa maa yaraa wa laqad raahu nazlatan uxraa inda sidratil muntahaa loolaa tax Sëñ Tuubaa wax ni fa baata yasri wa jibrilu sara maaho fawqal buraaxi ilaa axsan nihayaati ca mimiya ba xat baata yasri wa jibrilu sara maaho fawqal buraaxi lima anil waran bahama xat asa faqra min hina asra bil jismi jahra bi laftirayi akrim bi rabbi asra bi hibbi laylan li xurbi ma al barayi xat baata yasri min baadi tuhri mu diima bisri filan biyayi sural amini ma al amini fawqal amini lilat fiyayi min haala amriya israul ilahu bihi bi ruuhi wal jismi laylan li samawaati sali ala sari sama fawqal buraaxi li sama muhammadin wa karima bi xisbihi wa sallimi xadd baata yuxri xutti baax sëñ tubaa nee na njool màkka daa fanaan a xotti délay asamaan yi xadd baata yuxri xutti baax fi lay li xaas dil wi faa wal anbiya wu yonente ya bittifaax cig ñoom ñëpp la xaw rajo nañoo rasulullaay bi takarrumi seen sëñ am dani sëñ tubaa nee na dañoo julli ci moom mujj nañ di ay géwélam waaw mujj nañ di ay géwélam de sëñ Tuubaa nee na luñ ko wal kullu minhum ñoom ñëpp mujj nañ di ko way lu géwél yi wax fii mahmadin istamia nee na ñoom hmm. yonent yi danoo jékki-jékki rek dégg xam nga yonent yi dañuy ramm ah. waaye dañoo jékki-jékki rek dégg ñu woowe doomi Abdoulaye ji e yow miy ramm ñuy ramm zikra safi sufa wal kullu minhum saraa fi mahmadin istamia zikra safi sufa sëñ Tuubaa yonent bi daa fanaan terañaan nga mu ni déedéet ñëw na balaa fajar de xat aba lay la lay lay la xat aba lay la fële mu ni fa aba fii lay li xablal fajri yaalamu maa xat kaana fii saray za nafiyin aw isbaati suma li daarihin sanaa eh. waxat hawa kullal muna minhu wa ashabal ana wa jaali baati niqami sëñ Tuubaa fa nga yem mu ne xaar leen ma wax leen alquran bu ma leen waxee waa ji ba noppi ni'mal nabiyu wa rasul ni'mal lazi jaar bisul lana bi rabbihil jamil min zikrihi wala xami foo jëm sëñ Tuubaa mu ne ci alquran ayatu taaha laa tatanaha sarmada wa naf wa sawil huda an xattiha bil xalami arsalahu li ngay waxal suñ tubaab mooy lan mu ne arsalahu laahu ilaa kullil wara yàllaa ko wàcce moom alquran ilaa kullil wara mu jëm ci ñëw bind ñëpp mu rat ci laa di loon toftale dikran alayhi unzila lu muy jariñ sëñ Tuubaa mu ne hudan lizi taallumi alif lam min zalika alkitabu la rayba fihi hudan wa huwa alhuda wa siratul mustaqimu lana fa kullu man afahu laqa saxawaati bara ñaan nga demee bay sori mu freiné moom sëñ Tuubaa daa ne tilkal xawaariquma zalat tuayiduhu is lam yazal xilluha yati bil ayati hatta ata bi kitabin ajazal bulaxa ah! mu indi aaya moom Jibril ba indi téere bi nga xam ne ajazeel bulaxaa borom balaaxa ya lottu nan ci wax benn aaya ñoom ñëpp buñ dajale woon wax benn aaya bu niroog aayab alxuraan wa kalla am mislihi ahlul fasahaati ñi am fasahaatu lisaan ñoo ci gën a lot billaahi sëñ tubaab yonent bi sallallahu alayhi sëñ tubaab yonent bi day mm. day Muhammad dëgg sayyiduna muhammad def leen nii ni nu màggal sayyiduna muhammad sayyiduna muhammad sayyiduna muhammad sayyiduna muhammad def leen nii màggal Seydina Muhammad awat xawaariqa daatin jalat sanama laylatu mawlidihi lil kufri yàllaaw keroog ba njool makke feeñe makke bi bi sërëy yowmal wilaadati lil muxtaar yàllaaw lama badal Mustafa niiraanum xamudat xaadat mooy retum lil awli yàllaaw waay nu saawat réewum fursi gis na mu fer mës la fer alfahamin sama yàllaaw sayiduna muhammad diggante xamdaana ak ñooñu xumma ñëpp gëlëm réewam xajam ñëpp waaru waaru yàllaaw bur yàlla dakkoon na seytaane taal jum ya sànni ko ma yàllaaw iwaanu kisra abul asnaami munsadiun fasam kooleano sarwaana yallaaw peeyam ya toj na keroog néegam ba xëy ni ma bëx mébal ya xëy ni taras ak weer ya yallaaw sayduna muhammad sayduna muhammad sayyiduna Muhammad def nii nii nu màggal sayyiduna leeru rasuulu ga sallallahu moo fa melax nit dënnu toj taax tas mbooloo ma yàllaaw seen buur bu mag ba anoo sarwaana moo ko tabax ngir fonkuy jaamuy xéeram waaye rus na yàllaaw waa di sama wata ndox yay walwal yi sa fi dex te mas la am ndox di alub tukku la yàllaaw borom bur li bar di wax mu dëggal saati wala fal ngeen xam ko yàllaaw كأن بنار ماء بالماء من بلل حسنا وبالماء ما بنار الله سيدنا محمد قد استنارت بنور المصطفى بارا قصور خيسرا يندي سامي الله ديغنتي ام الخرا قيسرا دي ملخ وسام دي سيننتي ومك ربك يا الله وازدادت الشمس نورا قد حلا خمرا لمولد المصطفى المختار يا الله وقدلت الأرض بالميلاد يوم بدا وختلت الأمواج يا الله وأسمرت كل أشجار لبلدته وقد نمت بركات العام يا الله وإن دمخ راس المصطفى abadan tan fawraatun lil yawmi yàllaaw sayyiduna muhammad bur yàlla ne sàkkuloon muslim se gaaye weewoon te daat sot muslim wóor na yàllaaw sayyiduna muhammad bur yàlla fab na keroog ak leer gu mësta melax dollil ko jant bi ñambaas weer wi yàllaaw yanjal biddiw yi ci biir a biti bam ni fayax fil mulki wal malakooti dahra yàllaaw weer wi sikar jant bi sabaal biddiw yi di way garab yi meññet mi neex saf-sap yàllaaw fa Mustafaa tiimaloon boppam boobu boobu ba tey gëtëg miski gaa nga fay xeeñ mbaate yàllaaw sayyiduna Seydina Muhammad atum juddoom ba lu judduy góor jigéen judduwul ca moomaat ngir nga màggal góor ga yàllaaw way wute yaa ngay gën a soowo ama mawlidihi taarix ba noog moo di amal fiili la sëñ Touba wax ca jës bu ba moom la Baye Moussa Ka toj nii ci wolof mooy lii mu doon wax xawat xawaari xab badat ani ruwaati sabatat ka misli naarin atfiat maa miqaa'i daqami wa ayna saawata allati qad azumat wa jallati lil fursi xamlil millati wa sooyrat kal adami wa kan qidaadi sahu bi tardan li ahli riyabi lu tax an samee axbaari nabi wa rajo bi naa dami turi da fii haa bi nujoo samawati wa farraqa bi hisbihi zaawaka mi sataha tàkk na sëñ tubaa nee na tàkk na ñu ne lu tàkk mu ni xaar leen sa hiina wulida tàkk na ins bi mu ganee jamono lu mu ni nég leen ma wax leen ki gën a jamono door leen a wax li tàkk xayru nabiyin xat badaa sallaa alayhi yàlla na julli ci moom man hada te fesal ki jubal fu àddoxoo dënnam bi bil xikam ci xam-xamu xikam léegi nag kaay leen ma wax leen li tàkk noorun azimun xad yara bihi kusuura xaysara leer gu màgg guy tax a gis paleb xaysar ku koy gis man kaana fi umil xura sibhu jaziratul arab presqu'île réew yu ndaw yi umul xuraa sëñ tubaa ni man kaana ki nekk fi umul xuraa ca foofa di day réew yu ndaw yi fuy foofu màkkata xayrul xorami iwaanu kisraan sadaa paleb kisraa ba daa màbb fiha waxab lu rufia R plus la woon sam kun loxoo fartafa nax wa samal mukarrami waaye day balal yaay dama too xataa sarirun kasaraa li aj li xaw li waral min noori afdalil wara rabbi alayhi sallimi leerug rasoolu sallallahu moo fa melax nit dënnu toj taax a tas mbooloo ma yàllaahu mooy mi noori afdalil wara waaye rabbi alayhi sallimi yal na yàlla sëlmal ci moom kañ baada salaatin gannaaw bu jullee ci moom laa tasool julli gu dul dog bil aali ci waa këram ña wa sax bil hudool ak saaba yu maandu ya wa biya ci man mii di wax ahmadul mbakki yu jadidi sabil ci la yàlla yeesal al islam bilaa yi salli wa salliman ala man haada mawlidan jala ay waay yàlla jullil te sëlmal ci ki nga xamante judd bi nga xamante si moom lan jagle judd bi nga xamante si moo fi jëlee li xayri naa ñi bokkul ci ñun sawil xilaa di way dëng ya wala ta xambal xidami yàlla yàlla na nga nangu sama liggéey bi mawli doxoo juddoom bi kat muazamu moo gën a màgg ci juddu yi mubaarakun moo ci gën a barke muxtaramu juddub rasulullaay lañ a warmaa ci juddu yi tanzimoho màggal juddu bi yan xatimu lu war la ala zawi taqaddumi képp ku jiite mbooloo ñuy ay jullit topp la sëñ tubaa nee na waxuñ dara waaye màggal juddub rasulullaay dalaa war moom nag am assasine la sëñ Mbàkke Mor Anta Sali dem li muy digle moo ko njëkk a def assasine mu dekkal ko ah yaytu alal nabi min assasine mille trois cent la sëñ Mbàkke Mor dem mille trois cent un mu màggal ko moom nee na ku jiitu moo ko fekk mu njëkk a jiite daara ji ca màggal jutub rasulullah ca ko dekkal yeytu mawlid nabi min assasine moo tax mu ni tanzimahoo yan xatimu sëñ Tuubaa lu muy digle moo cay jiitu mm. ala taxaddumi nun koy defee tanzimahoo bi sunnati am na ñu ni ruud sunna waaye Saliou mën na laa wax ni sunna la xam nga lu tax yonent bi da daan woor altine biñ ko laajee lu tax mu ne ci laa gën jamono kon daana màggal judd bi yàlla sax màggal na judd bi rasulullaay sallallahu waaw suway batu jaamab aboo lahab la moo xibaar aboo lahab gën a jamono ak wax nañ ne da koo nàmpal aboo lahab goreel ko ngir sayiduna muhammad mu wax ni gane na jamono li aboo lahab di doy waar ba dégg tabbat yadaa abi lahabin saa bu altine jotee kenn dootu ko duma suway batu mës na koo nampal aboo lahabin goleel ko ngir lam ko nampal bir na yàllaaw buur yàlla may na aboo lahabin tax fiifal azabi gadan ci jëpp altine ngir njool makka yàllaaw kon yàlla màggal na juddu bi ndax bu fekkee dootuñ duma aboo lahab bu altine juddub rasulilaay ba mu goreeloon jàmba moo ko waral kon yàlla màggal na judd bi yonent bi màggal na ko sëñ tubaa ñëw jiite ni ahyaytu mawlidan nabi min assasine wan xaada lii fawxal mun a fiital sa si yàlla may na ma sama mébét ci at ma ca des sañaam ak ma bëgg dugal ci kuru karabu xat ndax ay yonent la lim yoo xam ne njool makkaa leen sauvé waaye sëñ Tuubaa tënk na leen ci benn way nee na ñoom ñëpp seen kéemaan ya ak seen daraja ya kii moo leen ko abaloon bàyyi sayyidatuna Fatima lakal mu'jizatul xaariqatul lati biha atat xablu min xayril mira jumlatar rusli sallallahu alayhi wa sallam maam aadama la njëkk a sauvé di mhm. mooy abul basar mhm. waaye sayyiduna muhammad ay maamam li tax sayyiduna muhammad ay maamam mooy moom avant moo doon li mu doon sëñ tubaa nee na jël na léppam takkal ko garaat yi te fekk aadama noppeegul hmm. hazal aminu minal mawla nubuwatuhu xidman wa aadamu fi salsaali xatlu bi daa nubuwataho xablal baraaya xadin zalat lahu shabqu hiinal jaddu fi tiini yuxsanu la anta lazi utita xidman nubuwatan wa aadamu bayna al maa'i wa tiini yan jali moom la njëkk a sauvé sëñ Touba nee na ba aadama jégloo yàlla ba dàcc ca la taxoon mu wàcce ko ci kaw suuf mook soxnaam sa hmm. ba xelam demee ci kañ bindu turam ci bunti àjjana ya ba mu ko tuddee la ko yalla baal bi jahihi faada bil xufraani aadamu min bahdin hibaatin min anhaarin wa jannaati sallallahu alayhi wa sallam fa la yem ak aadama mu ni déedéet aadama wàcc na ci kaw suuf saa yu iblis xëyee bëgg koo nax ngir mu mooyaat yàlla waaye mënatu la tooñ yàlla ndax daa war a doon maami rasulullahi sëñ bamba nee na bi jaahihi lam yamin li zanbi aadama mos lahu daahu laaynu min xar ozima sallallahu alayhi wa sallam sëñ Touba nee na nooxun yonent yàlla nooxun ma wooteel yàlla quatre cent cinq euh, neuf cent cinquante ans nooxun ba mu ne rabbi la tazal ala al ardi min al kafirina dayaara yàlla defar loo ko gaal 83 personnes ya jotoon a jébbalu la àndal ca gaal ga sëñ Tuubaa nee na yàlla ni suuf li ma la dénkoon ci ndox génne ko mm. asamaan li ma la dénkoon ci ndox wàcce ko suuf si bala asamaan si di sotti mu doon am tuufaan adduna tukki ba kenn desatu fi lu dul 83 personnes yooyu sëñ Tuubaa nee na su gaal gi freiné ñu wàcce àdduna reprendre à zéro c'est grâce à Seyyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa Yanqooba daa jooy yonent yàlla Yuusufa doom ja ba silmaxa ñeen fukki at sëñ Tubaa nee na su mbubum Yuusufa delloo see gis ba du Yuusufa du moom c'est grâce à rasulullahi ñu ni Mbàkke bindal muy najaa bihi laahu nuuhan bi safinatihi wa jaahu kafa yanqubal baliyaati najaa bihi laahu nuuhan bi safinatihi wa siina yanquba amma asbatu kaama sallallahu alayhi wa sallam doy na am <laughs> bu ma day metti sëñ bi voilà leer na nañ waaw leer na nañ te lii rek lañ taamu woon ci yow sama er, mbokk yi alaaji Sonde Mbay ak Cheikh Mat Diaw ñu ngi woote nee nañu Saliou Samb mi ak maam Bunaama Sàll ma nga ca sagata te barket Bunaama maamam dox na fekk sëñ Tuubaa xumaat barket Bunaama dox na fekk Serigne Touba Xobaag ànd ak ci dag yi kenn bañ yeggee Serigne Touba seexal dag bi saa ngoone sàll sëñ Abdou Khadre daana ko bu ngeen toogee ak moom nu ngeen def mënu ko dañuy def rab Serigne Touba rek moo tax tey eh, Yacine xol yi sedd dëgg la <laughs> eh, fi nu nag fi mu ne moom lii moom am na solo lool ñaan yàlla nag yàlla nañu ko fekkee déwén ak jàmm. miin waa yaakaar incha allah waaye ñaanal Cheikh Amadou Mountakha mu yàgg fi te wér. Cheikh Mountakha. walu bañ la ko def dafa mokk te kenn déggul kuur ga. cooroo dégg du Cheikh Mountakha waaye bu jëf ree rek moom. woof na njaboot gi kenn jooyu. tey sëñ Moustapha Mohamed borom axi bàyyil xadim dafa dafa dafa génn ci njaareem dem ca Fulkuma. fekk sëñ Fallu moom sëñ Basiiru toog ci wetam waaye lii yoon wi kat ni Cheikh Cheikh Gaynde Cheikh Gaynde fi la ko sëñ Abdou Xaadir waxoon kër gi sa maam wàcceem liggéey sa baay yóbbu ko Tuubaa taxat demul nga miire ko ba ko war gileem du xam lu ne ci biir bu pël bàyyi koonte yàlla ba def ko am ngërëmal yàlla daal suñu xol sedd na yaasin. wallaay suñu xol sedd na Pape. Eh, xel yi dal na. wallaay xel yi lool. waaw su doon suñu saga duñ ko sax yemale ci waxtu wi. Eh, dëgg la dañu dem ba fajar rek naam. dañoo am benn mbokkum taali bu ñuy wax sëñ Omar Ba. waaw sëñ Omar moom benn entreprise bu wax Touba Pneu. Pneu waaw. nee na jox na sëñ Khadim Guèye ay pono nee na ngeen sa oto. mu soppil la pono yi àddee sëñ Touba. macha allah waaw sëñ Omar Ba ñu ngi koy ziyaare bu baax a baax. Mhm. Eh, Euh, président Bougane mi ngi message at <laughs> euh, Cheikh Abdou bu sa maram euh, sama sëriñ waaw sa sëriñ sama sëriñ nee na man neel sëñ Saali bu jeexalee te lu waxul dara ci jikko yi sëñ Tuubaa amee diggam ak boromam nee na damay sarale du ma wari ah, <laughs> sëñ Samba Xaya Cheikh Samba Xaya moom Cheikh Sidi bu mi ngi mi ngi lay ziyaare waaw mi ngi lay ziyaare bu baax sëñ Saaliw nee na kontaan na ci yow bu baax a baax a baax a baax ayca <laughs> bu ko defee rek. waaw maa ngi ko doon wax léegi. waaw euh, balaa sama sëñ bi continuer bañ a wari. waaw wax ko ñaari baat rek. waaw waaw day saarale. day day saarale rek waaw dafa am <laughs> maanaam. mag boromam daa yomb a wax. Mhm. lu la ci waay wax am nga loo ko tontu. maa ngi nuyu bu baax sëñ Mbacke sàmm mhm. Guyar transport et logistique. dëgg la sëñ Modou Fall Sénégal broderie maa ngi koy nuyu. Cheikh Thioro Balla Thioro Karim Mbacké Kumba tey maa ngi nuyu sëriñ Saliou Mbuub moom Alaaji Baara Mbuub dëgg la di nuyu Serigne Modou Dieye seen sunu xarit maak sëñ am sëñ Modou Dieye seen di nuyu sëñ Ahmalaat Xasida gaa yi nga xam ni léeg-léeg ñu tudd leen ni ma koy baaxee waxe Baye Abdoulaye ah. jàngalu leen fu nuy jëlee teraanga ji ñun waaye bu buñ ko amee ñun lañ ko yéene ndax borom Touba. dëgg la. kon faaw léeg-léeg ñu wax leen jërëjëf. Mm-hmm. ne nit ñi di bàyyi ci loolu xel. Mm-hmm. alaaj mbàkk yu fay. nañ ko ñaanal mu gudd fan. wallaahi amiin may te wér. ñoo ngi koy gërëm bu baax a baax. amiin amiin. waa koo xam ni waajur la ci yow. ku wëlbatikoo man ci yow lenn li. war ngaa xam ni xaritoo booba. waaye waaye du aas du du waaye du daraja. ñu jox la liggéeyam sëñ Touba ba mu noppi sëñ Touba. nga jël ay walis def ca milliards jëbbale. waaw mbàkk yi rek ko mas a def. barke borom Touba. te nag sëñ Baara yee noonu ah. sëñ Baaram mi sa mi njëkk a dégg sëñ ba Alaaji Baara Alaaji Baara Falilou ba ba mu ñëwee Ndakaaru coow li bari. te ni li nu bëgg mbàkk yoo ko mën. Alaaji Baara Falilou sëñ Moustapha Alaaji Baara mi kii doon tudd léegi. waaw kooka rek la roy. bëgg sëñ Touba ci sëñ Moustapha Alaaji Baara bëgg sëñ Tuubaa gi ci sëñ Moustapha Alaaji Baara kenn du moom neexu da dab sëñ Moustapha Alaaji Baara te ñi may dab barke borom tubaa noo koy ziyaara bu baax wallaay wallaay mbakke noo ngi ziyaara bunti kër borom tubaa yëpp sëñ Pape Mor Lissa Ndiaye maa ngi koy nuyu di nuyu sëñ Abdou Karim Mbacke Falilou Murid Sadiq Pape Mor Lissa waaw su ma sëriñ sëñ Abdou Karim maa ngi koy nuyu di ko delloo njukkal loo gis ak fi ko yàlla di jaarale nii ma mel mooma dëgg la waa dëgg la nii ma mel dëgg ci moom la jaar mooy jàmbaari sëñ Fall. ab Baye la boo xam ni ndakaaru gii la wàcc fekk fi ay xale yoo xam ni ci leneen lan ne woon. mu jub dëgg la. mu dëpp leen ba tey jii nit ñuy werante ndax ndakaaru lan dëkk. sëñ Abdou Karim Mbacke Falilou. man fii laa juddoo. man fii laa juddoo yi xale yi xam yépp xam naa ko. booy taxoon. du fi gan. sëñ bi day defar kum sopp soppi la waaye waaw leen wóor ni bambaay waane billaahi kum sopp soppi sëñ xaadim ma ngi koy way léegi gisal daahiras gaayam yi daa war ci naaru góor mu teg cay woto ak luy naaw Souleymane la lay ci góor ñu naa déet mu jël waa Mbàkke def leen ñu di lingeer ñu fal xotti Mbàkke ak daaru ay mbedd ñuy bëngeer saxaar gaa ngi jëm Tuubaa te dawtil ba teggi ko billaahi Kajoor ak Bawol ak Siin Saalum ak Fuuta ak Jolof na ngay walwali jëm Mbàkke jàppoo xëlëf xëlëf waaye te ñoo yay billaahi ñoo yay daa am lu ma soxla ci foofu. Mhm. moom laay ñëwee ci sëñ Abdou Lahad Bousso Maram. Ah, ah, waaw waaw génn nañu dàmbaal suma sëriñ a ngi nii. dëgg la suma sëriñ a ngi nii. di jaay soxna day Bousso. waaye ma wax la dara ci li sëñ Abdou Lahad Bousso Maram wax du ma génn xasida ak taxmis googu. taxmis waaw. mën nañu ko jëlaat du dóor ndaw. du merloo mag mënul gan. te lay dëkk du dóor ndaw du merloo mag mënul gan te lay dëkk bari na koo xamante ni boo ko ganee kontaan bu ngeen dëkkee nga xeeb jikkoom waaye sëñ Tuubaa mënul gan te lay dëkk. macha allah macha amul xaar ma yàlla ak nit. du xas nit ci waa këram deful xejj buy jël zahiram sànge baatinam zahiram daa weex tall bi baatinam weex tall deful xejj buy jël zahiram sànge baatinam moom borom tubaa mm. xañul nit mbiram mbiram waaye xañul nit biram kawam ndax mbiram zahiram ak baatinam dara yàqu ko ay waaye di tax naa la paxtam yàlla yow waa ji may sewal ndegam gis nga kem seex bamba mii tax ma dib géwél ku simple te sellal na tongoog moom bëlëf desul ca mbokkam ya mbaa jàmbur ya mbaa gaa ya koy dikkal li tax nag ma jébbal ko saa mbir def mbir itam te topp macha allah maa ngi nuyu soppe yi la ñi bëgg Saliou sàmm ndax sëñ Touba booba ba tey téléphone yaa ngi yëngatu kenn ku ne ñoo ngi lay message naan la Saliou Samb man mii li may li ñëw ci appel ci sama téléphone. murid dañuy dem ba fàttali ni ci plateau direct nga toog. ndax bëgg gin bëgg borom Touba. man mii ñu ngi may woo waaw murid yi sëñ Touba lañ bëgg. Uh-huh. yàlla bu Saliou Samb yëg boppam. dëgg la yàlla na Saliou Samb xam ni sëñ Touba tax nit ñi di dal ci kawam. damay faral di wax koo xam. soo waxee ci moom lu baax. nit ñi di jox seen alal te duñ ko tey. boo juumoon ba wax safaan ñi la doon jox alal ñoo lay rey war ngaa xam ni bëggoo bëgguñ la dem. barke borom Taïf dëgg la mooy koo boo waxee ci moom lu baax nit ñi jox la seen alal te duñ ko tey bis boo juumoon ba wax ci moom safaan ñi doon joxe alal ji ñoo lay rendi. macha allah sëñ Saal eh, sëñ kon xam nga ni doo ci dara de. wallaay kenn lu ci dara. dëgg la dëgg la dëgg la boo waxtaanee ci Sëñ Tuubaa ba nu xam la ku la laaj ci sa bopp lankal yow amoo. ñun amuñu borom Touba moo am borom Touba rek am. amul borom jàmm kenn amul ci ñun. bu dul woon sëñ Touba kenn du ni Saliou Samb. bi la yaa ko waaw man ku may questionné laajal borom Touba man amuma. dëgg la man la kan. man lu ma ma man lu ma tekki. dëgg la man kan la bañ naan Saliou Samb yow la kan ak sa palmarès man aw ma palmarès. sëñ moom laa ne. man ci ma am moom laa ko xool. Ah. ku ne ci moom ku nekkul ci moom gisuma la. man sëñ Touba rek laa teg bët. jërëjëf loo am te Sëñ Tuubaa nekk ci jëlal yóbbu maa ngi ci moom te du ma ko rëccu ah déedéet eh, eh, eh, kooku kenn du man sa bopp ci moom muy télé boppam barke Xaadimu Rasuul wan na la ko barke borom basin yi mooma kër yi mooma lépp moom Amadou Sëñ Tuubaa kenn du man sa bopp ci moom muy télé boppam ci yow da ko nit ñi xam nit ñi xam dëgg la dëgg la maara bu Seex Sidil Maxtaar fi mu toog nee na mi mi mi mi ngi may xotti li yéere. macha allah xam nga Cheikh Sidil Maxtaar moo def moo def moo yokk ci jumaay ji sëñ Bamba ji ñaari soo. yaa ngi jëngal Cheikh Samba Xaye de. doon nag juróom-ñaareelu xalifa Sëriñ Tuuba. waaye yaa ngi kenn def dix-sept milliards Dakar rek. Cheikh Amadou Muntaxa di nag bëggoon ko. Mhm. teg Cheikh Sidil Maxtaar ca kaw borom Ganna. Mhm. borom borom guy mit borom borom Mbàkke Kajoor borom borom Cheikh Sidil Maxtaar ja ak baatin ba da jege sama soxna dafa am gone ma ñëw toog wax ko ko munuma lu mu doon ma ne ko jigéen munuma tuddee ko sëriñ sooy allahu akbar ma ne ma ma ma ne ko ay mbakke mhm, dama ne woon bu ma amee doom bu góor rek tuddee ko ko waaye li nga ndax sëñ sëy bu moo julee sama yaay mhm. mu ni tekk ba mu yàgg xam nga sama soxna su mag binta moo ko wàcce woon mu ni tekk ba mu jàgg sëñ sëñ Cheikh Bara Laat a ngi toog kala dafa yuuxu mu mm-hmm. ngi toog Cheikh Bara Laat ñoo ngi koy munu ma da nga ko bëggoon munu ma da ko bëggoon a tuddee sa soxna su mag mm-hmm. man ko waa Mbàkke munu ma nu mu tudd man ko Binte Diouf munu ma da ngay wax Binte son yi waaw sama chéri maa ngi koy nuyu Binta Sow. wallaahi wallaahi wallaahi. barki dem bi bi màggalu Serigne Sow bu ñu jotee. Eh, booba fekk na ma ànd ak Amadou Ba génn waaye fu ma toll munoo man damay màggal. macha allah Pape. yalla yàlla yàlla def jàmm ci réew. alaaw ma miinoo yàgg. te du wóoreeg jàmm. te ñaanal bugaan. ñaanal soxna moom mi. moom nattu ku baax te góor mën naa sak dépasse waaye fexe mu neex ak mënees koo lekk jigéen a koy def yal na yàlla fay allahumma amiin papa jërëjëf Ablaye Serigne Cheikh Amar mu sëñ Saliou waaw ah! Ah! yal na yàlla dimbali ko allahumma amiin wa yaa ci duwér ku murid di war a fàttaliku la mais c'est te euh, Saliou na murid di fàttaliku sëñ Cheikh Amar <laughs> dëgg mbir la ñii bu nekk du ma toog fii ci rajo bi te ñëwuma ci alima dëgg la indi Cheikh Amar xam nga lu ko sëñ Saliou waxoon dama lay xool bëtu yërmande mhm. daal ni ko seex mu ne ko mbàkke mu ne ko doomi xool ak doomi deret dafa am mhm. sama doomi xool nga Cheikh Samba xëy na jox na la addi Cheikh Sidi Moukhtar dana la ko wéeb. jox naa sa léegi bu soobee yàlla. sëñ am mel na ni waxtu wi jeex na lañ ñi mayoon ndaw na loolu bu doon suñu sago nag ñuy daal di yeggale ba fajar rek. daal di julli fajar. wante waxtu wi mi ngi noonu. daf ñu sant bu baax ndax eh, jotaay bi. yàlla bu du karmat de. am na solo yàlla ñu sëñ bi lay daanu karmat sëñ Bamba jar na karmat. ngërëm ngërëm ngërëm lu kawe. Uh-huh. Eh, eh, ba pare itam yëkkati télévision bi. Mm-hmm. kawe njort ndax eh, fii ñuy waxtaan ak yow. Mm-hmm. li ñu am ci ay message ci ay kilifa yoo xam ne bëgguñu sax ñu tudd. Mm-hmm. seen tur yàlla na sama borom gën leen a taxawu. amiin eh, léegi rek maa ngi jot ay message yu bari wax dëgg yàlla ñoom sëñ Baye Jili Mbàkke léegi léegi. ah ñi ngi ñi ngi ñi ngi ziyaare ba baax a baax waa kër eh, Fifi Voyage ñoom mm-hmm. itam tuwaar kalla di leen ziyaare di leen ndokkeel sëñ Xaadim Fall ah soxna maam Penda tudd naa ko sànq ñu ngi koy ziyaare Euh, di euh, béeg bu baax a baax a baax soxna Bali Mbacke Touba soxna maam Marème Bousso moom soxna maam Mati ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziyaare euh, beral nuyoo nag sëñ Kamal ndax taxaw gi mu am ci ñun ñu ngi ñaan waa M3 Couture yëpp mhm. bokk yi jàppale leen mhm. gërëmaat bu baax soxna i Kebe gërëm sëñ Ibrahima Ndiaye ak a baax ñaanalaat alaaji Mbacke yàlla na ko sama borom wéral sàmm ko te saxal ko fi dëkk bu nekk daa am ñu ko sama borom di mën a jiitaloo te bi mu nekkee ndakaaru ba léegi li li Baye Ablaye Mbaye Peex wax rek moo ci am solo mooy fu mu nekk rek sëñ Touba la fay représenté démb maag sëñ Saali dañu ko fekk mu tëdd maa ngi tooñ sëñ Saali naan ko fekkee mu tëdd mhm. suñu ne sëñ Touba mu jóg daa di jóg toog ne tey ñëw fa mu naafile bi sax continuer waxtaan ci sëñ Touba kon yàlla na yàlla sant ñu ngi sant baax si ñoom ci euh, télévision bi mhm. ak taxawaay bi mhm. ku xool seen TV ren xam ne am na benn essence sax dañu daal di changer programme bi. def lépp nag diine. ba noppi wëlbatikooti nag sëñ Touba saf ci sàpp. te loolu nit ku nekk da ngay am péete. soxna Yacine am na fu nit di toll doo soxla ku dul sëñ Touba. sëñ Muntaxa daa wax benn baat boo xam ne fa laay jeexale daf ne bu yàlla taxawee nii yonent bi taxaw sëñ tubaa taxaw ci sëñ Touba lay dem coow li bari soo demee pale de justice ñu war laa juger juge bi toog. sa avocat toog. Moussa Fall bu bu toog. ko ci koy dem. sa avocat ngay dem. parce que avocat bi moo la mën a layal. Mm-hmm. ba juge bi wàññi peine bi wala mu jéggal la. dëgg suñ tubaab mooy sunu avocat te layal noonu suñ digg ak suñu borom. sëñ Moussa Ka dani ko. avocat da daa layal ku rey sàndarma. te mën nga maa musal ci ab tàndar. macha allah fa laa koy jeexal ko. <laughs> Ah, ah, ñu ngi lay gërëm nag bu baax. gërëm naa la itam la bu baax gërëm naa la yàlla sàmm la. jërëjëf sëñ dégg nañ lool gërëmaat sëñ Saliou ak sëñ Xaadim géey maman ñi ngi lay ñi ngi lay gërëm bu baax euh, di ñaan la ñuy doon topp ñëpp euh, di ziar sëñ Abdou Wade Mali ak sëñ Alla Kan ñëw nañu jàkkaarloog ñun plateau bi sëñ Ibra Sarr Guèye maa ngi koy gis ñoom sëñ euh, Maam Balla yëpp sëñ Bassirou Sylla la ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm macha allah sëñ am bul di gëj ci kër gi waaw nga fii di ñëw moom di fi gëj moom soobee yàlla sëñ Xaadim ñi ngi lay gërëm bu baax a baax xanaa ñu daal di tàggatoo ak yow rek jërëjëf ci jàng bi neexoon na lool macha allah. jërëjëf am sant bu baax sëñ Ablaye. waaw. maa ngi lay nuyu nuyu soxna Seyda. walaay Guèye. Euh, Cheikh ma Babou ci koddu. jërëjëf Mbaye di nuyu sama xarit beeri sëñ Cheikh Mbacke Mbow. nga xam ne moom maa moom ba ñu gone ba tey jii mi ngi gis ay sëtam. Mm-hmm. soxna Yacine jërëjëf Serigne Saliou. tey delloo nga ñu ci sëñ bu baax a baax. am nañ mbégte bu baax bokk ak yow jataay bii ndax yow ci xaal ngay waxee ci sëñ Tuubaa te dafay jàpp ñëpp ba nga tàmbalee ba tey sëñ Ablaye Mbaye mii rek lay xool toogul taxawut waaw waxtu wu ne day dem buy bëgg a tëb di bëgg a jóg ndax waxtaan wi dugg gum ko dugg sëñ Amidun mii moom day sama lépp mën naa wax sax ñoo bokk ndey ak baay waaw moom mu yaroo ci samay loxo di nit ku baax nag koo xam ni nii nii mu mel nii rek ni la mel bu soloon mbubb mu weex dama lay wax ni ni ni mbubb mu weexee ni la xolam bi mel amul am amul kenn ak frontière foo ko yem rek yaa ko fa yem waaye mhm. moom amul kenn ak frontière saa boo gisee muy dem rek xamal ni ci tey doomu aadama lay dox waaw muy nit ku baax di ku yaru di nit ku xam boppam nag euh, maa ngi sant nag bu baax ñii ma àndal ñeetul sëñ Mamour Guèye mi ak sëñ Xaadim Seen mi nga xam mooy jawriñ fii sama jëwriñ fii ci dakaar ak sama bokk yi ma àndal Euh, sama jarbaat yi sëñ maam Cheikh sëñ sëñ Ibra Sarr sëñ àll kan sëñ Abdou Wade ñi nga xam ñoom ñëpp man lañ àndal ñëw fi sëñ Mor Seck di sant nag sëñ Moustapha Mbacke Mohamed. jàmbaar jooju nga xam ni mooy sama bunt ci sëñ Touba tamate ko sëkk. di nit ku baax. di ab murid saadix wax dégg naa léegi nga nga nga am ko tudd ci kilifa yi ni murid saadix la. foog naa sëñ Mbacke du fay la. waaye sëñ mu Moustapha Mbacke Mohamed Mouride Sadikh la. dëgg la Mouride ah. la ndax am na bis fulk bii ngay wax Cheikh Mouhamadul Muntaqa boobu mi ngi koy defee njaareem mu toog ci biir saal bi ñu tegal ko télé bi muy jàkkaarloog fulk bi. di xool di xool ñii dugg si ba mu yàgg sëñ Moustapha dugg si mu daal ni kii de murid saadix la. la waaw kon nag sëriñ Moustapha Mohamed maa ngi koy nuyu di ko siyaare. Mm-hmm. di siyaare njaboot ga ma bàyyi ci kër gi yëpp. Mm-hmm. doom yi ak soxna bi may ñëw sama ñaari doom la àndal kii sama taaw la. Cheikh Mouhamadou Moustapha laa ko tuddi kee sëñ Mbacke Soxna Lo. sëñ Mbacke Soxna Lo moomu nag mënu koo fay. Eh! jataay bu ma toog mu taxaw ci sama kanam. sëñ Saliou wax na ko léegi man lu ma am ci sëñ Touba sëñ Mbacke soxna loolu. ak yow moo ma yar moom laa xamee ab sëriñ moo ma génne 92 yóbbu ma France booba ak tey ji fanweeri at laak ñaar. 32 mhm. ans te booba xale laa mu jëlee ma fii yóbbu ci mbooloo moo xam ne mosuma koo gis. ay junniy nit toog ci saal bu rëy mu jàngaloo ma xaside yi. Mhm. ba ni ñibbee àlaaxira. jeex jóg na sëñ Mbacke ko wuñ fi. mooy jëmm joo xam ne mënu koo fay ci sama dund gi. fu ma taxaw rek sëñ Mbàkke soxna loo taxaw ci sama kanam. kon maa ngi koy sant bu baax di ko ñaanal sun borom dolli ko ay ngërëm ak i leer. Euh, jataay bi dafa xat. Mm-hmm. waaye maa ngi sant ñëpp. maa ngi gërëm ñëpp. lay maa ngi ñaanal ñëpp. képp koo xam ne yaa ngi jàkkaarloog sama jëm rek na nga xam ne jox naa la loxo ndax waxtu wi dab na ñëpp ñaanal ñëpp di leen baalu àq ci weeru tedd wi di baal ak ñëpp di leen ñaanal yàlla. kuréel bii ma àndal nag ñooy kuréel bi nga xam ne fu ma jëm ànd ak ñoom sëñ mamoor mii moo ne ci bopp bi sëñ Basirou Sylla mii ci jëwriñ yi la bokk ak sëñ Bastal ak sëñ Modou Diop sëñ Ball mii. ak mboolem ñii ma àndal sëñ Fallou Mbaye ak sëñ Xaadim Sey ñii laa baaxoo di àndal fu ma jëm rek maa ñoom ñooy ànd sëñ Xaadim Seen mii moo ma nekkal fii Dakar kon maa ngi sant ñëpp. Mhm. di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm. Euh, sëñ Touba mi nga xam ne mooy faj aajo yi yàlla na nu boole faj suñuy aajo. bugaan nag maa ngi koy beral nuyoo boppam. Mhm. di ko sant léegi la ma sëñ am wax ni. bugaan nee na na nga lu mu gàtt gàtt na nga jàng am maam jaaratullaay ñaanal ci soxna moomi Euh, Bougane nag dañoo bokk sëñ Mbàkke Soxna Lo fekk na ma Taïf ba tàyyi ma toog mu ñëw fa minuit mbaa une heure ci guddi toog faak man ba fajar booba lii yëpp amut. kon ku ko yàgg xam laa ci wetu sëñ bi ku sëñ bi fonkoon la it bu masaan ñëw day uufu ci tànk sëñ bi day ñëw ba ci tànk bi mu uufu ci kanamam sëñ bi wax di wax ak moom di ree di ko tàpp kon Bougane foog naa ne lu am rek sëñ bi doon na ci dara kon nag maa koy. maa ngi ñaanal soxnaam soxna moom yàlla dolli ko yërmande te jéggal ko ak gorom bi wàccoon muy soxna jaaga mm-hmm. yàlla yërëm ko mm-hmm. ci daraje sëñ Touba ñi ngi sant ñëpp te gërëm ñëpp soxna Yacine jërëjëf jërëjëf sëñ Xaadim xam naa ne euh, jaaratulaay boobu na ngay daal de tëjee rek danga may may rek ma daal de euh, tàggatoog ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi ñu ngi gërëm bu baax a baax sa waa kuréel euh, papa ñu tàggatoo waaw waaw sëñ Xaadim Mbay Mbooro mi ngi lay nuyu di la siyaare tàggatoo rek xol sedd na. ba mën a wax. li am solo rek mooy Serigne Touba rek kay dëgg kenn du moom dafa am taalibeem boo xam ne bii fi mu nekk bu yor yor jotee rek jaani ñangoor dafay génn firi bàngoor bi daq waa kër gi te yor yor lay génn mu ñëw nag ci sëriñ bi njaareem na ko man day mbàkke damaa bëggoon nga ma tibb suuf nga ñaanal ma ma sotti ko ca sama kër ndax bu yoor yooree rek jaan jaan ci génn sama waa kër daw mu firi bàngoor ba xam naa ni fi ne du ma fekk jigéen ñi kër ga mu ni ko bu bu bu du ma jox suuf dellul amidul demee bu yoor yooree ba jaan ci génn ba firi bàngoor bi bul daw jàkkaarloo moom nee ko ahmadu nee du tooj du tooj boroomam te bëggul ku ko tooñ mu ñëw rek jaan ji firi bàngoor bi kër gépp tasaaroo nag mu daal di wax wuti jaan ji mu day ñime nu ko eh ahmadu ahmadu ahmadu sama sëriñ ne du tooñ moromam te bëggul ko ko tooñ jaan ji ni waññet Ablaye Wade ñëw na ci sëriñ Saal ci sëriñ Saal di tukki siin tàggu ko Ablaye Wade ñaanal ko mu dem mu dem roi bi ni ko bëggoon naa nga yàgg fi ndax dama laa sopp waaye dafa am ngelaw lu ñuy wax tàmpet mhm. te mu ñëwee day faagal fii. Mhm. faagaagal fii nee nañu ma feeñ ñeenti fan mu ñëw. Mhm. dëkk bi ñëpp ngi gëti Ablaye Wade nag murit la mu ne ko baal wax ko ki nga xam ni mooy sama sëriñ su lu mel ni jëm see man bu ko waxee du ñëw bu ma ko ko waxee du ñëw daal di woo sëriñ Thialiou sëñ Moussa nañ jox ko ko téléphone président daana ko koy wax. mun na ko baax na nañ bàyyi lépp ak suñu borom. Ablaye Wade ñibbi si ba mu fukki fan waa ji léeg-léeg woo ko ni ko ñëwagul de bu ñu ñaari weer mu woo ko ni ko loolu ñëwagul de ko dootoo ko gis kookoy seen caaligu. borom ngot borom njàpp ndaw borom xabaan borom njur borom ndooga. jërëjëf Pape bu suba ak jàmm incha allah. bu suba incha allah Cheikh Mbacké ngi lay jërë gërëm yow itam bu baax a baax. jërëjëf euh, Yacine suñu xol sedd na ñu ngi sant suñu invité yi ku guddee nag doo guddal sama waaje maa ngi koy bàyyi borom taayif mi nu bokk wax na dëgg ba noonu du amee juróom-ñaar ba léegi nooy ànd mos noo werante sama aaw moo ko ñaani moo ko yóbbu Touba Moussa yi yal na la borom taayif féete fépp fu ma la mas a woo rek wuy si nga ma te mosuma gàntal benn yoon ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm Serigne Son bu Mbàkke mu sëñ euh, Abdoul Fatah bu Serigne Falilou kontaan na lool ak sëriñ Mahamadan Mbàkke nga xam ne borom daar xalifa borom daar mooy woy jërëm muy sëriñ Bassirou Anta Niang waa daaru gépp nga ñu seetaan nga xam ne mooy mbuub taal am diaspora jëm jëm mi ngi siyaare ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah sañaam yàlla na la sëñ Tuubaa féete fépp man sëñ Tuubaa rek taxam bëgg la yaag sëñ Saaliwu man sëñ bi rek laay yëg ndax lu ma am sëñ bee màggalu sëñ Blaat gaa ngi ñëw papa ñu lu am sëñ bee sëñ bee bi sëñ bee taw feexi yàlla na yàlla fayal sëñ Tuubaa jërëjëf Cheikh Mbacké barke Sëñ Mbacké lu métti bassin di jot te moom rek laay sol jërëjëf barke borom Taïf <laughs> jërëjëf yaa sey daa ñu bàyyi la nga tàggatoo yooyu itam très rapidement leen ñaanal bu baax xol yi moom fees na te lu fees moom rek lay def àpp ñu ngi lay ñaanal Sëñ Saliou ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la ñaanal ndax tey jàngale nga ci Sëriñ Touba xam ne liggéey bi nga def sax yaakaar naa ne xam dana àdduna bi yëpp yàlla la ko am yow ñoo far ngi lay ñaanal bu baax yow sama xarit nga waa Cheikh boobu mi ñuy seetaan ndeysaan waa maman ñu ngi koy nuyu di nuyu Cheikh di jaajëfal Yacine di nuy suñu soppee sañ xaadim ak équipe bi nga xam ne yëpp ñoom ngeen àndal réew kontaan nañu li ngeen jàngale leer na macha allah yal yàlla defal leen jàmm. maman yow tam merci. Mhm. fos de mhm. nga xam ni ni ma koy waxee dañuy toog. Mhm. mais ñoom la. ñoom ñoo ñuy wane. suñ euh, ku mel ni maar. taaliba Serigne Touba Mbaye Seck. Mm-hmm. ñoom As. Mm-hmm. ñoom Suki. Mm-hmm. Babacar Mar. ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal. jërëjëf yaa seen ñoom tam kenn du leen fàtte. jërëjëf naa ni peut-être dan ma koy. waaw dafa tuddee sëñ Xaadim Guèye doom ngir xas day xamu ko. Ibrahima Guèye ma nga dëkk ba parce dëgg la <laughs> maman xam naa danga may may rek peut tàggatoo bi ginnaaw temps bi euh, xat na ba noppi ñuy gërëm ñëpp en tout cas di euh, sant ñëpp vraiment wax dëgg yàlla bu soob soobee yàlla suba incha allah grand plateau dana dellu si waat ak yeneen invité surprise de waa kay incha allah